yourself TV. Always feel entertainment, comedy, news, anything. Feel. Talent TV. Wako jannam. Hmm. Alkanal bulo nige. ala bulgumba kakan tachi. liajibe music comedy fɛn de y'a entertainment na ka i b'a talent talent hmm? wow one time you know what i mean and, and, gambia talent um, promotion tv and all that you me so len buge gis du xew si dëkk bi ak lu waral warul si dëkk bi tv bi la fii la fii fans yi ak am di jaama yi ak xéetay sax welcome to gambia talent TV show you get me seen xool xalaatu xool yi nañ ko sànni fële si mbalit gi ne li xale ndaw yi toog di ko foyee fële cause Peppa TV bu nekk si tundi Gambi gii Gambian talent TV mooy seeni baay man one pack maa ko wax bu ko dinaay nga def leneen comme gars yi ñu ñooy defee yaa understand ñun ñoo fi ñëw xoolal di régler lu fi manqué di mutal lu fi manqué di def lu fi kenn deful mu ngali yende o ko julle nata ka miji golu kidimandi julle nata ka adi solu kidimandi julle nata ka jado ganyandi julle nata o ka jololu fanam fintindi facebook oto youtube facebook oto ngoy ko youtube gambia talent muna promotion lem gambia talent muna promotion mgbanda jawarode gbarịgbunga wate wate bụna nkeji ụgbọele wate wate bụna nkela mwele wate wate bụna nkela kuomila gambia talent oyi gambia talent oye nkoye dunle nata oyi kantoli kidimandi kantoli sewondi kantoli nganyandi gambia talent bụna gambia talent bụna gam talent oyi gam talent oyi ewali Pa Ousmane Diouf, Inimba. Ibaridi madi janneto, Gambia Talent TV, ngakana fomu ma, Gambia Talent TV, ngakana fomu koma. Made jalolu kuma datuma bina, mene jaliko, kakana fomu koma. Gambia Talent TV. Yo, tell them, nene jali susu albadima. alasta alla fanso the queen of mandi ako gambian talent tv akana fo moko ma mashallah alkaji de rungolo wow wow wow ninga miralu minna wuli tanko ye kombita duniya taman tamawola jinjingo ko birin mitala birin pareda suma min nanna tan ninna bagu balota me ñajuɓela wom a konya koy fere kalare lunjumale dumminala majabina wala bare birillo tantangan koji anyajiyo wale barita kadime kirena talaye talela parammanalola munasudu wanyiriganimminala mimmasokitita natolo timata honintatan konsisiuni பைமாலம் இஜல முஞ்சல பொம்பிச்சேரி பாட் பொம்பிச்சேரி பாட் இமுஞ்சல ஜாத கன்னிமாட் ஜல itela munjela இஜல முஞ்சல மாசிபதே தோட் மாசிபதே தோட் இமுஞ்சல ஜாத கன்னிமாட் நஜாத கன்னிமா chuaw yo balarang's the evil hunter gambian talents promotion gawale jibe every time keep watching it and like our Facebook page. Wow palama you naan dekka dem way wuñ ku si ni kon du Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog dem lu tax Gambia du dem Sister ñu eh, dem Pa Pa lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr oh 6 p.m. la GMT just just in case you ain't know. Knew them, knew them, knew them. Luther Gambia do them show Every Sunday night on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sado 6pm la GMT just in case you ain't know New them, new them, new them, new them Ha <laughs> balaa maa dee ñu naan tekk bii du dem balaa maa way naka la mooy demee fekk enente wuñ jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog du dem lu tax Gambia du dem ñi lañu Sister Eva Sarr eh, ñu dem Pa Ousmane Pa Ousmane lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia north and either side. Oh, new them. 6 p.m. La GMT, just in case you ain't know. New them, new them, new them. Luther Gambia do them show Every Sunday live on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad Oh 6pm la GMT just in case you ain't know New them, new them, new them yéen ñu déglu Gambian Talents Radio ba pare ñaanal pare ñaanal Gambia Ousmane bi Ousmane la yow moom lañ bokk tiim ko sa bopp yes yes yes yes yes good morning good evening good afternoon fu ñu waay di dégloo di ñu seetaane ci ñeneenti ko ñi àdduna yéen a ngi fóolu di toppa di seetaan seen favorite show lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi di leen ko indil semaine bu nekk rek ànd ak ivasar Sarr la woon fa woon ñu dellu si tey pour waxtaan ak yéen alhamdulilah dimanche bu passé mënuñ woon a ñëw waaye li lembe suñu réew aka moo bari liñ war a waxtaanee aka bari li tax ba suñ du dem kanam aka moo bari ma ma toog fii jàkkaarloo ak yéen ma toog fii di waxtaan ak yéen saa su nekk ah Gambia jamono jiñ toll nii we are in an era of information abondance luñ min si loolu mooy Gambia fuñ toll nii lii génn ci ay kàddu bari na ba ku ko sànni mbattu mu toj ma ne ñuy toog pour waxtaan ak askan bi nag di def sunu gestu ak lu munti xew rekk askan bi dinañ génn wax dinañ génn joxe seen xalaat ku nekk ni ko gisee waaye mane ni ñu wax taxul ñu génn wax dinañ def suñ gestu dinañ toppa dinañ kis-kisi ba xam xàmmee ràññee li nga xam ne moo nekk di xew te ñi nga autorité wala ñi am cër ci wax ji tamit wala képp kuñ wax dara kuñ jiñ dara it dinañ la jéem a jokk pour seet ndax di nga génn pour wax ak ideas ak yow ningko nga ko xalaatee ni nga ko xamee ak li nga xam gambeer yu dem lañ wax li may def man Pa Ousman ba tax suñ dëkk du dem kanam yow mii di déglu di seetaan li ngay def ba tax suñ dëkk du dem kanam ak ñi nga xam ne ñooy suñu njiit suñu njiiti aada suñu njiiti cosaan suñu njiiti diine ak yeneen kilifa yi si suñu réew lu ñuy def ba tax suñ dëkk du dem kanam loolu la ñuy waxtaanee ñu ngi leen ay nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi leen ay gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet si seen seetaan bu rafet ñu dellu si waat la woon fa woon Moustique Lo ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax maama yaay Aïssa ñu ngi lay bëggee Sista Kassa ñu ngi lay bëggee Mamo Touré ñu ngi lay bëggee Omar Diawo maa ngi lay bëggee bu baax a baax ak Ablaye Socé képp ku ñuy seetaan ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax képp ku ñuy déglu ñu ngi lay seetaan ma ne lu tax Gambia du dem show la ñuy waxtaanee semaine yu passé génn si nañ waxtaanee li nga xam ne mooy woon ah, luy xew si suñu dëkka biñ toogee gis président Adama Barrow génnee audio waxtaan ak UDP edda leen ne nañ ko jël def ko sen flag bi yara pour mu represent len ci nek sen presidential candidate pour 2020 élection si gannaaw bi nga xamé ne UDP ñu ngé wajal sen congrès ci décembre mané ñu waxtané lolu ñi nga xamné ne wa UK UDP chapter ñomit ñu organise woon gala dinner fundraising gala dinner for the UDP foofu noonu ci Angleterre ñu invite woon kii di Seexu Seydi li waxtaanoon ak moom gis ngeen waxtaan boobu nu mu demee nag fu fi jeexee taxañ nañ ko lakum këm yàlla diin Seexu Seydi li laaj naa ko ay laajte mu ne du tontu yenn laaj tey moom dafa am lu ko fi tax a ñëw te loolu laay waxtaanee leneen lu ma ci tegit moom du ko waxtaanee lu ma ko laaj mu ne ma no comment no comment no comment eventually ñu taxañ waxtaan wi maag moom ñu tàggatoo ci jàmm ak salaam ma ne dellu si waat nañ tey lu bari nag xew na ci diggante bi kii ñuy wax Aimé Ba nga xam ne mos naa nekk Gambia's Minister of Interior nekkoon ci APRC weer yi passé ñu déggoon xëccoo boobu amoon ci APRC ci affaire leadership bi muy kii jiite pati bi ñu am ñaari kabudu kabudu Fabakary Tombong jaata ak kabudu Aimé Ba loolu waraloon ba audio yooyu génnoon kii di former président Yaya Jammeh ñu dégga ne jël na joxe na ndigal dogal na na Fabakary Tombong Jatta mooy njiiti parti bi ne Aimé Ba nañ ko dàqa nañ ko faaya su desee si moom gars yi ne ko jarul dàqa nañ bàyyi noonu audios yooyu génn na nag kon loolu développement la boo xam ne am na Aimé Ba moomu kat cross nag kapet moom dem ci parti bu ñuy wax UDP lu xew la ci biir semaine bi foog ñu baaxee leen ko gannaaw bi nga xamee ne APRC Sidi Ndiaye mi nekkoon seen spokesperson génnoon na dem join président Barro's camp wax ci fan yi sax on président Barrow Aimé Ba tamit génn na APRC dem join UDP Sidi Ndiaye kat until this minute moom waxut ne UDP la waaye génn na APRC li óor te wóor te président Barrow la faral moom la àndal. leneen li nga xam ne moo ci xew ci biir week bi am wala gannaaw bi nga xamee ne mujjee ne ñoo def show TRRC bi président Adama Barrow lonc na ko. lan mooy TRRC Truth and Reparation Commission bi nga xam ne set nañ ko muy mbootaay bi nga xam ne njiiti réew mi président Adama Barrow taxawal na ko pour ñu gestu jaloore yeeg tojange yeeg rey yeeg yenn yi nga xam ne former président yaaya Jammeh defoon na ko ak ay ñoñam toroxal yi nga xam ne jiiñ nañ ko ne moom la toroxal yenn doomi Gambian yenn waa réewi Gambian moom la président Adama Barrow doon lonc loon di bele ñu génn nga xam ne kilifa yu bari teewee nañ ko kenn si ñoom moy Fatou bemben Souda nga xamne mom mo jité International Criminal Court of Justice nga xamne gambian la ñukoy béggé Ah, ki nga xamne ibun Chambers nga xamne mo fa togal am ah, office of the secretary general ci Africa momi téw won na bes bi ambassade yu nekk ci Gambia ambassade America ak yenen réew yi téw won nañ ci jotay bobu nonu president Adama baro waxtaan ak askan bi mu in commissioners yi nga xamne kat ñoñu ñoo wara gestu jaloore yeeg tojaange yeeg toroxal gi nga xam ne jiiñ nañ ko former président Yaya jàmmee kon loolu lu taxaw la ñooñu war nañoo commencé liggéey ma ne OIC nga xam ne 57 muy juróom fukk ak juróom-ñaari dëkk ñoo si bokka muy réewi islamic countries si mbootaay bi nga xam ne réewi jullit yi ñoo ko formé ñoo ko sos dikki november of 2019 muy at bi nga xamne ne lañuy la jublu si danaka at ci kanam dinañ def conference ci rewi Gambia gannaaw bi nga xamé né Gambia bit nañ ñu jox ñu lolu pour ñu nangul ñu ko rewi julli di nangul ñu pour ñu host ko ci londi biñ passé ni OIC gennon nañ def ñom tamit press conference for the first time pour waxtaan ak askan bi xamal askan bi li nga xamne ne mo len leen mbootaay bi xamal nañ askan bi ne kat conférence boobu ñuy joytu wala ñuy am pare pour taxawal ci Gambia ah, maanakat lépp lu si war a dem ñoom duñ ko am waaye conférence bi nekkut dara loo xam ne nguuri Gambia ñoo ko dépasse dëkk yi nga xamne ño ci islamic states isi islamic countries yoyu noonu ñoom yo yooyu islamic countries yoyu bokk ci mbotay bi ñom ñoy dépasse programme bi ñom ñoy fukki fan la wara am bir Gambia Saudi Arabia sila la Buri Saudi dina ñew Gambia Buri Kuwait dina ñew Gambia Buri Jordan dina ñew Gambia ak yenen bur ak yenen president yi dëkki julit yi across the world penku xarpu ngop wala ngalandu juróom fukka ak juróom ñaari deka yépp seeni président wala seeni njiit ak seeni délégation ñu ngi am yaakaar di fuuglu ne dinañ ñëw teew si réewi Gambia ci biir loolu gars yi jëm nañoo sampa hôtel boo xam ne dina def ñeneenti téeméeri néeg ak lu tegal ak villa boo xam ne buur yi ak président yi ak seeni ñooñ foofu la ñooy amin dal ay oto lijjanti nañ ko pour dugal ko si loolu am am am pour oto yi nga xam ne moom la gars yi di dawal ay yoon ñu ngi koo jéem a defar pour yoon yi nga xam ne place yu gaay di dal wala fu ñuy jaar boog yoon yooyu dinañ mentionné yoon yu baax lañ ci réew mi ak yeneen projects yoo xam ne OIC comité bi ñu ngi koo doxal ci réewi Gambia am ñu ngi koo sabablu liñ xamal askan bi nag mooy ne project yi yëpp du mun a jeex balaa boobu waaye ñoom kat si li nga xam ne moom la am boosi OIC wax ne kat dañoo mbubboo AIC bi rek pour mun a am koppar wi wala xaalis bi nga xam ne moom lañ soxla pour développer réewi Gambia su conférence bi amee ba pare dinañ jekkal yenn projets si réew yooyu nag bokk ci yëf yi ñoom dem nañ gestu ñeen ñi dem nañ sàkku ndimbal ci lu fukki dëkka te ñoom ñëpp joxe nañ seen kàddu ne dinañ dimbale réewi Gambia kon lii mooy li nga xam ne ci tënka yenn yu major events yoo xam ne xew nañ suñ dëkka si at bi ñu nekk ñuy bëggee képp koo xam ne yaa ngi ñoo déglu yaa ngi ñoo seetaan fii ci Gambian Talents TV lu tax Gambia du dem show programme bi is live incha allah dinañ ibbi line si kanam pour waxtaan ak askan bi waaye lan lañuy waxtaanee tey ñu ngi waxtaanee loo xam ne lu am solo la leneen lan moo xew ci Gambia ci week buñ génn nii wala ci ñaari semaine yi kii nga xam ne mooy minister of tourism and culture di Amat Ba génn na make announcement gaaral ay kàddu am gannaaw bi nga xamee ne jóge na Saudi Arabia waxtaan ak askan bi xamal askan bi ne kat rewi Gambia sign nañ contract pour jëlé ay doomi Gambien lu mu dinné doomi Gambien bir Gambia yobu len Saudi Arabia dinañ dem pour waxtaan ak askan wi Saudi Arabia nangu nañ pour jël lu mu dinné doomi Gambien li Amat Ba wax moy né doomi Gambien yi kat am ñu bari ñuy génn di wax né bindaan rek lañuy jël. according to li Amat Bah wax nekkut ne ay mbindaan rek la ñuy jël wala dañuy nax doomi Gambien comme ni ko ñenn ñi di waxee ne dañ ñëw pour jaay Gambien si génnuñ pour jaay doomi Gambien ci benn naar génnuñ pour jaay doomi Gambien ci benn arab wala ci kenn waaye kon dinañ waxtaanee loolu nga xam ne moom la Amat ba wax. ci biir programme bi nag dinañ leen indil ay waxtaan ndax am na ñu bari ñoo xam ne génn nañ di wax. yan waxtaan lañ leen a indil dinañ waxtaan ak ay Gambien waxambaane ak jigéen ñoo xam ne kat jaar nañ foofu ci réewi naar yi ñu waxtaan ak ñun wax ñu seen am xalaat wax ñu ñoom niñ gisee foofu ak liñ fa dunda ñenn nañu si ñoom kat ñu nga foofu ci jëkk bi ñoo wax ren ci jamono jii Ah, dinañ waxtaan ak ñoom insha allah ñu wax ñu ñoom liñ nekk di dunda fofu ñoo ñu ngi fa ah, ndax jarna dem ndax jarta dem mané dinañ waxtaan ak ki nga xam moy Ibrahima Diba nga Gambian la kat di liggéey fofu ca office of the ah, Gambian embassy in Saudi Arabia protocol officer la fofu but we'll be talking to him in his individual capacity dina waxtaan ak ñun xamal ñu mom kat li nga xam ne moom la xam fofu ak nim gisee yefi kon ñu ngi lay nay bu baaxa baaxa baax di leen gërëm di leen sant si seen i déglu bu rafet ak seen toppa bu rafet Gambian Talents TV ngeen nekk di déglu ci jamono ji Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi di leen bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen santa kon duñ def dara lu doot ñu continuer rek ak programme bi ah, gannaaw bi nga xamee ne Amat Bah nga xam ne moom moo jiite Minister of Tourism ah, kaddu yi nga xam ne moom lañ génne Amat Bah kat ah, li nga xam ne moom loolu la wax duñ def dara lu ñu indil leen kaddu Amat Bah yi ñu leen ay bëggee bu baax a baax baax di leen gërëm di leen santa Ousmane Diouf nekkal len ci gannaaw microphone bi kon duñ def taral du honorable minister Ba uh, the video is courtesy of Kër Fatou kon ñu ngi lay nay bëggee bu baaxa baaxa baax a ngeen jëf ñu uh, video Ahmad Ba bi jërë ngeen jëf. I think to be honest with you, we cannot do without it. And that's why if you look at our MOU that we signed with Saudi Arabia, the press was highly featured, the media was highly featured there because we believe that if we can only succeed, uh, we have to cooperate with the media. Without the cooperation with the media, it will be extremely difficult. And that's why when we are going also, we decided that we have to go with DRTS. And going with DRTS makes a great difference for us. Now, the reason, as the Honorable Minister have said, I think as a government, we admitted personally, all of us at every level, that there was need to do more by informing the people of what we are doing and what we have achieved. And indeed, of course, the NDP spelled out what our programs are. But so far, our achievement in the, within the NDP has not been well articulated. Not because people are not willing to do it, but because we have not coordinated the method, put the method, the processes in place that will make it happen, so that we can inform people and tell them what we are doing as a government. We become in charge of our own, you know, uh, way of disseminating information by telling the people really what, what they would understand from us. And you know, we are fair to admit that it's a weakness. We accepted that. And I think that is bold for somebody to say, I am weak on this and I need to improve on it. So we came to the conclusion the only way to improve it is really by getting every ministry every week with its line departments and so on to be coordinated by the Minister of Information, who is a seasoned journalist. He has worked internationally at every level. And I think, to be honest, we are proud of him. And he knows the digital system. He knows the media. He knows the media law. He knows how to send the message across. He's worked for the BBC, Al Jazeera. He's worked for the many international news agencies in the world. He's a classic journalist So for him to be uh, in charge of this process and to be assisted by a very strong very strong personality in the name of Ami Bojang Sisoko. We all know her. Very willing, sacrificing 24-7. Sometimes I pity and sympathize with her, particularly when we travel. When we are in the bush, everywhere. She is 24-7 ready. Anywhere you find us, you think that that's a man standing there. You never see a difference whether she's a woman or a man because of So uh, we are, and she is committed to this regime. She is committed to this process and she meant exactly what she's saying, and that's why we value her, we cherish her, what she does, because she's committed to her job. I mean, keep up the good job, the insults are many, mm-hmm. but at the end of the day, you will scale through. God will always protect It's not been easy as my directors and my permanent secretaries. Working with Ahmad Ba is sometimes very difficult. You may not find it easy. Sometimes it may be rosy outside, but internally, I think sometimes it's hard. But these are the things that you take, you never regret working with me. After three years, four years, you will always be happy to have worked with Amatma because the result will always be there. And you will stand to learn more and to be able to stick a lot more. And when you part with Ahmad be rest assured that you can be anywhere you want because it's a people institution. It's not an easy way to work with Ahmad you can see it, but you will never regret having worked with Ahmad So let's thank God for that man. Now, first of all, not to take too long, I just want to make some little bit of clarification regarding the issue of uh, the uh, agreement that we have had with the Saudi Arabian government. And uh, it is important that we explain to people to understand. The Saudi government... honorable minister Ahmad Ba mu ngey ñoo netali agreement bi nga xamne ne lañ am ak wa Saudi gambian ci diko lam lamé diko di ko ah, lu bari nak ñukoy gis yeen ñi nga xamne ne nek ci internet bi di jëlé seeni xibaar ci internet bi gis ngeen ay vidéo yu bari sétane ngeen ay audio yu déglu ngeen ay audio yu bari gis ngeen ay ñu bari bind ci tamit kon ñu déglu li nga xamne ne la minister bi wax ne Gambia mom lañ sign ak nguuri Saudi Arabia. mu ne nguuri Saudi Arabia ren gi nekk nii dugal nañ lu mut juróomi billion dollars pour taxawal tourisme muy ñi nga xam ne dañoo tukki di dem ci euh, yeneen dëkk yi pour dem fere fa xaalis tourism industry around the world ren gi nekk nii Saudi Arabia. dugal nañ juróomi billioni dalasi ci tourism and they of course realize the importance of Gambia because we met them in different Uh, uh, forums in different arenas they've seen us perform Saudi Arabia gis nañ Gambia ak ni Gambia amee njëriñ ak am solo rawatina si affaire tourism ndax ñoom kat dem nañ place yu bari tesee Saudi Arabia te Saudi gis nañ liggéey buñ def wherever and the minister of tourism and uh, national heritage uh, is the first mu ne minister of tourism ak national heritage ci Saudi Arabia doomi buur bi la te mooy the first astronaut si arab yi ci réewi arab yi foofu moom moo njëkk dem ci jaww ji moom moo njëkk dem ci weer wi ci kaw moom ministre boobu. also pilot lay tamit daf dee dawal plane. moom mooy Arab astronaut bu njëkk. ku am pas-pas te ku bugg réewi Gambia. ñu xam ne ñoom waa réewi Saudi Arabia dañ soxla réewi Gambia ak skills yi nga xam ne moom lañ am experts yi nga xam ne moom lañ am muy liggéeykat yi nga xam ne moom lañ am. dañ waxtaan ak ñoom kat gestu ay affaire ñu ak d'accord ak ñoom ci kàddu ñu jël kàddu googu binda ko ci kayit liñ d'accord ak ñoom mu ne réewi Gambia nuru nañ ne ñu ndaw lañ waaye suñ nekkee ci biti ñu màgg lañ dee nekk general, not only in tourism, I'm saying that as small as we are a country, when we go outside to perform, we earn the respect. mu Gambia ndaw na nekk na réew mo xam ne na waxut affaire tourism tourisme rek waaye time bu ñu génnee si biti pour liggéey anything rek euh, dañ dee def li ñu def. te dañ ñu respect. we are committed to what we are doing. And some of us knows the stuff that we deal with too. And that is very important in anything that we do. So we, they approached, we've been negotiating this. The permanent secretary, Ministry of Tourism, and our staff, and the ambassador uh, and his staff have been working on this document uh, to see how best we can you know, harmonize our, you know, our own side and their own side. And Minister of Tourism, muy mom Ahmad Ba, ak ñi nga xamne ñoy ronam ak ambassade bi yag nañu liggéey ci li, ñu ngi binda ñu ngi def ñu ngi waxtaan di sét naka la ñoo mëna rafetalé contrat bi nga xamné dina taxawal wala wa Saudi dinañ ci gis seen boppa wa Gambia yi dinañ ci gis seen boppa. Again, you know what is interesting? Uh, within six months, anything in this document you can uh, ci gëna am solo lu ñu wara xel moy ne juroom ben wër yu nekk lu nekk ci contrat bi mën nañ ko wéccii comme contrat bi nekkut contrat boo xam ne dañ ko def ne ay at ak at juróom benn weer yu nekk mun nañ see wecci su réewi Gambia toogoon gis ne lii kat liñ fi so foogoon amut noonu dinañ ko mun a wecci suñ demee ba si kanam mu am loo xam ne d'accordoon nañ ci te neexut ñu mun nañoo rocceeku waat ñu wax waxeet. There is nothing that is difficult about Now, we believe that we should engage them. We have Gambian experts who can be of benefits to them. Uh, people that are trained here because of the six month thing most of them after six months they're sitting down and they don't have job mu ne am yu bari yoo xam ne ñu ngi bugg a liggéey ñoo xam expertise am ideas am nañ liggéey yoo xam ne war def waaye amuñ liggéey 90 percent of all the hotel staff are non-Saudi citizens and all the Arab world in fact some of them are coming from Kenya some of them are coming from Tanzania some of them are coming from Morocco some of them are coming from Egypt mu ne soo demee ci soo demee ci dëkki arab yi 90 percent muy juróom ñeen fukki percent si am ñii liggéey si hôtel yi foofu noonu nekkuñ doomi saudi nekkuñ waa réewi saudi soo demee dëkk yi mu wax ni Kenya Morocco Indonesia am uh, Egypte ak yeneen dëkki Afrique saw jant yi ak dëkki Asia yi foofu la ñu ñu jógee nekkuñ waa doomi am uh, Saudi Arabia si boppam. Bangladesh India Pakistan Philippines ak dëkk yu bari ci rew I said, well, Mr. President, unfortunately, the Gambians who come here, we do not have any contract with Saudi Arabia. mune bim gise mu president loolu président la àndal Saudi Arabia president baro oo ko ne ko Amadou ana wa Gambia yu nek fi ñi liggey fi mune ko kat wax dëgg neex yalla gis nañ ñep doomi yenen dekk lañ du domi Saudi Arabia ñi liggéey ci hotel bi 90 president baro de ko ne ko anagaa yi mu ne ko fi kat Gambien si nekkuñ fi Gambien ci fi nekk ci bopam tamit sax ñun amuñ contrat ak Saudi Arabia. mu ne ko ñun kat amuñ fi ben contrat ak wa Saudi wala benen order rewi nar, suñ nguur gi musuñu lijeenti ben fotoñu lijeenti pour rewi Gambia am contract, ak rewi Saudi Arabia. Then he said, why can't we try and bring our own people to If we, if this contest can succeed, I believe we can also succeed. mu ne la ko President baro wax ne ko lutax kon ñun waru ñoo mëna try su fekke ne doomi yenen de kay ñu ngey ñëw fi di liggey te ñu mën ko def ñu nit mën nañ ko war war nañ ko mëna def. Then from there we believe that engaging the Saudi became more necessary because here from the highest order somebody say we want our people to come and work here mu ne ki nga xamne moy njiti rew mi moy number 1 citizen de president Adama Barrow bi waxe waxee loolu si la jóg nag ne ñun kat waxtu takk suñuy ndiga waxtaan ak wa Saudi jotna and we came to the conclusion that we all agreed on the MOU e and that the scheme the the the policy of the Saudi government whatever a minister agree with another country the king has to append his signature before the minister himself goes to sign that. Mune lepa Saudi bepa minister bufa jog pur waktane dara tamit Bala mo jog def dara Bala mko sinye mom minister bi si bopam pur mutakaw. ki nga xam ne mooy sinye, bi si bopam daf ko wara sinye. daf wara def tàmpeem mbe pare su ko bi dora muna sinye te ay nyar wala nyeti semen si kanam bur bi dina def lolo pur sinye. contract be on behalf of the Saudis. And then, of course, we will sign the document and start operationalizing as soon as possible. So, in that, we believe that some of our citizens, under a contractual agreement negotiated by justice, labor, under the office of the president, we would have a document that would install our staff. mu suñ paree Saudi signé ba pare dina ñëw Gambie su ko defee ñu signé. dina dem through justice mooy ñi nga xam ne ñooy amee gestu wàllum yoon ak yoonal yi ah, ministry of justice ñoom it ñu seet ko ñu gestu ko under department of labour ak office of the president su ko defee ñu tànn ay Gambians ñoo xam ne dinañ leen mun a yóbbu foofu noonu loolu la Amat ba waxagum. mune dinañ am contract bi kat su ko ñëwé di nga gis ne dinañ am Gambians yo xam dinañ dem Saudi ño xam ne under contract lañ fa démé nguur gi ñolé na garantie garanti na yobbu fofu nonu lepp lu xew fofu nguur gi dinañ gestu sen fay ñaata lañ leena fay fan lañu dekk sen dekk way ak yenen yi nga xam mu ko wax sen conditions muy fi nga ni nga xam nonu la fofu di mel. suñ demee nag ba nga xam ne négocier nañ loolu dinañ jël the right people. so really for somebody to say mu ne képp ku toog ne dañ nekk di jaay Gambian ci Saudi yi ku ko wax rek xamuloo li nga wax ku xamul rek mooy wax loolu. mu ne ñoom seen nguur gi nguur goo xam ne nguur gu am fayda lañ. duñ mus a jaay suñ ngor doomi Gambia seen yelleef duñ ko mus a jël ci seen loxo. is mu ne ñaareeli reason bi lu tax ñuy def lii mooy ñu jël ni ñu bon ñu soxor ñu yées ñi nga xam ne kat. dañ ñëw pour yàq gambien si di jël suñ xale yi di leen yóbbu si baakwee bi di leen yóbbu si néegi ak këri araab yi dëkki araab yi di leen toroxal di jëlee xaalis bu bari ñaareeri reason bi lu tax ñu sign deal bi nii mooy pour nguur gi jël responsibility nga xam ne dinañ dimbale xale yi nga xam ne dañ bëgg a génn instead of ñi nga xam ne ñooy ordinary people yi ñu ñoo ñu bon ñi nga xam ne dañ pare pour yàq xale yi di leen yóbbu si baakwee bi. mu ne suñ demee ba nga xam ne am nañ official agreement muy kayit boo xam ne dañ ko d'accord nguuri Gambia ak nguuri Saudi kon képp koo xam ne yaa ngee def loolu su la nguur jàppee loi dina tegu sa kaw. because now they are doing it they are taking people taking them there in very bad condition without even our government knowing they don't even report to our embassy. mu amna am na Gambian yi alla ay nit yu jël Gambian si di len yobbu fofu nonu di len am jox condition ci bon te embassy ci xamuñ Gambian government bi xamuñ they don't report the government xamuñ dara ci lolu no idea enslaved and they are collecting their money using their mu ne ñooñu ñu ngi leen enslave ñu ngi jël seen xaalis ñu ngi jël seen alal alal ji rek la ñooñu soxla ñuy def loolu. government gi kat dañ pare jeexal loolu. mu ne loolu kat li only thing li ko mun a jeexal rek mooy ñu make sure ne kat nguur gi def nañ seen kéemtalaay kàttan ñu am kayit goo xam ne kayit guñ teg ci yoon la kayit guñ teg ci luwa la pour lii mun a am. and the government has to dictate mu ne fee amuñ façon kayit gi dina am ñoo xam ne dañoo continuer di def lii kat. ñoo xam ne dañ ñu bon ñu yàq foog ñoom ñu continuer di def fee nguur gi amuñ façon ngi kayit bii loolu dafa métti pour ñu stop ko mu ne leneen lu loolu di def dina wàññi wala dina stop back bi muy ñi nga xam ne ñooy demee yooni gannaaw pour dem Europe ah, suñ signé contrat bi loolu yi tamit dina tax ba ñooñu dinañ mën a stop back way bi mune wax rek taxut gars nga nga jeexal baak ku bugg a jeexal da nga jëf da nga jóg nga jëf té ni nga jëfé moy pour nga def dara comme li nu mel comme ñom nguur gi liñ jóg pour def ni Really, uh, should appreciate eh, what the Barrow regime and government and administration kon mune Gambien kan dañ wara délo ñukal contane ci li nga xamné mom la nguuri Adama Barrow di defar réew mi. Focus will not be distracted. We will not be distracted by people. who have been mu ne ñoom kat seen nguur gi dañ dañ dañ am jubluwaay dafa am foo xam ne fa lañ bugg a jublu te duñ alaaw kenn koo xam ne dafa jóg pour yàq loolu noonu rawatina ñoo xam ne kat ñu ngi doon liggéey ci réew mi ñoo xam ne ñoo amee woon réew mi lu yàgg te defuñ fi dara. all know what mu ne ñu bari si ñoom xam nañ liñ dunda. ci at mu euh, nguur gi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñenn nañu si ñun dawoon nañ génn ci réew mi dem dëkk ci biti. Kill hospitalized uh, young babies in mu ne ku mel ni ministre Ibrahima Silla dañ ko doon bugg a rey ak doomam bi nga xam ne benn at la am time bi nga xamee ne mu ngi woon ci réew mi ci time yi former président Yaya Jammeh mu ne ñi nga xam ne ñoo doon def loolu ñooñu léegi ñooy jéem wax di ñu wax ñun. nguur yi président Adama baro naka lañu war a doxalee réew mi. how many Gambians have ñaata Gambians ñoo réer. ñaata Gambians ñoo dee ci jail bi. how many Gambians today left ñaata Gambians ñoo génn réew mi because of nguur gu bon. ñooñu tey nag duñ mën a toog fii ne ñoom ñooy wax nit ñi naka la ñoo doxalee réew mi ne ñoom ñoo wax ñun naka la ñoo doxalee réew mi Gambians yi dañ leen bañoon Gambians yi dañ leen uus Gambians yi dañu leen bàyyi woon. te ñooñu mënuñoo toog tey ne ñoom ñooy wax ñun naka la ñoo doon na réew mi. It is our responsibility to kon mu ne nguuram dañ am responsibility pour continuer def li nga xam ne moom la ñoo def. Mhm. mu ne su ngeen ootee dinañ leen uyu su ngeen laajtee dinañ ñëw pour waxtaan ak yéen loolu mooy li nga xam ne moom la um, amaat ba wax. ne ñom seen nguur kat lolo ko taxa a the guarantee of our sovereignty Gambia considering our geographical nature is only through peace kon dégg ngeen li nga xamne mom la amad ba wax yéen a ngee di seetaan lu tax Gambia du dem so jógee fi ci Gambian talent TV Pa Ousmane Diouf nekkal len ci gannaaw microphone bi ah, yéen a ndor li nga xamne mom la ministre bi wax ah, muy moom ah, amad ba nga xamne mom mo yore minister of Euh, tourism and culture kon nguur gi wax nañ mu ne ñoom joguñ pour yàq benn Gambian joguñ pour def dara lu dul dimbale Gambian yi nga xam ne dañ soxla liggéey président Adama Barrow moo doon dem fële ca Saudi Arabia biñ demee Saudi kooku waxtaan ak ñoom ne ko ana Gambian yu nekk fii ndax hôtel bi hôtel industrie Saudi Arabia 90 percent of ñi faa liggéey duñ am ga am am waa Saudi. so mu ne ko ana Gambien ci fii mu ne ko Gambien ci fee nekk sax nag ay individuals ñoo leen fay indi nguur indiwut leen fii mu ne ko nañ fexe ñu jublu si loolu loolu tax ba ñoom ñu gestu pour soom this contract am this ak waa Saudi mu ne number two yi tamit jóg nañ pour xeex li nga xam ne mooy backway ak ni ñu bon ñi nga xam ne am dañ jóg pour yàqa réewi Gambia ak ñi nga xam ne mooy suñ xale yi suñ ndaw yi kon duñ def dara lu ñu continuer programme bi rek di leen wax ne yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax ma read some of um, your your comments rek Fatou Jagne mu ne what is he talking about this man I mean uh, Linab bi Raoul mu ne Gambia is sad people like Ahmad Ba are, um, running big part of our country hey we don't need this you people are not doing anything mum la wafatu ja ne supaka jama kon ñu ngi amé kola on the line ñu jël kola bobu hello kola ah naka nga def jama rek naka nga def alhamdulillah dama dama ma ngi deglu yi amat ba dama xala wëru ma way dama ne bi ha mhm. rek ma gis suma expert analysis on this issue of amat ba mhm. um pa amat ba is idiot we do not to him way waxal kaddu gi ak teggin way <laughs> waaw non idiot, mooy ko stupide du saaga waaw pa lii gën nga number one mm-hmm. maa ngi déglu li moo wax mm-hmm. daa ah, Amadou Ba li mu def nii mm-hmm. it's a form of a ah, civilized way of government running away from responsibilities sooy bàyyi xel bu yàggut ba bi ñëwee UK dañ ko interview dafa understand the frustration in Europe one Health is overcrowded. Mm-hmm. That's why he wants governments to come home and do something. Mm-hmm. The same principles apply across. Mm-hmm. Gambia government will not guarantee any Gambians welfare abroad. Mhm. Much more talk about what they're going to do. Get up back in must have program. Boy, big day, no, they have nothing to do with that debt mm and investigation. Mhm. There are many Gambians in Saudi Arabia. Mhm. Even to look at our embassy is a problem. Much more, go Gambia wanting to dictate mm-hmm. the terms and conditions of a kingdom. Mm-hmm. Gambia, I mean sovereignty. They mm-hmm. fight the same way as Saudi Arabia to protect their welfare and their country. Mm-hmm. Gambia is in no position to mm-hmm. dictate the terms of these things. Mm-hmm. Number 3 we already have funds to provide enough jobs for the Gambian people. Why would Gambia government think of taking Gambians to Saudi Arabia to work in a hotel industry as local domestic workers? Man, my brother in the Gambia wants to be a science student. He wants to be a doctor. Mm-hmm. He don't want to go and be a. Mm-hmm. Mm-hmm. America and good education. Mm-hmm. Because of Gambians in the Gambia, they want a good life. Mm-hmm. Saudi Arabia and Gambia, they have nothing in common. Mm-hmm. Saudi Arabia, back in the Monjai, raving the their need. We don't give two topics. Mm-hmm. However, we, we live in a world whereby mm-hmm. we always justify the bad things. Mm-hmm. Zimbabwe, another creator, how do mm -hmm. they mm-hmm. call it? When he take over. Mm -hmm. Saudi Arabia, raising and he died in a struggle. Mm -hmm. So why would the Gambia government and Amada Minister of Tourism, Muyawanan, but I don't know me how many demon joy tell you what dictate the terms of the government. Mm -hmm. is stupid. The Gambia government, they are answerable to the people. We have the right to question and to say how they govern, mm -hmm. but not in a civilized way. Mm -hmm. Secondly, Mm-hmm. where is Mr. Tangara? Mm-hmm. Wasn't about APRC, Mamun Jai, the chief protocol of Borough. Mm-hmm. He's now, he was the chief protocol of, of So if he, why can you go and question those people? Mm-hmm. Let we attack the Gambians. Mm-hmm. This is a sign of dictating, telling people that we, we on the show, not you. Mm-hmm. Instead, the whole Gambia should be part of what is on right now. Mm-hmm. Right? Situation of, of migration, legal stop is already been there. Mm-hmm. Let Gambia put good laws and mm-hmm. policies and control their borders. Mm-hmm. Human traffic, the UN have got guarantee, have got condemned already. Mm-hmm. The Gambia can't stop it right now. Human mm-hmm. traffic has been happening, and mm-hmm. let Gambia government mm-hmm. try to see why are young people taking back ways. It's always socio-economic interest now. Let them invest in those things. Guide them like a high, Halisby guide with a way out, which is wrong. Man, I am telling all Gambians na ñëpp taxaw ama ba dañ koo daaxa bi moo di taag faute mm-hmm. blonde bi moo def yee sawoon na si Sénégal mm-hmm. Thaïlande mm-hmm. ak bom say léegi mu ne naan dafa daf ñu yóbbu pour Saudi Arabia dañoo jaay because of if they sign any agreement to me, waa Gambians dañoo dem right now Amad Ba and Gambian government cannot guarantee my living in Saudi Arabia they can't because man su ñu dama employ I adhere to the to that company's policy it's not, it's not that's nothing to do with Gambia government. Uh-huh. Those are private institutions. Mm-hmm. So the treaty between Saudi Arabia and Gambia mm-hmm. cannot imply in those small companies. Mm-hmm. And much more, Gambia among the power to enforce it. So you got among KDR, because they need them, need them, need them, need them, hey, send right, send oil right now. But mu ngi wax Ousmane li nga wax solo balal ma bugguma laa dog waaye su ma nga kola tuuti ndax mu ngi guddi Saudi Arabia te dafa am ñu war a dugal ci line bi ñoo ñu ngi ma bugg a dugal ñooñu pare then we can have a proper discussion ah, mu ngi guddi si Saudi ma ñaan la rek nga baalal ma bu nga amee ma ma waaw daanelal kon ñi ñi mu wax ne mu ngi may example ñi nga their parents have been killed and they have been away mm-hmm. tey Mm-hmm. What prosecution, Ghana government, this current Ghana government, they haven't given justice to all those victims mm-hmm. and so sending mm-hmm. and NIA 9. Mm-hmm. So, Limo Bako, government, mm-hmm. government, and right now, want to prosecute Ben APRC victim. Mm-hmm. So, Amar now resign. It's enough of him right now. <laughs> no, no, no, no, because deal bi nii xam nga xam nga tàng la du ci bokk. dañuy di foreign minister. waaye jërëjëf. ok jërëjëf kooku mooy Pa Ousmane Thiam incha allah dégg ngeen li nga xam ne moom loolu la wax ne loolu mooy kàddoom na Amat Bah resign moom mi nga xam ne moo amee ministry bi um, of tourism ne li moo wax tegu ko fen li moo wax du lu am li moo wax du luy njëriñ réewi Gambia ah, gars yi dañ feel xaalis bi nga xam ne moom lañ leen jox pour EU xaalis bi ñu leen joxoon pour ñu provide employment ah, pour Gambien si moom lañ lekka mu jeex ñuy seet naka la ñoo génnee si loolu ah, pour defar kàddu googu loolu la wax moom kon ñu ngee bëggee Pa Ousmane Thiam bu baax a baax a baax yéen a ngi déglu di seetaan lu tax gambi du dem soo jógee ci Gambian Talents TV ak radio dinañ leen ibbil line si in a little bit um, show is dinañ ibbil si kanam duñ def dara ñun ñu dem ba Saudi ah, waxtaan ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Diba nga xam ne mu ngi dëkk foofu noonu nekk ah, ci ah, Saudi embassy bi di liggéey foofu di Gambian embassy bi in Saudi Arabia di liggéey foofu as ab protocol officer kon duñ def dara lu ñu jokk Ibrahima Diba ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen santa di leen wax ne yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show maa ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen santa Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi nii lañ koy defee saa su nekk ah, lu tax Gambia du dem show la show is life képp ku ñuy seetaan rek ak foo ñuy seetaanee penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi lay jox loxo di la dalal di la tatagal di la welcome ci show bi su fekkee ne léegi nga dugga si ah, ñu ngi doon déglu si gannaaw ki nga xam ne mooy Amat ah, ba di honorable minister of tourism and culture bu Gambia gannaaw bi nga xamee ne coow li génn na ne kur Gambien si di waxtaanee li nga xam ne moo xew ci Saudi Arabia Gambien si génn di waxtaanee li nga xam ne am ah, mooy liñ dégg si jamono ji nekkat am Gambia government dañ nekk di jaay am Gambian si Gambia government dañ am deal ak araab yi pour jaay suñ citizen si Amat ba weddi na loolu ne loolu amut tey amut ëllëg kon duñ def dara lu dul ñu jokk kii di Ibrahima ba incha allah pour waxtaan ak moom rek moom mi nga xam ne mu nga foofu ca Gambian embassy bi ci Saudi Arabia ñu jokk Ibrahima Diba ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal bu baax di leen gërëm di leen santa kon ñu déglu Ibrahima di ñu waxtaan ak moom. متصل إن الجوال المطلوب مغلق الرجاء الاتصال في وقت لاحق The one number you're calling is off please call again later. ñu ne number boobu dafa off dinañ tryaat um, kii di Ibrahima ba rek si jamono ji pour waxtaan ak moom dinañ ko try through other means. yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi maa ngi leen ay béggee di leen dalal bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen sant fu ci waay nekk ci ñeenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu nañ continuer di try Ibrahima rek uh, ba jot ko suñ jotutee Ibrahima yi tamit dinañ jokku yeneen brothers yoo xam ne ñu jamono ji amin incha allah su ko defee ñu waxtaan ak ñoom rek dafa mel ni laay ni Ibrahima bi mu ngi ring hopefully dina jël si jamono ji su ko defee ñu waxtaan ak moom rek yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi su fekkee ne Ibrahima jël na rek dinañ waxtaan ak moom téléphone am baa ngi ring kon lu tax Gambie du dem soola dégg ngeen honorable minister Amat ba fi nga xam ne foofu la génn dégg ngeen li nga xam ne moom loolu la wax ah, ci jamono ji as nguur gi ak seen taxawaay ñu ne ñoom duñ jël ki nga xam ne mooy former président Yaya Jammeh li nga xam ne moom la def ci réew mi ñoom duñ am ah, d'accord si loolu tey duñ d'accord si loolu ëllëg loolu ah, lu set wéj la loolu leer peng la dégg ngeen ko gannaaw bi nga xamee ne wax na ko dafa mel ni am Ibrahima jëlut dinañ ko trayaat in the meantime dinañ trayaat ki nga xam ne ah, ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ca Bahrain Gambien si nga xam ne ñoo nekk foofu ca Bahrain it dinañ leen jokku pour waxtaan ak ñoom incha allah ah, ñoom ñi nga xam ne kat ñoo nekk di dafa mel ni Ibrahima jël na. Mr. Diba. dafa mel ni Mr Diba line am bi dafa nekk di defen ñu ngi ko doon jéem a jokku direct line noonu uh, but it wasn't going through um, dafa mel ni um, fiñ toll ni mu ngi jël waaye line bi dafa nekk di dog ngeen baalal ñu rek Saudi Arabia la nekk and the network connection is bad call nañ ko direct line it was going through but dafa xaw a bon tuuti hopefully there would be a better connection for Mr Diba call you back to ko defee ñu waxtaan ak moom waaye duñ def dara dut ñu call Baboucarr Baboucarr si ngeen seetee am li nga xam ne bind nañ ko am si gannaaw gis ngeen ne ñu ngi leen explainal Baboucarr am Sankare la tudda a young Gambian that is currently in Bahrain how did Baboucarr get there Ah, dinañ ko duggal ci line bi pour mu waxtaan ak ñun wax askan bi mom naka la def ba aga bahrain ah, fofu ci rewi arab yi ndax that's what we are talking about si jamono ji we are talking about rewi arab yi ak nga xam ne xew fofu kon téléphone babu ka ring ñu jël ko rek su ko defé ñu waxtaan ak ko ñu jël ka su ko defé ñu waxtaan. hello hello alaykum maaleykum babu ka ini mbara how are you na nga def. man fi rek uh, Pa Usman, Diouf maa ngi call um, uh, right now naka nga def ci Gambian Talents TV ni mala ko waxe won naka nga def. maa ngi cool ngi cool. Oh, ok jot nañ um, sa xibar ne yaangi Bahrain si jamono ji nekk ni right. aha Mana ne jot nañ sa xibar ne yaangi Bahrain si jamono ji maa ngi la waxone dina la call um, uh, in a little bit. am sorry it took a little longer am um, jot nañu xibaar ne yaa ngi Bahrain si jamono ji nekka nii right ok naka nga ñëwee Bahrain kan man waaw mun naa la ko explainal nag waaye comme ça lu ma lu ma bañ daal comme ça ngeen tasaaroo suma personal problème si dëkk bi loolu laa bañ quoi because suma problème lu ma mënta face bi dama ko bugg solve mi man oh ok waaye bi ngeen maa jox sa information ak bi ma wax ak yow man dama la waxoon ne la we di the TV and of course we would like to discuss issue bi nga xam ne mu ngi xew ni ah, nga xam ne ñu ngi ñëw ci dëkk bi bu noonu muy dëkki naar yi ak li nga xam ne ñu ngi koo daj loolu lañ bugg a waxtaanee I mean and your story can be very interesting te dina jangal ñu bari inshallah allah su ko defee ñu xam li nga xam ne mooy xew ci guri nar yi ndax nguuri Gambie ñu ngi pare pour indi lu mut thousand Gambians fofu nono so su fekkee né yow yang fa nga nekk kenn si ñoñu and yang fadunda fa dunda it will be nice and good pour nga sia sa story ak Gambians si su ko ham. ñu xam yow li nga nek di dunda. Okay, my house maa boy with me, sir. Oke, malah deh, fine waaw loolu la rek su fekkee ne bëgg nga def pour jangal askan wi xamal askan ndax wax lu am la ndax du lu am ah, naka nga Bahrain soo ñu ko dina am solo ak ciban ban condition ngeen nekk foofu si jamono ji ndax dina janggal nyubari. bari ah, man mom mo own problem la because man man numa Bahrain it was very hard because man pini small on own visa laa fay okay waaw su ma woon visa la fay almost uh, seventy something thousand dalasis boo spend naa ko suma visa bi seventy something thousand dalasis si kan nga spend visa boobu noonu kan moo la toppatool yëfi visa boobu ah benn koto la moom mu ngi fii waa Gambien la mu ngi toll laamin so moom mooy moom mooy ligganteel visa bi after am na ko ko wanne pour mu utal ko nit yi ok laamin Gambien la laamin naka I think um, on something that like my father is because because they now one time since uh, almost five months now tomorrow contact again. Oh okay. So five months yow bi nga ñëwee for better Amulo, amuloo dara Mom. No, no, no, no. no no non almost the same time uh, lu xew xanaa mom dafla indi Fufu nakala nakala proses process bi yo fan ga joge si Gambia sax if you don't mind uh, me acting fan ga joge si Gambia ma juga combo eno kombo la jugee kombo bandeka ka bori costa road costa road ok so naka nga déggee yeah. affaire bahrain bi lamin jata lamin jata la sant right suma understandé lamin jata la tuda yeah yeah ya. oke so naka nga deal bi yow how did you get to know about the deal no nga mom mom dafa ñëw bahrain so bu ñëwee bahrain xam naa suma friend ok damaa dégg waaw maa ngi laa dégg waaw waaw suma side friend kooku la kooku la dimbale kooku mu ñëw baxare si ñu ko oo fodee kooku kooku moom dafa waaw moom dafa dimbale koko pour kooku mu ñëw si baxare bi fii so one day so mana koko dañ doon communiquer dama understand mm-hmm. mana suma pako boo dañ doon communiquer kooku mu ne ma ne baxare bi fii dëgg dëgg moom compagnie bu nekk baax na moom moom agent am ku ko isi sax ko moom fii ko Gambia la nekk ko mun na waa dimbale pour mu ñëw ici ma fi nii ma ma daf ma aussi job ba pare dama am job bu cool ma am accommodation si leneen ma liggéey ma arrivé suma xaalis xam nga loolu yëpp déggoon ko so balaa maa dugal suma xaalis dama laajte lu leer mm-hmm. ya an dasan so apesikaw pou bunou nou ma afe mwenk la chous mwenk boy mwenk a sen mwen lan nomba mi mwenk na komuniket at mhm. moun so mwenk na komuniket at lan mwenk nan ou a ok fany wad mwenk a kompan nou gwo chou lan mwenk de mwenk a nyatran la mwenk mwenk lage dama fay 70,000 mwenk so bu ma bu ma fayee seventy thousand boobu noonu mhm. léegi mu ne ma ne léegi seventy thousand yëpp du mun a dem léegi da da ngaa traité ten thousand nga jox ko suma jabar foofu noonu Gambia si mhm. la jabaram si la ñëw suma workshop ma jël ten thousand dal si jox ko jabaram mhm. ngeen ne sa workshop da nga amoon workshop ban façon workshop nga amoon Gambia man spare part laa lay liggéey man man man loolu liggéey laa dugg naa si paaka bi Oh si ओके so you have a spare part shop. Yeah, I have a spare part shop. Man, म्हणजे मला मध्ये repair TV joint? Oh, okay. Wow, okay. Yeah, CV TV CV much more professional job. Okay. So lamin am so, am munenga jo halis bi 10,000 bi jabara mom. Wa 60,000 mo masen ko mom su agi mom 60,000 go su agi mom dina ko mutal mu joko agent book mo aku ku dealer. Okay. ok so bu ma ko seenee loolu mu ne ma ne ok sa visa bi dina pare say ok amoon bi leen laa fay almost leen laa fay one twenty mhm. léegi overtime dafa am mhm. good compagnie la anga waaye loolu yëpp agent bi moom waa kum nekka liggéey ko moo nekka di ko wax loolu yëpp après ko moom su pare daf ñu dee ko mu wàññi loolu mhm. so affaire noonu la fa demee so ñu ñu ñu ok gaa génne visa bi visa bu mu génne am na suma yeneen booy yu ma njëkkee fii ñu day ñëw di following week moom ma topp gaay mm-hmm. ok moom bu ma ñëwee man nu ma gisee système bi mm-hmm. ak salari bi nu mu faree demee système bi yëpp a change mm-hmm. yaa understand hello waaw maa laa dégg maa ngi laa dégg loud and clear so Lamin moom am uh, léegi yow bi visa bi génnee ñoom ñoo la utal visa da nga dem apply visa ndax la apply visa anywhere No, I don't apply visa anywhere. Manamato Gambia Mawa Tanyum Gardenia Masen Amandi Masen go gaya topoto suma visa. Buat naka nga de danga sen gay passport ndax lan naka lañ la topoto le visa dang len sen sa passport ndax lan. Waaw gay ne masen gay suma passport photocopy bi masen ko gay de pare gay gay defa suma visa bi sen mako ma dem print it out maams semua password tuh. gay na mana debi ban debi la wala dem doge tiket ma don dox ma ticket 45000 dollars yi ya understand aha ma dox semua tiket 45000 dollars yi ma doge ma ticket 45000 dollars yi after within two days Halo. Mm-hmm. aha mang la yang yang mang la so within two days nga flight to bahrain within no within two days bo nono ma wara talk within two days muna wana no da ma wara get flight ma must get ticket pay maybe the following on the following day the ma them dem get mm -hmm. i understand mm -hmm. so man si affaire noonu la fa dem ma jël flight ci guddi boobu noonu boori twelve o'clock ma jël flight ma dem wàcca Casablanca from Casablanca to Dubai from Dubai to Bahrain. Mm-hmm. oh ok waaye company bi waaw. waaye compagnie waaye compagnie bu isi. mën ici compagnie boobu kuulul ba pare dañ laa liggéeyal duñ la fay. Mhm. so yow bi nga ñëwee gis nga gisante nga ak maan boobu ndax gisante wuloo moom ba tey. kan lan maan bi ki ñoo ki compagnie borom compagnie bi wala ki ñoo wax good man ki leen indi foofu noonu gisante nga moom. gisante wu leen moom waaw moom moo dem aéroport moom moo fixé moom moo yóbbu si compagnie boobu noonu accommodation bi dégg ko afan waɗi tan bo hamne moylo ɗo ɗaga man te ko bo is very dirty a eh, very wash man so oh, yo condition bi nga nekkoon gambia mo gen condition bi nga nekka fofu wa my no Gambia, Miami, good peace. Anga, just anga. Dapat neka comme repi Gambia ak repi barem bi bena comme ça halis bi anga. Dapat am dole pare so mu nga tera develop so ame good salary. so yow loolu nga yaakaaroon ok so um, léegi yaa ngi liggéey ndax nekkuloo di liggéey waaw right now maa ngi under Mohamed uh, maa liggéey Sofitel uh, compagnie bu tudda AKM maa ngi liggéey foofu noonu waaye maa suma location ak moome moome fu mu dee liggéey yëpp benn la because moome moo nekk suma big uh, security manager foofu noonu mm-hmm. ok so yaa ngi foofu yaa ngi liggéey as a security am um, foofu noonu right si lan nga dee liggéey si hôtel si restaurant si kër ban façon yi fan nga nekk di liggéey non non maa ngi liggéey security as si main gate laa dee def mooy as a main gate main gate fan si kër ndax si hôtel ndax si restaurant fan non si non si hotel la moom main gate job moom it moom si boppam day liggéey so li ma jot a understand mooy ne yàgg nga liggéeyal nga force agency bi for three months fayuñ leen loolu am na amut waaw amna am na because man two months la amel waaye su ma boleh booy mu almost three months daanaka fayul leen. three months Dega-dega yeah fayul leen Yeah. so yow naka nga def ba génn foofu noonu. naka nga def because man man man lu ma daloon foofu noonu mooy di di thing is daf ma mujjee anga, ah, am na benn problème bu xàpp noonu benn ah, benn bés dama bëggoon a dem job so ma laajte ko salary mu ne ma salary dafa ñëw dee bi mhm. so mu moustache bi moo foowoon ne ma ne ko du ma dem liggéey mhm. ci moo xool ne mu ne ma dem job bu ma solee suma uniforme waase pour dem job fekk xaj bi mu ngi benn xaj bu nekk su si boori koñ bi foofu mu ngi amee doom boobu maatama dama understand mhm. xaj boobu ma maatee léegi ma call boss bi ma expliqué ko boss bi munu daal moom mu nekk di wax ne comme ça moom ma dem job mhm. loolu rek la nekk di gis oh moom mu ne nga dem job loolu rek la nekkoon di gis waaw non mu ne ma ma dem job hmm. su ma demutee job ma toog moo gën hmm. because man du ma mun a lifin de vrai mooy fen pour maa ko wànne xaaju xaaju daf ma maata hmm. diggante boobu noonu te everybody ñu ngi taal ñu ma bëgg a dimbali te boobu noonu benn baaree ni benn baaree ni moom ñoo jël si yóbbu ma hospital spend xaalisam ok I understand waaw benn baaree ni it's a policeman it's a it's a chief moom ma jël mu hospital mu spend own xaalisam waaw après si après laa nekkoon kooku mu maa dimbale après kooku mu ngi amoon hmm. mu ma ñëw bu ma nekk xam ne understand naa suma bu baax te pare maa am wér gu di liggéey ak moom benn moom tout moom mu fay ma boo dafa fekk am naa two hundred something bii léegi ma mun a njëriñ suma booba mu ne ma ne léegi Aboubacar go and find another job yaa understand hmm. Hmm. mu ne moom du ma mun a jox visa because suñ compagnie bi ñooñu dem ma daxa compagnie won compagnie mo isi fi ñoy de mom mu da ci kër bi ok waaw dañ la daa ci kër bi ok waaw waaw de ma daa foofu noonu après ma dem si beneen compagnie bu xam ne garage la so ma fee ak ñooñu boobu maa liggéey ak ñoom ñu maa fay every month one hundred BD. Mhm. one hundred dinar one hundred dinar right one hundred dinar loolu lañ la dee fay loolu lañ la doon fay loolu ñaata la si xaalis Gambia if you don't mind me asking 100 dinar non comme ça compagnie bu ma ici ñooñu maa fee eighty bidi eighty dinar compagnie bu ma ici si ok waaw ñooñu maa fee eighty bidi balaa maa génn foofu an nga gari ma daxaa foofu noonu mhm. gars bu ma daxee fu ma ok fu ma amoon mhm. ñooñu one hundred lañ ma doon fay waaw après mu jëyee kooku daf ma wax ne moom mun a job visa moom ma dem uti beneen job si laa jóg ma dem uti beneen job ma am AKM okay waaw AKM boobu noonu security boobu compagnie la ba pare ñooñu gaa si location yi location yi bari la gaa yi am gaa yi am Sofitel hotel mhm. American hospital ngi am different location mhm. so man man gaa Sofitel la moo pose ok léegi yow ana ana ana Lamin Jatta are you in touch with Lamin Jatta mi la fa indi waaw waaw because moom mu ma fi indi ba pare moom lu ma waxoon loolu nekk fa ba pare anga loolu tamit mu fa woon léegi lan nga lan nga waxtaan nga ak Lamin and what did he tell you ah moom lu mu nekk di wax pour moom the the thing is telling us like moom maa wax ne pour ñu mun afa ba loolu rek la nekk di wax ba pare anga ñu xamul loi fii te amul bu ñëwee bi xamul système fii so moom moo xam système fii how long nga nekk how long nga nekk Bahrain nii almost like, mun i am like one year because next month i am one year. next month i am one year. do you regret coming over there? No, I was regretted, but now I can thank God I, am coming up easy, easy. Yeah, I'm coming up easy, easy would you advise anybody pour mu ñëw foofu am um, soo gisee ñuy def I mean this discussion di create awareness ndax government Gambia dañ just sign deal ak government Saudi Arabia pour indi thousand Gambian foofu am um, uh, with different skills pour ñu ñëw def different liggéey anywhere from liggéey mbindaan all the way to um university lecturers and stuff Yo, do you think it's a good idea would you advise any Gambian pour mu ñëw am um, am si réewi wax wala am Saudi Arabia No, ma mo sa Gambia ñëw fii bro. Dëgga dëgga, I don't think so. mo ko sa So yow doo advice kenn soo amoon sa rakka mu dégg yëf yi mu ne la ah bro defal dara dama bugga pour nga jàppale ma pour ma ñëw because government bi ñu ne dañoo lii will you agree pour sa rakka pour mu ñëw join am um, dat dat baaj pour ñëw foofu. non non non non non non loolu accepté ma ko sa hmm. because dëgga bi dega bi deka bi ñu ñu nekk ci deka bi deka bi ba pare dañ laa dañ laa liggéeyal du la fay benn. Mm-hmm. E ba pare soo apply compagnie su nekkee yaa ngi jóge outside country nga ñëw. Mm-hmm. waaw fa la mun na dee jox mun na laa jox one twenty or one forty lakh dal si gars yi nekk Gambia mun na laa jox offre letter boobu soo ñëwee baaree mun na ñëw change offre letter boobu ñu mun nañ ko def seventy bidi sax or sixty bidi sax. te mm-hmm. doko bañ te so ñëwee fii e kamoo laa dundal sabuba nga de dundal mm-hmm. waaw loolu moo fi nekk nag te dëkk bi ah dëgg dëgg dëgg man fii nii daal man situation ni fii laa xamutoon first time waaye léegi moom nanda naa fii xam naa système waaye ñaanuma kenn pour kenn mu isi fii doomam bi non mm-hmm. impossible loolu ñaanuma ko yàlla sax ñaanuloo kenn ban advice nga amal government bi foog nga ne am nga yaakaar ne suñ indee Gambian yi foofu ñoom ñu ngi garanti ne dinañ toppatoo gars yi suñ ñëwee dinañ make sure ne seen liggéey am nañ ko liñ leen a fay seen dëkkuwaay conditions yëpp according to minister Amat Bah ñoom dinañ régler loolu yëpp yow ban advice nga amal government bi. ah man advice moo am uh, mooy ne comme la sax. thousand. waaw government su agréé loolu comme ça gars yi fi thousand Gambian fii nii Saudi Arabia au Bahrain pour gars yi ñëw gars yi liggéey fii su nekkee gars mun nañoo taxawal ñooñu. oh ok so yow I mean yow did you reach out to um suñ understanding Gambia amuñ Saudi um, uh, embassy foofu have you guys reached out to the Gambian embassy in Saudi Arabia wala have you registered with any government institution or agency. Hmm. non man man lu on advice moo am. Hmm. ma ndax yéen jokku ngeen benn embassy wala government institution Gambian embassy bi in Saudi yéen jokku ngeen pour wax gaay ne ñun ñu ngi fii nii Gambian lañ ñu ngi Bahrain fii nii ndax def ngeen loolu ndax loolu amut. non déedéet déedéet ñu musuñ taa ñun ñun suñu bopp la nekk di fayal fii. suñu oh. bopp la nekk di fayal dañu daje ku ku tudda Mohamed mu ñu laccé lu ñu dal fi ah, nga ñu ko expérience un problème be mhm. bare ñu ngi toog fi almost one good year daanaka one good ya légui ñun dencu dara sun account bo xamné ñu ngi acci dara sun family comme ça ah, nga mhm. affaire mu ngi xaatoon sun kaw dal mhm. affaire yi usine piin yee be bare dañ la défé sa salaire da nga dem liggéey wa dañ la fee sa salaire la nekkal ci santon rek ok yéen ñaata Gambian yéen ñaata Gambian seen a foofu if you don't mind me asking do you know yéen ñaata fa nekka ah right now right now su ñu bokkal company right now ñu foo la yéen foo ok ki dafa ama ama ki dafa difin dafa dem beneen compagnie waaye foofu nag ñu mu mu ak keneen ñoo ñoo ñëwandoor mhm. oh ok waaw mhm. But right okay. now, new phone, you know, the same company right now. Mm ban advice nga am pour Gambian youth si mel ni yow ñoo xam ne ñu ngi woon Gambie ñu ngi fa am liggéey am seen place yu baax comme yow ni nga ko waxee ñi laaj nañ la 70000 Lamin laaj na la nga jël jox ten jabaram nga def li nga war a def nga mun a jëndal sa bopp ticket def yooyu yëpp ban advice nga am pour youth yi nga xam ne ñu ngi jàppa si dara Gambia ñu dégg such opportunities rek ne xaaral ma dugga si yow do you have any advice for those people non moom fu ma kenn pour mu ñëw dëkki arab mhm. advice ma kenn pour mu ñëw arab fu mu nekk nii dafa dafa xaat soo ñëwee fii dañ laa nekk du la for nothing I mhm. understand mhm. once nga understand mun naa wax na comme ça baarin baarin comme soo ñëwee baarin nga am fi wan ya nga nanda affaire yi nga gis ku laa dimbale waaw mun ngaa dem si loo bi mun na laa faytal Mm. waaw baarin loo waaw baarin gaasem loo dafa street mm-hmm. okay Bahrain, wow, mm. Bahrain, the gasin law. I don't know anything about Saudi Arabia, but mm-hmm. Bahrain law is very straightful. Mm-hmm. Bahrain law, nyom garen juk. Wow, nyom so so so si company bo hamne dun la dey pay two months, three months. Mm-hmm. So dem alima re so complain for sa company bilen dey o. Oh, ni all a ni listen la so negi la ok duñ la fay dañ laa sa good one year ñu jëla three months advance pour nga dem uti beneen job mhm. ok waaw Bahrain waaw Bahrain loolu la mel mhm. Mhm. waaye Saudi Arabia I don't know anything about it because moom Bahrain laa nekk right now Bahrain waaw that's fair Bahrain laa nekk that's fair enough thank you very much appreciate naa ko lan mooy sa final words to um uh, followers yi lan mooy sa final words ah man de dama bëgg nga wax suma boy bi fii nii non suma beneen boy mi ngi ngi toog suma boor. jox ma sa boy bi ma wax moom naka la tudda Ibrahim eh bo eh I. yéen a déglu di seetaan lu tax Gambian Dem Show kii mooy um, um, Baboucarr um, uh, Sankare ah, Gambian la mu ngi foofu ci uh, ci naari boori Saudi Arabia voilà noonu of course mu ngi explain li nga xamne mom moom loolu la fiir mu ne dinañu jox freenam bi Ibrahima Ibrahima Ibrahima waaw Ibrahima comme ça ngi mu ci nekk mo ñu bolé ak mom comme suñu mhm. problème ci mohammed ama bolé yeen pour ma waxtaan ak yeen dina waxtaan ak mohammed ci kanam ma waaw Ibrahima naka Ibrahima nak nga santa ah? man maa ngi sant ibrahim ajaju Jaaju ok uh, fan nga dëkk si Gambia. may diga kunku Kunkujang man laa kan bokk ak dëkk benn place. oh Kunkujang ok. Um, mm -hmm. naka nga dem kan nga dem Bahrain ni how long nga kan ya nekk Bahrain. man mm, like next month. next month lay am one year. so yen ñaar basically around the same time ngeen fa demee no man ma jiru abubakar yo ya ko jitu oh, okay kon ya ya ya, ya jaati game dala yeah yow so am lan nga don def gambia fo nga ñew bahrain man ma ngi def business business wantu sangi business Oh, uh, kosmetik. Kosmetik. cosmetic. Cosmetic, okay. How was that going for you? Hmm? Man, how was that going for you? Okay. Yeah, it was very good. Hmm. So nga bàyyi ko fa ñëw Bahrain yow it Lamine mola. indi ndak kenen mola indi. Yeah, Lamine. Lamine mola indi okay. Do you regret coming to Bahrain? Mane? do you regret coming to Bahrain? Huh? yeah yeah yeah. amoo regret nag. da ko regret. bu baax ok oh da nga regret bu baax lu tax nga regret ko. because time moo doon time moo moo nekkoon Gambia ba maa doon am maa doon def business bu cool te mu doon dox. so after si uh, force lu ma force li ma force woon naa woo xam ne. I will come in if I come here I will like um, have a salary of like. 160, 170. Mm-hmm. So, I calculate like two years. Yeah. Not Tanzania. So, it was like a very good money. So, man, I let me go and because Gormo, Nagawara, Gina, or something like that. After I knew Hamga, we didn't know. Hamga, so they were town. Mm. After I Gina cool. So, two years, I calculate come up. Munega Bahavu cool down. Mm-hmm. So, understand? Mm-hmm. So, man, Harama, the Flulu, after my dead word, Gambia said, Nakala. silagina sini nyofi mu gën a garaaw waaw xam nga waaye Oh man tamit na ma ko day gis ne yëfi góor la yëfi góor la ok di nga advice sa raka wala sa néebo wala anybody ko xam pour mu ñëw Bahrain wala ci government bi soo gisee ñuy li government bi ñoo sign contract ñoo sign contract ak Saudi Arabia pour indi thousand Gambian so yo ndax di nga advice anybody ko xam pour mu join ci agreement bubu pour mu ñew amin suñ ko shortlisté pour mu anda gaay ñew hmm waaw yow yow yow ndax yow di nga advice ken pour mu ñew ci deal bobu pour mu ñew am am am am Bahrain wala Saudi Arabia wala ben dëkki will you advise anybody ah. man daal diga diga ci si daal comme nu mo la rek amoko ko regret danga regret ok <laughs> well <laughs> thank you very much kon dégg ngeen Ibrahima Jaaju mu ne dafa regret ñëw um, uh, foofu noonu Ibrahima thank you very much Ibrahima Jaabi Jaabi waaw Ibrahima Jaabi ok thank you very much Ibrahima mm-hmm. jërëjëf Ibrahima mm-hmm. Ah, kooku mooy ah, Ibrahima Diaby moom mu nekk fële ca Bahrain moom ak kii ñuy wax naka lañ ko ooyee kii ñuy wax ah, Baboucar Sankare ñoom ñaar kat ay Gambians lañ ñoo xam ne de actually had high hopes ak expectations ne suñ demee foofu noonu dina am solo pour ñoom bu baax a baax a baax. am expectoon nañ ne suñ demee foofu dina dox pour ñoom expectoon nañ ne suñ demee foofu dinañ am liggéey yu baax comme niñ ko waxee ne dañ leen digoon ne dinañ leen jox am euh, liggéey boo xam ne dinañ leen fay 170 dinar waaye apparemment mujjeewuñ leen a fay loolu kon duñ def dara lu ñu delluwaat ci embassy bi ci Saudi Arabia pour waxtaan ak kii di Ibrahima Diba rek hopefully we can get Ibrahima Diba pour waxtaan ak moom yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem. allo Salam. Mr. Diba, how are you? Alhamdulillah. This is Pa Usman you are calling you live from the Gambian Talents TV. Oh, okay, my brother. How are you? Alhamdulillah. You are live on air. Okay. Uh, we miss you here in Seattle. <laughs> I miss you too. uh-huh. <laughs> MashaAllah. Mr. Diba, you. My hometown. Mm -hmm, I know, right? Um, I wouldn't want to take much of your time, and thank you for actually accepting to talk to us. Um, uh, um, lately, we've seen announcement by the Gambia government um, via the Minister of Tourism and Culture that the Gambia is sending about 1,000 Gambians or so to Saudi Arabia to come and be engaged in different um, uh, type of jobs, anywhere from professional jobs all the way to mates and stuff. And um, this is raising a lot of eyebrows. I have made it mm-hmm. clear at the beginning that you are not talking on an official capacity, but as an individual mm-hmm. living in Saudi Arabia. That is what um, mm-hmm. um, um, is in that capacity you will be talking. Um, how long have you been in Saudi Arabia? Well, I have uh, one year in Saudi. Uh, the 14th of October this month is my full year. Oh, okay you were hired to serve as a protocol officer at the Gambian embassy in Saudi. Am I right? Yes, I am the protocol welfare officer. So all the welfare uh, in my office. Oh, okay. Um, that's nice yes. to hear. So um, we've had this, Mr. Diba, and there are a lot of concerns. I just talked to a couple of Gambians in Bahrain who are suffering there and they regret um, mm -hmm. coming to Bahrain. And they even said they mm-hmm. will not advise anybody to come to any of the Arab countries because of the conditions, mm-hmm. because of the type of job, because they work and don't get paid and the like. I just hung up with them. When I called you and I didn't get hold of you, I called them back. Um, uh, what is your reaction to what those people say? Is it true that I mean Saudi Arabia and all the Arab world, Middle East is a very hard place to be to work at or to get any form of opportunity? Well, first of all, I sympathize their mm-hmm. situation, mm -hmm. and I I felt for them mm -hmm. that um, they are in that type of um, situation. Mm -hmm. um, one thing that we need to realize here, mm-hmm. um, they propose contract. Mm-hmm. It is not an, an individual-based contract mm-hmm. like the way they travel in Bahrain um, and the Gulf countries. Mm-hmm. So um, those were individual uh, human human trafficking way of doing things. Mm-hmm. It's different from the way the government handle business. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. Um, but I can only reference uh, and also quote according to the history. Mm-hmm. For the past 70 years, mm-hmm. Gambians have been enjoying having a good relationship with the Saudi Arabia in particular. Mm-hmm. You understand? Uh, going back to the history, right after our, after our independence, uh, the Sheikh Hatta Bojans and other scholars, Sheikh Omar Bunjay, they all through come to the scholarship of Saudi Arabia. Mm-hmm. We mm. have over five to 10,000 Gambians mm-hmm. who graduated from University of Saudi Arabia. Mm-hmm. And I can tell you today, Saudi Arabia have the largest concentration of Gambian students in, in the Saudi, in the, in the kingdom, with their families being sponsored 100% free up to PhD level. Let me say this. After being here for a year, I have never received a single complaint from the city, citizens. They're hearing me. If they have the problem, if they have situation, if they are working and they are not paid, we haven't received that kind of complaint in our office as of now. Um, and I can tell you, there's no perfect nation, there's no perfect country in this world. Mm-hmm. Well, Saudi have their issue, mm-hmm. but the opportunity that we are trying to create here, mm-hmm. Bah, mm-hmm is for those who graduate mm-hmm. from this part of world mm-hmm. and they are still in Gambia and they are not employed. Mm-hmm. They can come here. The schools are here mm-hmm. where they can go and teach. Mm-hmm. You understand? They can go to primary school. They can go to nursery school. They can earn nothing less than thirty to forty thousand dollars in equivalent. You understand? Mm-hmm. You can have the nurses. They can come and work at the hospitals. You understand? During the Hajj, Mm-hmm. You're talking about four to five million people come to Hajj. Mm-hmm. They look for people who can come mm-hmm. and do the labor mm-hmm. because they cannot, they cannot, they cannot do it by themselves. Mm-hmm. You understand? So people come and grab those kind of opportunity from other part of the world. If you can come for only a month during the Hajj and work as a young man and able to have five thousand real, five thousand real is almost almost 180,000. Mm-hmm. 180,000 can consume your, mm. your, your, your yearly life. Yes, Lam, um, uh, uh, Ibrahim, I'm not cutting you short, but and um, this is um, very true, of course. The um, Arab Arab money, the dinar, and all of this American foreign currency basically is, um, uh, of course, very good. Um, when you exchange it in Gambia, it can do a lot for you. But the concern that a lot of people are having, including these young people I talk to, they are always misled and what they are told and what they normally find out when they go there is usually different. That, that's why I, that's why I start my topic. I uh-huh. said those contracts and this one are different. Mm-hmm. Those are individual based contracts that I have no idea, I have no knowledge how mm-hmm. it comes about. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. But this is government to government. Mm-hmm. We are discussing. Mm-hmm. We will send it to the Ministry of, Ministry of Justice. Mm-hmm. They will look into it. Mm-hmm. You understand? It will go to the Parliament, and mm-hmm. Parliament will look what it entails. If Parliament approve it, then it will come to an actual contract. Right now, it's only negotiation, facilitating. You understand? Okay. And also, I'm telling you, in the history, in the past, we haven't have any situations whereby Gambians come here and complain and say, I've been working for this company. I'm, I'm not saying it's not happening in any other part of the world. Mm -hmm. I'm not saying it's not happening in other part of the Gulf country. Mm -hmm. That's why the, the, government is very responsible. They are looking for the country that they think their people can come and work comfortably, suitably. So, and that's why so, you have so, two embassies so in Saudi. So your embassy will guarantee this, um, uh, all the things. I just played the minister, honorable minister statement, and of course he said the same thing you said, that government is different from individuals, and the reason why they are trying to do this is to cop out the bad menace and those bad individuals who are actually trafficking our people according to the minister, I mean, the contract is going to be six months. Every six months is going to be renewable, or they can look at it and change any clause if they are not satisfied. The minister went on to explain this very clearly and even said that um, the conditions they, um, will be looked at. He said that um, the pay will be looked at. He talked about all the different things um, that are involved um, as far as the contract is concerned, which is very assuring. So you are telling me or assuring further that your embassy, of course, will take care of um, um, these things and the welfare of the people. You will know the citizens, where they are going, where they are living, whether they are getting paid. Just like these people said, they, uh, the contracts that they were given said 160, 170 dinar. But when they came there, they were offered 50, 60, or 70. So is your embassy and the Gambia government going to be actually able to enforce these things? Are you guys going to enforce it? Uh, um, as I mentioned earlier, mm-hmm. that I am the welfare officer mm-hmm. uh, in Gambian embassy. Mm-hmm. Um, I don't have to talk about my personality, mm-hmm. but I've been a hustler. Mm-hmm. I've been hustling mm-hmm. uh, the most part of my life from age of 20 until I turned to age of 37 that I, mm-hmm. you know, assumed this duty. Mm-hmm. I know what it is for somebody to work for someone mm-hmm. without being paid. Mm-hmm. I cannot sit down here mm-hmm. and see uh, a young a Gambian, mm-hmm. I mean, work for the whole month, and uh, the person who hired you refuse to, to pay you. Okay, what I are mean, you going to do? I, I, what are you going to do if that situation arises? When that happens, we will, we will visit the contract that we sign, and this person must pay it. But let me tell you one thing mm-hmm. this world today, mm-hmm. I mean, when people get into an agreement, Mm-hmm. government to government. Every government wants to, um, I mean, I mean, protect mm-hmm. your integrity. Mm-hmm. We are not going to bring Gambian here mm-hmm. and let other people use them as slaves. Mm-hmm. Yeah, that that one can be just assured. What is going to happen? I mean, you can have a perfect perfect contract mm-hmm. is impossible. Mm-hmm. You understand? But we will do our best. I mean, mm-hmm. this is not going to benefit Ibrahim Madiba anything. Mm-hmm. But I know, mm-hmm. I know there are students out there who are calling me on a daily basis. If you see an opportunity, if you see somebody who wants to hire someone, let me know. Okay. These are the concerns. These are the situations that make us to reach to this kind of decision. Mm-hmm. It's, going to well, Mr. Diba, I will challenge. I will challenge you. I have known you for quite a while. You live with us here in Seattle, and uh, you and I constantly stay in touch. From what I know you to be, the type of person you were a people's person in Seattle. You were helping Gambians in Seattle. You have a business that serves Gambians in Seattle. You are the one that have been mobilizing Gambians in Seattle, putting in your own resources and doing a lot of things. So I will tell you, mm-hmm. I will be surprised and disappointed to see you go to Saudi Arabia just because you are working for a government and you agree to certain things. Um, we can come back to you and rely on you based on the little we know about you. We can rely on you that you will continue the same spirit that you had in Seattle, that you were doing. I mean, the things you were doing. You left your own family stuff. You left your own individual stuff to serve Gambians in Seattle. Can we rely on uh, you that um, we're going to have have, have you to um, uh, continue the same thing, spirit? Let me let me say this. Every morning that I wake up, mm -hmm. I think of how best can I serve my country mm -hmm. to mm-hmm. the best of my ability. You mm -hmm. know mm-hmm. why? Mm-hmm. Um, my kids are going to school for free. The government paid my house for free. They pay me with a foreign currency. Mm-hmm. If you compare this, you can mm-hmm. say almost 100 people's salary. That's what they put together and give it to one person like me. Mm-hmm. I, I cannot I cannot eat that money mm-hmm. and, and, and keep idling on the streets mm-hmm. without making effort to mm-hmm. see the welfare of Gambians mm-hmm. is protected. Wallahi, if, if, if it comes to that level, I rather prefer to resign and then go back to Seattle. Understand? I mean, I am I am on the air. Okay. I don't have to say it. Mm-hmm. But sometimes you sacrifice to do something for for the for the generation even yet unborn. Mm-hmm. I mean, it will go into the annals of the history. That's how I look at things. Mm-hmm. It's not going to benefit me to bring. If at all there is a commission for me there, mm-hmm. but this is government to government, I'm not going to earn any commission. Mm-hmm. I, <laughs> you know, so why should I put the young people in a jeopardy? And let me tell you something. Mm-hmm. Some of these people understand the culture of Saudi Arabia. Mm-hmm. They live in Saudi Arabia for more than 10 years. Mm-hmm. They went through the graduate school up to the PhD level. Mm-hmm. You understand? Okay. okay. I mean, pa, mm-hmm. it's an opportunity. When okay. people people narrow people narrow it down to the Mindania, mm-hmm. which is not an issue you understand? Mm-hmm. Even that Mindania, mm-hmm. what we are going to look at it mm-hmm. is that you will work from certain hours to a certain hour and I, then go home. Ibra- Ibrahim, there is no doubt that there is cause for concern, though, because I um, we have been sharing videos. There is this Gambian lady that is currently watching. Her name is Fatu Jan. This is not even during this government. This was during Yaya Jame's government. They went there, and according to Fatu Jan, um, they have, she has been told that her government sold her in jail in um, um, um, um, over there in the Middle East. She's been through a lot. She's currently in the Gambia. She runs a charity um, that is actually advocating against this human trafficking, especially for young girls. According to Fatou Jan, Gambians get raped over there. Gambian girls get raped over there. This is a victim that is talking, um, Ibrahima. So there is definitely but cause for when, concern, when, and we are when, sharing. When, she said, we, we are sharing other, we are sharing videos what, what, from other countries. Government, mm-hmm. government of the Gambia. This I is not the Adama Barrow's government. Yes, this is not Adama Barrow's government, by the way. But during Yaya no, Jammeh's time even, is when she went there. Even even I'm I'm I'm I, I'm speaking mm-hmm. from Saudi Arabia, mm-hmm. and I'm talking on behalf of Saudi Arabia. Mm-hmm. I cannot control what happened in other parts of the world, mm-hmm. and the government only signed a contract with one country, Qatar. Mm-hmm. Mm-hmm. Qatar only Qatar. Mm-hmm. So other countries that mm-hmm. people go to, they go into individual arrangement, not with the government arrangement. Yes, that's uh, like you Qatar. Understand? Uh, there are Gambians in Qatar. There are Gambians in Kuwait. Anyway, I'll be talking to Fatu in a little bit, but I'm just telling you, Fatu has been launching but, campaigns and doing yes. things and, and, and, and, and saying a lot of things how they are being raped how they are being forced to do things, how they work and don't get paid, how they are maltreated beyond human imagination. These are cause for concern, definitely. It's important that you are giving yes. us assurance, and that yes. is why it's good I mean, to engage I mean, with folks like you. Let me, let me, let people not lose confidence in their people, in okay. their government. Okay. You understand? Just because of the, the, the past history. Okay. You understand? When we do that, then we will not get into any other arrangement. Okay. You know, that's, because statement. you have been to the. That's, that's because you have statement. been to an arrangement and that arrangement fails. Mm -hmm. That means that you're going to fall your hand. You will not make any other trial. Mm -hmm. We don't want our citizens to come here and work. Mm -hmm. We want other people to come to Gambia and work to create opportunity. Mm-hmm. But as of this time, at this moment, mm-hmm. it's not available. That's why our citizens are going out. So okay. when they are going out, we have to create an suitable environment and mm-hmm. conducive environment for them. That's what we are trying to do here mm Even this contract, the people who are coming, mm you might have some people who are going to face difficulties. You mm. cannot say that there are zero there will be no problem. Mm-hmm. Even in, in, in, in United States, that is right. People get maltreated. That people get right. maltreated by other people. That's absolutely you right. That's How many Gambians would have been shot in gas stations? That's How many Gambians would have been shot in stores That's in right. New York City? That's but right. we are not saying that let us not go to the United States. That's but we are trying to create an environment where Gambians can able to earn opportunity. So, so you, you, are, you are assuring you are assuring that the okay that's a fair statement as long as the embassy you know, and we will be, when the minister spoke he said the media is their partner of course as the fourth arm of government and they will do everything possible to actually engage the media i hope you guys will open up we will come to you guys occasionally and we will try to know the process and, and we will be contacting to ask questions and if we know anybody that is involved in the process we will like to get in touch with them in contact occasionally to see their conditions just like these kids in bahrain contacted us they were the ones that contacted me I did not contact them. Yes. I didn't even know they exist. They saw the stuff and they and thought they can say, saw their voice, let me tell you, share their voice through us, you. and that's how they came to me. I I had a guy who called me yesterday. Uh-huh. I said, Ibrahim Adiba, mm-hmm. some of these people are just complaining. Mm-hmm. If you come here, you don't want to work. Mm-hmm. You want to be lazy. The mm-hmm. people who bring the person who bring you here, who brought you here, will be frustrated. At the end of the day, you will get into trouble with the person. I said, well, with all that, because he said, I'm very, I'm very happy here. I've been here for 17 years. I have my friends. I have my family members. They are working here. They are happy. One mm. part, other people are happy. Another part, others are not happy. So those who are not happy will find a way to see how best we can help them. You mm-hmm. understand? To be happy. But we're not just going to say, nee, this is what happened to me. But situations happen to people in even the Western countries mm-hmm. that when they narrate to other people, you will put your hand into your mouth. You understand? Mm-hmm. But what we are saying here is not to not to support Arab over Gambians. I will not do that, my brother. Okay. But what I'm saying is we want to create opportunity. You come to Saudi and work for a month and have and able to earn over one hundred eighty thousand just a month during the Hajj. Mm-hmm. They pay you labor. You go with cash amount of money that much. Mm-hmm. <laughs> anyway, Saudi Arabia. Mm-hmm is one of the countries that support Gambia mm-hmm. more than any other country in the whole world. I can mm-hmm. raise my hand. Mm-hmm. Right now, they are they are they are sponsoring our, our OIC, mm-hmm. 100 kilometer road. Mm-hmm. Each kilometer, one million. They are giving us 260 million. Mm-hmm. We're not giving them anything. It's not that Gambia have given them something. They see us as Muslims. They, they want to support us. That's it. Okay. So so they I mean I mean they have their weaknesses. They have their weaknesses. I will say that today, tomorrow. But let mm-hmm. us not lose hope. Mm-hmm. So will you will you allow your family member to come um, and be part of this? Some people are arguing and are um, always throwing it back to <laughs> all of you guys that are defending it and calling it a good deal. Starting from my, the minister, people brother, are challenging and saying, "Will you allow a family me, member or me, a loved one of yours to be part me, of let this me, deal?" Let me let me tell you one, uh, one thing. Mm -hmm. If mm-hmm. this country is that bad, I won't bring my wife here. I won't bring my kids here. I have a brother who is with me. Another sister is with me. Yeah. I'm looking for a job for them, my brother. Yeah, but you if are you are, you are you are an official, Ibrahim. You are completely different, though. These are individuals who are not working at an embassy. No, no. You you see, you are a diplomat, see, and you have that diplomatic see, immunity when, to enjoy. It's di- gonna be different, Ibrahim. Let me tell you something. If mm-hmm. I'm outside, nobody knows mm-hmm. this is a diplomat. When I'm walking on the street, mm-hmm. <laughs> he's probably on my chest is a diplomat. Yes. You understand? Yes. I just have the confidence in the system. That's why I brought mm-hmm. them here. It's not mm-hmm. that when they have a problem, I'm just gonna bounce my chest and say I'm a diplomat. No. Mm-hmm. They are not going to work as a diplomat in that in that workplace. <laughs> They are not working there as a diplomat. Yes. You understand? Mm-hmm. Even if I see myself as a diplomat, I have to follow the rules and regulations of this country. Mm-hmm. If I don't want that, then let me get out of here. They have their culture. Their laws are different from the other part of the world. They have their strengths. They have their other things. You understand? But let me tell you one thing. This country is very, very secure internally. For now. It's one of the most secure country I ever see in my life. I have traveled at least Europe, America. Um, Ibra- Ibrahim, is- Ibrahim, Saudi Arabia, mm-hmm. just recently, I'm following the news. Jamal Khashoggi, yes. the, the, the journalist, got killed at the Saudi embassy in Turkey. They denied it for yes. two solid weeks and then later came yes. back. They've been flip flopping and changing their stories like nothing happened. And that is a government we are dealing with. They are, and, and, and, and yeah. you can assure us a government who killed somebody have flip flop over mm -hmm. and mm-hmm. over and eventually agreed and took responsibility mm-hmm. that it actually did happen when they said that he left the embassy at first then they said he was killed in a in he died in a fist fight then later they said um, um, um, um they held other people responsible and this is the um, uh, uh, prince that is actually being accused of being the person that is behind this you have confidence in that government you. that is flopping. But, uh, now, uh -huh. now, now you are getting into politics. Okay. No, it's not. Me, that's why I uh-huh, said it, there's, yeah, there's no, flopping. I, I, I, I told you there's mm -hmm. no perfect mm -hmm. government in this world, including the country that I am mm hosted at this moment. Mm-hmm. You understand? They have their weaknesses, serious weaknesses. Mm-hmm. You understand? They do. They have their political differences. They have their political problems with other people. You understand? But I'm telling you, the citizens here, people inside, inside. Mm-hmm. I mean, I mean, you don't see you don't see much violence in this country. Yeah, but I'm telling I'm telling because you though, this is something that okay, nobody is accusing them us. I'm following the news keenly, and I have seen from the first day that this Jamal Khashoggi um, um thing happened, they how they have denied said, it said, and all of it, is, and now that is part of their that is part that is part of their weakness. That's yes, so they are flip flopping. So you can trust that government though that whatever they sign with us, they will. I mean, but there's no there's no one who is more flip flopping than, than Donald Trump of your America. <laughs> Does it make it right? Sending bombs to other people. Does it make it right? I agree. I, I agree to that. I agree to that. Uh -huh. But I'm also telling you, mm -hmm. with all that, mm -hmm. internal security, internal security for the citizens. from 1960, I told you up to the date, there is no single Gambian who complained of, of being suffering from the gun. Nobody has been ever gone shot in this country from the Gambian community from 1965, from the mm -hmm. independence to date. So mm-hmm. the record on our side, mm-hmm. that's what I said. I said on our side, that is, the side that I can okay. protect, that is the side that I can stand up for. So, so, uh, uh, so in know. your in your view, my last question to you before I let you go. In your view, Arab people respect mm-hmm. black people. A lot of people are arguing that Arabs don't respect black people. Okay. In your view, Arabs see, respect black see, people. See, when, when some people see me walking on the street, the first question they ask me, "Are you a Nigerian?" I said, no, I'm from Gambia, I'm from West. and then even in Nigeria, it's not because it's not the all Nigerians are crook as bad people. Uh-huh. So I'm not protecting Arabs here and their integrity. Mm-hmm. I'm talking about the Saudi Arabia, mm-hmm. the land of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh-huh. You understand? Mm-hmm. They, they, they, they, they, they, they preach. They do so many other things. They also did some some mm-hmm. things that are not accepted. But but some people when they, they, say, "Are you from Nigeria?" They want to associate. They don't want to associate themselves with me mm-hmm. because of why? Because of the reputation. So Arabs are Arabs. They have mm-hmm. their big problem. They have their problems. You understand? Mm-hmm. I am not protecting that. What I'm mm-hmm. trying to say is, in the history, for the past history, Gambians have been saved mm-hmm. throughout, and then you have Mm-hmm. Over 700 Gambian students with their families in this, in this country today. University of Medina, mm-hmm. uh, to Islam, Jam go Taiba, Tabuk, Omul in Makkah. I have mm-hmm. visited all these Jamias, mm-hmm. my brother. And mm-hmm. I, have seen them, they haven't, they are not complaining to me, they are happy. I'm assuming if others come, they will be happy like them. That's what I'm saying. Okay. That's what would be your last word to our um, listeners and viewers? You are I have, well, your, beautiful, I, mean, I have your beautiful picture with, with, you and the Alaji thingy. Mm -hmm. Go ahead. Go ahead, go ahead, pa, and, and No, I said I have your beautiful picture with you as the allergy right there on the screen, and people are watching and listening. What would be your last word to the Gambians that are listening to you? <laughs> well, Pa, I am, I am, I am grateful to Allah, mm -hmm. Subhana, mm -hmm. who have created um, this opportunity for me mm -hmm. to be part of this part of the world. Mm-hmm. You understand? It's mm-hmm. one of the most blessed land on the surface of earth for me. Mm-hmm. I think. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. I mean, when you go to Medina mm-hmm. for a vacation, mm-hmm. people are smiling to you both day and night. It's an environment where you see two million people around every day, both day and night. You understand? And they are they are, they are, they are, they are, nice people to me. You understand? I mean, they, in, in that environment, I am not there as a diplomat. I am there as a Muslim. Mm-hmm. I am there as somebody, I mean, uh, an ordinary person. Mm-hmm. But one thing I want to thank Gambians for, mm-hmm. they are seriously concerned about the welfare of their country, mm-hmm. about a way forward for their country. Mm-hmm. I mean, that is showing, uh, I mean, people are really into a betterment of their country. Mm-hmm. In turn, we are also trying to do something to improve the living condition of the people of that country. Mm-hmm. Anything, any arrangement mm-hmm. that we will get into, mm-hmm. we will not just jump and get into the arrangement because we are desperate. We are not desperate. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. We have seen the opportunities that other people are, are, are, are grabbing. Mm-hmm. We also intend it for our people. You understand? One person will come here for a month and have a lot of money. I want also my brothers and my sisters also to come and have the same opportunity. They're looking for cooks, people who are cooks in Gambia. They can come and cook for the whole for the whole month. Mm -hmm. So mm-hmm. far, my advice to Gambians: mm -hmm. any situation that arises, mm -hmm. let them use their senses, let them use their mind, let them analyze very well, but mm-hmm. let them do it maturely. Mm-hmm. I mean, you come into the media shouting, "We are not going to get into this." Who are you? You cannot stop the government, hey, my friend. If government want to get into something, they go to parliament. Parliament approve it. Who am I to stop that? Mm -hmm. If Parliament approves something, then it's a law, you have to respect it. Mm -hmm. You understand? Mm -hmm. So let us be very responsible in our dealings. Mm -hmm. And then let us all stop casting. That was Ibra- the I was Ibrahim, to Min- Minister uh, did not uh, say uh, anything about Parliament on this deal. He said the King may sign it for the next couple of weeks and then justice will do their part. He never said anything about Parliament. And we have parliamentarians like Madi Sise and them who actually condemned the government and did not appreciate how the government signed the Simlex deal when they were waiting for the government to get back to them. So government has been accused by even some parliamentarians of ignoring their plight and just signing deals and then taking it to them or sometimes just ignoring them and doing stuff. And these are National Assembly members who I have on this show or we have on our platform that actually said this. So you're talking about the parliamentarians. Are uh, you guaranteeing that government I, I will, I, I, will. I will be disappointed if Madi is jumping jumping into the issues. Madi said concluding that. Madi said that no, on no, our let Me, let, me, let me finish. Mm -hmm. Let me finish. I, I have a lot of respect for Madi, mm -hmm. but a contract like this mm -hmm. cannot be signed without going through the parliament, my brother. Well, this is not it, bigger it, than it, the Simlex contract. They are making our national ID card. You want to open our? They are making our national ID card and that was actually <laughs> signed. Mali and they were disappointed I, <laughs> you, about you, that deal. You, you pushing me, you pushing me into politics. No, I'm telling but you. national ID, national ID arrangement was when? When was that? That's a month ago. Was that true? That's a month ago. Was that true? <laughs> Just a month ah. ago, the government, the National Assembly members are waiting for the government to get back to them ah. with some documents, and the government signed it. The next minute, we see the president I have his not, ID. I am not. I am not going to get politics of that nature I mean, I am telling you, this case, uh-huh. this matter cannot be can, this cannot be signed mm-hmm. without going to National Assembly and Justice Department. Okay. That's one I can tell you. Okay. Well, we will take. We will listen. We are following we watched the minister, and yes. he said he mentioned justice, uh, but he never said anything about the National Assembly. So we will follow and monitor the developments. Before I let you go, I cannot let interview Ibrahim Adiba, one-time powerful <laughs> member and spokesperson of the UDP, which you still are. without talking to you about UDP, I wanted to forget about that. I almost forgot about it. UDP Barrow Camp is Ibrahim a UDP Barrow Camp or is it Camp? Which one are you? Well, let me tell you. Are you UDP <laughs> Barrow Camp or Uzenu Dabo Camp? <laughs> uh-huh. Well, Ibrahim Madiba, a diplomat, is talking. You understand? <laughs> When that time are, comes, are you still a part of UDP? Time, are you still a part of UDP? are you still once, a, once a monkey, you always a monkey. once a soldier, you always a soldier. Well, anyway, uh, by 2021, by uh -huh. 2021, uh -huh. I will, I will, I will resign my job and uh, and uh, get into an active politics. I can tell you that yeah. by that time you will, repl- you, will, you will you will you will leave diplomacy and you will go back. You will go. Yes, yes, yes, yes. That one that one you can write it down. Oh. I will I will resign. Uh, Ibrahim, are you anticipating that Barrow is going to form his own party and he's not going to allow you to work his government in his government while you are in UDP? Is this why you will be resigning? <laughs> Aha, uh-huh. we are seeing, we are seeing the things that are happening uh, <laughs> Barrow most, uh, there is there are wide speculations that Barrow will form his own party if UDP does not make uh -huh. him a <laughs> flag bearer. Are you uh, already announcing that you will be resigning from the government because we knew Ibrahim as UDP and you just said it once a monkey, always a monkey because you know Barrow no, will not allow you to be in his <laughs> government and going to be diehard UDP. He will recall you from the embassy. Are you saying you are gonna you are going to um, resign before he recalls you, right? let me say this. Uh-huh. I. <laughs> that is Ibrahim Adiba of the <laughs> uh, the Gambian protocol at the embassy in Dubai. The protocol at the Gambian embassy in Dubai. We were just talking to Mr. Diba. Uh, of course, he um, uh, did highlight a lot of things and gave us assurance that um, uh, the Gambia government is responsible, the government of Adamabaro is responsible, and they will take care of things um, according to the way it should be, and that the welfare of Gambians are important to him and the government. Ibrahim kat. garal na ay kado mu ne nguri Adama Baro tiaxan taxut leena jog mom mu ngee liggey fofu depuis na 70 years ak lu tegal Gambian yi yag nañu dem Saudi Arabia am ay scholarship dem jangé fofu be am PhDs delu ci wat ci rewmi ah, mom Ibrahim lol la wax dafa melni am ñu ngi am ndakole lo Ibrahim la Hello, Pa. Well, <laughs> let, let, me conclude and clarify that point, okay? <laughs> um, um, as a civil servant, uh -huh. I should respect the the rules and regulation and uh-huh. the law of the nation. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. I cannot get into politics, party politics, uh-huh. as a civil servant. Uh-huh. Okay, uh-huh. that's why I said when 2021 comes, I know how much I love politics. Mm-hmm. I cannot let people jump into political arena mm-hmm. while I am outside. But even mm-hmm. even if I don't resign, mm-hmm. another con- another government come, even Mama Kandi government come, GDC. I am a civil servant. I mean, they cannot just remove me because of my party affiliation. Mm-hmm. If I don't get into, into active, active mm-hmm. even if Barrow become a president, mm-hmm. then I, <laughs> I, I, am not worried about my position as a, as a, as a, as a diplomat. Mm-hmm. I am only worried that how people are going to look at me. Look at the Prime Madiba. He has been preaching for people to respect the laws of this country, and he doesn't respect it. Mm-hmm. He's a civil servant, he's a diplomat, and he is a politician. That's what that's what I don't well, want. Civil servants are politicians. Your party leader, Lawyer Dabo, is the vice president, and he goes about. No, Lawyer, Lawyer, Dabo, Lawyer Dabo is not a civil servant. Hmm? He He's goes about campaigning. There are other uh, there are other. There are others. There are other um, uh, people that are working as civil servants, and they are diehard and very much involved in politics. If they are not using I, their I, positions, I, if they are not using their positions, I don't want to behave that way. If they are not if using their positions, huh? They have their own individual, I, I mean, um, uh, no, life no, to live. But, but the Gambian, according to the Gambian constitution, uh-huh. he cannot be a civil servant and take part in active party politics. I can do my politics on the burdens. I can do my, but I cannot come out, uh, outside. Uh-huh. I mean, for, of my work, and mm. then still participate in party politics. Uh-huh. If I do that, then I don't respect the constitution of my country. Any Gambian who does that, uh-huh. then you are not fair to your country. Uh-huh. I would advise anyone mm-hmm. who is a civil servant and, uh-huh. and, and, and get into active party, party politics. Uh-huh. Because if you do that, then you don't respect the constitution of your country. <laughs> so are you, are you UDP Baro or are you UDP Dabo? <laughs> Once a monkey, always a monkey. Yeah, once a soldier, you always a soldier. So you are behind yes. Usainu Dabo, if we understand you well. You will be behind Usainu Dabo. Je, ni baro ye moy, ah. ah? Man la fi ya ho yena kema recall because of what he said on my radio de. Ah? pa, pa, but let, let me say 2021 is just on corner, man. You will see me flying with my flag. You are leaving. And you uh, will know with... Uh-huh. Huh? You are going to leave Saudi Arabia. You are going to leave the embassy barote o batula je o oh, yes. biraye amad ba nyolde oh. amin amin eh, oje jalo nyolde aje di where they are going aye <laughs> bara mo de talk dila hara thank you very much mr diba we appreciate your your you pa ite bu sai sai you taking me somewhere that i don't want to go <laughs> anyway thank, thank you. for having me i long time uh -huh. i long time uh, since after my appointment as a civil servant i've never held um, uh, an interview uh -huh. Uh, I grant this interview to you because, uh, brother, and also, I mean, I've seen concern from Gambians, and mm. also I want to clarify some doubts and just, just give them confidence. Mm -hmm. Okay, thank you very much. We appreciate you coming up. all right thank you very much that is Ibrahima Diba kooku mooy mm-hmm. Ibrahima Diba nekk foofu ci Gambian embassy bi foofu ca Saudi Arabia mooy protocol officer bi ah, pour tenka rek dégg ngeen li mu wax mu ne moom kat embassy bi wala government bi duñ dem taxawal dara loo xam ne nekkut am yoon ah, duñ dugal seen bopp si dara ñi nga xam ne ñoo la ñuy wax wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci réewi naar yi ñu am conscience si wala ñi nga xam ne ñooy dundali ñoo dunda mooy ñoo xam ne kat seen am ah, taxawaay nekkut nguur moo ko sabab seen dem foofu nguur sababut ko nit ñi nga xam ne ñooy def am ah, deal di traffic individuals ñoo ñoo sabab loolu kon duñ def dara du dinañ continuer rek ma kool Lamin foofu ca Saudi Arabia Lamin Jeyte mi nga xam ne kaat moo nekk foofu ca Bahrain moom mu yóbbu woon boys yi foofu su ko defee ñu waxtaan ak moom rek ñu seet am ah, moom Lamin Jeyte what he has for us as far as am ah, ñi moo diilal ak lu tax mu yóbbu gars yi foofu dinañ kool Lamin ak ki nga xam ne mooy lifin dinañ leen ak ñoom. Hello? Hello? Hello? Uh, so in, anyway, thank you. Uh-huh. Now I'm okay. Uh-huh. Abe Bandale Koli. Ah, Abe Bandale. Thank you very much, Mr. Diba. uh, thank you, thank you, uh-huh, thank you, thank you so uh-huh, much. Uh-huh. Uh-huh. uh-huh. Euh, waaw macha allah kooku mooy Ibrahima di ba comme niñ ko waxee rek euh, moom mi nga xam ne mu ngi ci embassy bi foofu ca Saudi euh, kon duñ def dara du ñu continuer ci jamono ji rek comme ni ma leen ko waxee waa ji nga xam ne mooy jaay gaay yi moom moo yóbbu gaa yi mooy trafic gaa yi wax leen dig leen li nga xam ne moom lañ dégg noonu gaa yi wax foofu xale yooyu nekk Saudi. wax foofu ñu nekk ren wax ñoom la ñoo jiima indiwaat moom la ñoo jiima indiwaat nii su ko defee pour mu waxtaan ak askan wi ñu seet moom lan la am pour wax ñu kon duñ def dara du ñu delluwaat ba Bahrain wax ak ki nga xam ne mooy Lamin Jaayite moom mi nga xam ne is a Gambian am um, base foofu noonu ci Bahrain ba pare mu nekk di indi Gambian si ñii dem foofu ñi doon waxal léegi ñaari waxambaane yooyu ñu ne moom moo leen fa yóbbu kon duñ def dara lu ñu contact am Lamin Jaiteh ah, jërë ngeen jëf yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem so jóge fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi. macha allah kooku ngeen dégg ñuy call mooy hello hello hello hello salaamaaleykum waaleykum salaam kookan la Lamin naam Lamin nanga def yaama de kooka la man la Pa Ousmane Diouf maa laa koolee America Gambian Talents TV ah ma ne man la Pa Ousmane Diouf maa ngi laa koolee gambien Talents TV. ah. waaw dafa am ah, xibaar biñ jot ñu doon waxtaan ak ay boy Gambian ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi foofu ci Bahrain ah, ñi ñu wax ne gannaaw yàlla yow yaa tax ñu ñëw foofu yow yaa leen indi ah, with agencies xamal leen ne suñ ñëwee foofu dinañ am liggéey. dinañ leen fay am up to hundred and fifty or more dinar but then at the end of the day ñu ngi foofu noonu nekkuñ di am liggéey ah, ñu bëggoon a xam rek yow lan nga ñu mun a wax ah? si loolu dégguma ma ne dañ nekk di am ah, programme government Gambia dañ wax ne dañoo indi thousand Gambians Saudi Arabia pour ñu ñëw foofu di liggéey lii raise bu bari ñu bari di laajte ne Gambien si nekk bitim réew rawatina si néegi naar yi këri naar yi dëkki naar yi dañ fa nekk di sonna mu am ñoo xam ne jot nañoo wax ak ñoom ñu ne Bahrain googu nga nekka yow bokk nga si ñi indi Gambien si foofu pour ñuy liggéey loolu am na ndax amut. naam. dégguma nga ne comme eh, fii nii ñi. waaw yow da nga dee indi Gambien si foofu noonu pour ñu ñëw liggéey si. Fantini. Waaw. comme ah, eh, dama eh, naxatra am na benn eh, benn waay la moo dee sola fii nit ñi di indi gaay aha waaw soo rafetee sola fii nit ñi di indi gaay pour gaay di ñëw liggéey fii so ma gis ne daal loolu ak suma liggéey mënut dem daal so ma loolu ak sama ne daal man because mun na maa ni problème suma liggéey daal because xam nu ma dee liggéey du ma dee concentré suma liggéey bi daal so moo tax daal man mu ne ko daal nii daal man mënuma koo def daal parce que bugguma considéré bu mu nekk suma liggéey daal waaw wala mooy yaa suma liggéey ok so yow ñaata Gambian nga jota dimbale ñu ñëwagum foofu noonu eh, fii nii waaw almost uh, foog naa um, um, who knows? Five, six, a uh, fona about ñoom six daal six Gambian rek nga indeegum foofu yow waaw about six uh, six seven waaw around that amount daal seven seven waaw around seven daal seven ñoom seven daal ñoom seven ok léegi yow lan nga leen dee wax su ñoo ñëw foofu noonu lan nga leen dee wax ak ñaata la gaay dee fay kon su leen dee wax lan am pour soo leen de koolee wala ngay wax ak ñoom pour indi leen Gambia lan nga leen dee wax ne suñ ñëwee dinañ am liggéey liggéey yu baax amin jox leen yaakaar naka lan nga leen dee wax ak ndax li leen dee wax mooy li dee am suñ ñëwee six wala seven yi nga indi foofu li leen wax ñoom ñëpp ñu ngi fa ñu ngi si jàmm ñu ngi liggéey ñu ngi happy ndax happy wuñ waaw waaw gaa ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ñu ngi nekk sécurité ñu ngi liggéey majorité ñu ngi nekk sécurité ñu ngi liggéey daal and they are happy? Yeah, yeah, they are happy and time to time they can take and they can take you know. Oh, okay. They must na some maju ke na fall mange they can take wa. Okay, yo how long kan ka Bahrain? Bahrain mali gam na fili 2 years lagi. 2 years, okay. So um ah. uh, yangi fofu yo yangi liggéey yow sa bopp lan nga kan nekk di waa fii maa ngi maa ngi fii nii maa ngi fii nii moom maa ngi man damaa fii nii di liggéey waaw. mu lan nga nekk di liggéey. Ah, maa ngi liggéey si compagnie as ah, a sales helper. sales so yow will you advise Gambians comme li ma la wax government ni Gambia bi dañ bugg a indi thousand Gambians pour ñu ñëw foofu anywhere from professionals university lecturers all the way to ñu ne ay mbindaan. yow do you think loolu is a good hmm. idea soo doon advice Gambian pour mu ñëw foofu yow di nga leen ad lan nga leen a advice I mean soo xamoon ku bugg a bokk si loolu thousand boobu yow lan nga leen a advice you think it will a good opportunity pour ñu jël ko based on yow li nga xam foofu or you think it's not a good opportunity. ah well ah, ah dëgg la it depends because like su fekkee ne like ah, yaa ngi ñëw te ñu layoo fu nga xam ne. danga liggéey dafa am benn problème teg si tam dew payu wea bàyyi nga ñu xam nga dafa bi nga ñëw fi tam ngay liggéey duñu la fay xam nga bo tam affaire lay no waaye su fekkee tam fu nga xam ne ñu la dimbale nga dem nga am fa sa jaama nga liggéey wi tax no problème den ñu la fay then that one is okay mm-hmm. ok Lamin am na ñu ma interview si ñi nga indi foofu noonu ñu ne li nga wax ni ñoom liñ wax ak li nga wax du benn because yow laaj naa la ndax gaa yaa ngi happy ngeen wa waaw ñoom according to liñ wax yow company bi nga leen indi muy Goodman fi ñu leen yóbbu they actually did not take care of hmm. them ah, liggéey nañ ñu ngi leen ameel seen two months ak three months salaries feyuñ leen ko dañ leen mujjee daaxa sax génne leen so hmm. loolu dafa utee ak yow li nga wax ñoom ñoo la wax loolu waaw ah ok because man ñooñu ñooñu eh, lu ñawul because ñooñu tam xam nga ñoom tam jox nañ la wrong information. waaw ah, moo tax ma call la pour yow nga leeral te yaa ngi live comme ni ma la ko waxee. moo tax ma call la pour nga leeral. waaw ah. waaw ok dëgg la loolu moom loolu moom loolu moom dëgg la because like ñooñu because ñoom tam comme eh, how to call it ñoom Goodman yi nii ñoom dañ de eh, how to call it because Goodman moo. benn man ñoo nekk di liggéey ñu ngi ko wax Mr Mohamed something la Mr Mohamed. Mhm. Mohamed lan la naar la. waa dëkk bi la waa Bahrain la. non actuellement man xaw ma man non foog ma ne waa fii la daal. Mhm. am naa daal beneen beneen contre la jógee daal. Mhm. man Indian land something like that. when I say Indian, something like that. Mm. good man, good man, yo, good man nga xam, good man Uganda la jóge, right? waaw moom moom waaw moom foofu waa Uganda la waaw. so yow good nga dee recrutal good man recrutal Mohamed. waaw something like waaw. ok yow da doon am any code da dee am any code ci xaalis bi ndax doo dee am code. da nga si dee am chia li dee fay Gambia yow da si dee am chia ndax doo si dee am chia. li dee fay ñoom Gambien waaw. non non non mosuloo jël xaalis si kenn yow nga am si siyaa non non non non mhm. moom kay fi nga la tele sax ñoom duñ la ko wax xam well ñoom wax nañ ma ñoom eh, bi mooy mhm. kon naa ñoom eh, because ñoom ñoom fii ñoom bu ñëwee fii sax man dam dee make sure soo ñëwee fii mhm. ma dem ma la xam ma ceg ceg waaw because ñoom bu ñëwee fii wax dëgg yàlla mu xam nga dem naa seeti gaay cause tam buñ ma waxee seen situation yi foofu nu mel because of man sax soo gisee man sax ma loolu because of loolu xam because doo mën a nga jógee nit ki bi na dëkk after mu ñëw fii xam mu ñëw fii di soona te xam nga loolu tam rafetu yaay kan moo fay eh, seventy waroon a fay seventy thousand ngeen ne ko mu jox ten thousand bi sa jabar den sixty bi ñu yónnee ko kan si ñoom do you remember that do you remember ten thousand being paid to yow sa jabar Yo, do you remember 10,000 being paid sa jabar yow do you remember 10,000 dollars is being paid to yow sa jabar wow. Yo, do you remember? ñu ku war a ah. fay 70000 mu fay am um, mu ñëw si yow yow sa jabar nga wax ko mu fay ko sa jabar Gambia mu jox sa jabar 10000 bi. Wow, kooku my mooy Aboubacar kooku lu ma ko wax is very simple. time mm-hmm. boobu because moom ok kii gudmaa bu ma halis. cefee xaalis. because mom tam moom bosam emergency la woon sanga so because moom xatam bu ñu waree ñëw ak bi so it was eh, very short ba mom moom tam mu ngi yaakandoom bu bëgg so si ki ma wax ne ne moom amna na space bu nga xam ne soo fekkee na nit benn nit after moom mën nañ ko def. understand ma ne ko ok so then after ma ne ko ok then no problem man maa sami xale so si laa boolee booy bi ma ne ko dem expliqué na ko so ma ne ko lii mu nga jox taxat eh, ko li nga jox xaalis suma jabar then after man naa la mal naa la el final fii feel fii nii so fekk maa mën naa fay fii nii mm-hmm. so si la jox after si la jox jabar suma waaw suma waaye suma xaalis bi mm-hmm. after moo fay ko fii nii so after from there ñii bu ñëwee mm-hmm. so ma gis ne daal because Eh, ñii luñ dee wax comme ñu dee wax booy si daal daal dee nekk lu nga xam ne lu am ñoo wax ne waa wala laa doon ne dafa nekk eh, good compagnie better compagnie la so after us ñoo dañ dee ñëw lu dee ñoo nekk loolu daal so boo si ñii tam buñ ñëwee di same thing ma gis ne la xam nga loolu daal xam nga rafetul so man daa after si la xam nga rek dem dam dina ma gisante ñi la ma expliqué gars ma man ma wel man xaw ma lii la fi because su ma xamee ne comme ñi seen lii nii lañ di def I will not even involve myself there, you understand. Commissioner guy guy yeah, you understand him you understand what I'm correct. They are all Gambians because neither definitely it's not done harm. So after after guy mujhe birari mare sa so ni dem bu gaay demee gaay setul gaay so ñu ne gaay fo ñu ut job so seen bu gaay demee ñu am sécurité so si lañ ma call ñu ne ma wel ñu ne ma ñu ne les sandel xam xam nañ sécurité job daal léegi effectivement mu waaw tooñ mhm. mhm. so yow yow waaye yow am na ñoo jàppale ñu ñëw foofu dang ma bugg a wax yi waa en record ma am yow jëluloo xaalis si kenn xaalis yi gars yi fay noonu yëpp seventy thousand bi yow dara ñëwut si yow sa poche none of that money came to you waaw loolu laa lay expliqué nii ñoom lu gars yi ñoo fii lu ñu fay si man fii nii man dañ maa fii dañoo fay ñu loolu dem dara dara si bu man fay dara si waaw waaye li ma laajte mooy ndax yow at any point whether foofu oo in Gambia yow duñ dee fay Goodman xam nga mun nañoo fay Goodman tamit Goodman jox la yow code yow jëluloo benn xaalis ci kenn mhm, yow direct wala through Goodman waaw waaw loolu lay wax nii fii man jëluma xaalis si good man fii man jëluma fi benn xaalis si fii nii because ni, man loo ma tam ma stop bi job because man lii ma because man lii def ma ko job because like dimbale ñi foog ma ne daf so ne soo amee sa nit ñu bëgg a ñëw fii nga jàppale gars yi ñëw fii non problème soo dem ma gis ne affaire si la den den moo tax bi den after ma stop daal because one thing luñ luñ la dee wax after ñoo di ñëw ñëw fii ba ma dem xam nga mu ne ma soo bëggee ñu ne foofu nga gis foofu noonu so den after ma gis ne daal waa dëggal xam nga ñii daal ñu ngi disturb ñi so moo tax xam nga rek bugguma koo def ma jox sax dana stop it you know mm-hmm. so si laa ko stop daal mm-hmm. because it's not nekkut lu nga ne suma du suma job du suma liggéey dimbali ñi waaye ma gis ne daal li affaire bi ma stop ma bàyyi ko oh ok hmm. ok so do you regret it ah ma ne do you regret it Yeah, man, for sure, for sure. Regret now, Bonas. Hello. Okay. Hold on, Lamin. Hello, Mr. Goodman. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. This is Pa Usman Juf. I'm calling you from the Gambian Talents TV. From? From Gambian Talents TV. We are learn we learned that you are um, working with Lamin to actually bring Gambians there to work in Bahrain. Is that true? Are you are learning, but your phone is not clear, my dear. Huh? Your phone isn't clear. You said. Can you hear me? Yeah, now I can hear you. Okay. I said we have line yeah. on the other line. I mean, are you working? Are you are you working with an agency with Mohammed? Uh, we learned that you are bringing Gambians to um, Bahrain to work over there, and Lamin is on the other line, by the way. I used it to bring the, but I canceled him uh, three months ago. You say what? Agent Muhammad. Huh? Yeah, that. Yeah, the agent I used to use, I canceled him three months ago. You were an agent. Are you still an agent? Yeah, you wanted to bring some people in Bahrain. Yes. How many are they, and uh, how old are they? Uh, what is the age limit that um, you can bring people in Bahrain? What is the age limit? How old do they have to be? It has to be uh, not not more than 45. They don't have to be more than 45? Yeah, not more than 45. Oh, okay. Yeah. Okay, and what, what is the, small, the, the youngest age? 22. 22, okay. So if they come there, yeah. what type of work do they do? Huh? If they come there, what type of work do they do there when they come there? It depends on their qualifications and depends on the available jobs. Oh, okay. So are you the agency yeah. or you work with the agency? Yeah, I have agency, but sometimes agencies share jobs. If I have, I will bring. If I don't have, I will share my clients to other agencies. Okay. But what type of job do we do though? What type of job do we do there? They starting from factory helpers, hotel workers, security guards, mm. as, a, as a uh, drivers. There are many jobs, uh, different depending. Safety officers. Oh, okay. So what do we do if we want to come there? What do we do? What is the first step? It's no, it needs nothing. You need to have uh, for a particular job that you advertise. You have to have qualification for that, or you will send me your documents and I'll be searching for the job that suits your qualification. So you search for the job, and if you have the job, then what do you do next? You contact me back. Yeah, when you have a job, you you do your medicals and. Uh, the, uh, every particular job has its own charges, then when you agree with the charges, you come, and every job with its own salary scale. Mm. How much? How much do they start with salary scale? Starting from how much? No, there is no fixed salary here. Everyone has, every industry has its own salary. Yeah, but some of my uh, friends tell me, some uh, of my friends tell me you. The I think it, it starts from I think two hundred two hundred fifty $250 for the helpers, rebalas. For the security guard, it starts at three hundred and fifty dollars. Three hundred dollars. And uh, for drivers, starts I think at uh, four hundred fifty dollars, like that. Mm. Wow. Yeah. So how often do we get paid? Every week, every two weeks, every month? We, we advertise monthly, weekly, depending. You know, it's dynamic. There is no constant, uh, constant way of uh, advertising jobs. Even we can advertise as many as possible in one month, and the next month we advertise less. Mm-hmm. So it depends, really. So if I bring people, how much are you going to pay me? Huh? If I bring people for you, how much is going to be my cut? How much are you going to pay me? When I bring? I yes, if I, if I bring people, how much are you going to pay me? how much I'm going to give you? Or? Yes, yes, yes. Uh, it depends on the job, as I told you. Every job has own charges. I will not tell you, you will give me this amount, okay? I need to know which job I will be offering them, how much the agent is charging, or how much the company is charging, how much is my commission, then I'll tell you depending on the job and the qualifications of that person. Then you will tell me um, how much I'm. So that you cannot tell me how much you are going to give me as my cut until you know how much you are going to get. I, I don't I don't have any offer a job offer with anyone. You have just said we are just talking. I don't have any documents about that person. I don't even know where I'm going to sit him. I don't have any clue about the charges they are going to ask for me. Mm-hmm. But you know, in Gambia, we hear a lot of people. We hear a lot of people talking about if you come there, what they tell you and what happened is not the same. What guarantee can you give me that if we come there, we will have um, it will My be good? dear, you know, I've been in this thing for a couple of years. Mm-hmm. Depending if you deal with me direct, it will be different with dealing with your agent. When we give you offers, when we give offers to Gambian agents, they keep the offers and tell the boys different things. Oh, okay. Okay, mm-hmm. you can imagine an agent, an agent, an agent. I am here as an agent. I got a job from the agent, and I gave it to one Gambian who is here already is a middleman, and there is an agent already in Gambia who is also connecting those boys. So each of the agents needs you know, this commission, needs commission out the last one. How much do you think they will charge them? Oh. When we oh. send them offers, they don't give to them, or else they will lie to them that this is you are going to get this and this instead of asking me direct. When they reach here, they find it's different. I ask them, why didn't you call me before you leave, or why didn't you contact me? Since they told you I'm the one bringing you here. So you want me to deal with Lamin uh, directly or my deal with you? You want me to deal with Lamin? Lamin is the agent, your agent there, right? Lamin is fake. He's charging the boys a lot of money. Lamin is fake? Is he not your agent? I'm telling you. I'm telling you, I don't lie. I don't tell lies. I don't have friends because I tell the truth. You like me or not, you can be my friend or you can leave me. I will tell you when you are fake or not. Because they charge a lot of money. They don't uh, of the boys when they are here and they are there. So. So Lamin was your agent. Is he no longer your agent now? You have taken long without talking to him because he's not straight. He used to be a very good boy. He used to be a very nice man. I don't know what happened to him. Maybe he had the money issues. So he charges, I mean, uh, the Gambians a lot of money. I don't know even how much they charge. When the boys come here, they will tell you they charge a lot of money. So, and I told him, don't charge these guys a lot of money when the salary is less. So, who are you working with now? Who is your agent now from Gambia, if not Lamin? I'm no longer recruiting uh, there. When I want to recruit, I will just conduct one guy here and recruit direct. Oh, so you don't uh, you recruit from the guys that are already there, or the ones that came from or the ones in Gambia? There, there are guys I have there and I will call. I call. Oh, the ones I have that already closed the Gambian uh, jobs because of this Lamin. So you have other agents in Gambia directly you deal with, and not Lamin or anybody in Bahrain. There is another agent, but now I had stopped. Why? The guy, there is one guy who came here with hepatitis B. Hepatitis. Even I called. I mean, I was in my vacation. They the, the agent wanted to contribute the money of the ticket. I told Ramin, why don't you call this boy to go to the agent? He couldn't even manage to give a call to the, uh, to the boy to go to get money to contribute his ticket to leave the country because he wasn't uh, unfit for the medical test. So what kind of an agent is that one you can use? Hmm. who cannot even contribute. Even he had my balance of three hundred dollars. I told him, pay, uh, contribute, add on that money you have with me. You owe me. Add something. Contribute your fellow brother to go back and do get the treatment. Maybe you can help me later. He never did so. Only is complaining about the companies. When I bring him here, I send it to a company. When a company, let's say company collapses within six months, it cannot be an urgent fault. Some companies take huge loans and they fail. Some companies get success and become big. When they add salary on that person, will that person come back to me to add some money on me? No. So why do you take consequences as the highest thing to, com- to, to compare about other than uh, looking back into your own issues? There are, so there are many issues in recruiting. Mm. So do you only recruit from Gambia or you recruit from other countries? I recruit everywhere. I don't choose a, a country because I have issues with Ramin or anyone. That's what doesn't stop me from recruiting from Gambia. I will recruit wherever I find uh, any requirement for Gambians. I will bring them here. Yeah, but some I, of the boys that Ramin that came I had through requirements for Gambians last week. I couldn't take them. Why? I don't want to use Ramin again, or he has to first come and pay me or apologize to me. He wasn't good with dealing with me. Some of the people that Lamin brought say that Lamin, um, they come there, they work for the agency, the agency owe them two months, three months work salary. Is that right? I'm not sure. Even the company they are talking about that was going to take their salary did not even last so long. They changed and went to another company. So how did they get to know that? Well, they they never get paid. They work and they never get paid. No, the company failed. There is one company that failed. The, the one company collapsed. Oh, one company collapsed. So, okay. and that one can never be my problem or any other agent's problem. Mm-hmm. Oh, okay. Um. Yeah, it has to be a problem within the in, in the company. Mm-hmm. For my recruit people to mm-hmm. work in the company. When the company gets problems there, or even a company when it increases salaries, they will never call me back. Mm-hmm. So what happens there has to be shared. The government gives them time to look for jobs elsewhere. Mm-hmm. Wow. So, Mr. Goodman, if I yeah. want to uh, work for you, what can I do? If I want to be your agent? Uh, I need only straight people. I don't want to deal with someone and tomorrow and he has issues. I, I only deal with straight people. How much I tell you is how money you bring. When we agree on such issues, just direct straight. Not wait tomorrow, tomorrow, tomorrow. No, no, no, no. Are we going to have a contract signed? Are we going to have a contract signed to say that? Because also... of course we sign agreements. Whenever offers come, the guys have signed so you signed with Lamin, you signed agreement with Lamin? Not really, not agreement, because he's not uh, he's not an agent. He was a middleman. He had another agent in Zambia. Oh, okay. Yeah. Okay. So do you bring people the from Uganda? Gambia. Do you bring people from Uganda? The people from Uganda? Yes, do you bring them? You are from Uganda, right? Yeah, I bring them, I bring them, I bring everywhere. Oh, okay. So how much money have you made from this um, since you started it? Huh? How much money did you make from this since you started it? It depends. I told you it depends on the contracts available. You can't you can't just uh, account for something that is not available. When we have a contract, it's when we know how much we will charge, how much we will get, how much we will balance yourself, like that. Mm-hmm. When they give, say they give me contract of one thousand two hundred dollars, mm-hmm. that if it's what the company needs, I will tell you I need one thousand four hundred dollars. I will need two hundred dollars as my commission. It's up to you to know how much you will add on each and every candidate. Mm-hmm. You get mm-hmm. me? Mm-hmm. Mm. But do you do another job? Is this the only job you do, or you do another job? Which one? Is this your only job, or do you do another job? I have a lot of jobs. What, what, what does it have to do with that? Oh, okay. Well, Lamin was saying that I spoke to Lamin earlier, and he was saying that you are not a um, straight man and that this was giving trouble. That's why he stopped working. I just talked to Lamin not long ago, and that's what he said. He too said that you mm-hmm. and the companies are not straight. That's why he stopped working with you. So who do I believe now? Do I believe Lamin or do I believe you? Or do I believe the boys? So uh, how am I not straight? You should ask him. Hmm? Me and who, and him, who owes who? You should ask him that. Mm -hmm. Or you ask other boys here who are here. Mm-hmm. Who checks on them? Who checks them here and there? Who gets them jobs after all? Mm-hmm. He doesn't even want to spend one dinner for eating. The boys come here when they are in his neck. They stay in my accommodation. I pay for them food. I pay for them medical. Did he ever even pay one one penny to his Gambia brothers? And they are his brothers real. Me, I'm from I'm from east of Africa mm-hmm. from Gambia, the very person they should be talking to, reaching to. So who is straight or who is not in this one? Mm-hmm. Him or me? Mm-hmm. Who should be much concerned? Isn't he the one who brings them here? They know me, but I'm the one who goes around with them, even at the last moment, even when they get another uh, other companies, even those that I did not bring here. Leave alone Rabin. I don't call him, he don't call me. Even if he calls me, I don't need to pick him. Why would I pick him? Well, you say he He's owes you money. You say he owes you money. So if he calls to pay huh? you your money, you say he owes you money. If he calls to pay you your money, you're not going to pick? I don't want to go there for him. Let him take. Actually, for me, money is less. I value a lot of friendship issues than money. I like... Uh, Trust was the people truth than money. Mm-hmm. When you are not straight, keep your money. I see where you'll go the last day of Qiyam and see when it will take you. Well, we will leave nothing in this world. We take nothing. We came with nothing. So mm-hmm. money is just nothing. Mm-hmm. Oh, okay. Well, um, like yeah. I said, I was talking to Lamin earlier, and Lamin is on the line. Hello, Lamin. Hello, Lamin. Lamin is on the line. Um, uh, Mr. Goodman, I am calling you from the Gambian Talents TV actually, and we are live. I told you earlier. We are calling you from the Which Gambian, one? Gambian Talents TV. Okay. Yes, and um, you are live. All the things you were saying is live actually, and uh, Gambians are very concerned that you are bringing Gambians there to actually sell our brothers and maltreat them uh, working with Gambian brothers. What what um, um, uh, a lot of people are disappointed that are watching are disappointed that you are bringing Gambians there and working with our fellow Gambian brothers to actually um, um, uh, get them maltreated and lie to them, tell them that if they come here, they're going to be good, they will have good job, they'll be paid 100. I'm not hearing you very well. Can you come near your phone and we can have this conversation go on? Yes, I said the Gambians are very disappointed that you are bringing Gambians there, working with other Gambian brothers to actually lie to them, telling them that we are going to pay you this, pay you that, and you will have this job and that job. Them? from the beginning. Who lied to them? Well, they said you and Lamin, and Lamin said you. Lamin put me the blame on who? you. I never, uh, my dear. I, I've told you, you asked me everything you wanted. I, even, I didn't even ask you your name or anything. The, because I replied the truth. I bear a walk in sunshine. They know me everywhere here. You, understand? I don't even know, want to know who are you or what. Did I, did I ask you your name? No, you no. didn't. I don't even want to know where you come from. Because I know what I do is in straight line. I don't like anyone, and I never stopped anyone from your home to come here in a lie. I tell them the truth. Only the problem we have here, the middlemen and the agents from your home, they tell your young boys wrong things and they charge them a lot of money. Mm-hmm. When they reach here, they don't even give them the operators that we give to them hmm They don't want them to read them before they come. Mm-hmm. You get surprised when we pick them at the airport. They don't know nothing. And you ask them, who signed this one? Their agent signed for them. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. So, wow. who is fooling who? Who is lying who? You get disappointed from who? You should ask your people, are they straight or not? You understand? Mm-hmm. Ask those people you have. I, I, keep my records. I have their numbers, all of them. Mm-hmm. I fight for each and every black here in the, in this community. Mm-hmm. I got courts, I got prisons, I got where. So why would I indulge myself in uh, taking young boys' money who is even 21, who never got... Uh, $1,000 by himself. He has to borrow or get a loan in the bank, and I have to take such a money. Mm-hmm. Do you consider do you consider yourself a human trafficker? A lot of people consider yeah. you and the job you do a human trafficker. Do you consider yourself a human trafficker? You said what? Do you consider yourself a human trafficker? Do you agree that how, you are a uh, human uh, trafficker? How do I, I, I, control myself as a human trafficker when I, I, I fight human trafficking? Well, by bringing people there who you know that they have been maltreated, they have been lied to, for example. I mean, the Gambian brothers like who you said. lied who? You should, my dear friend, uh, if you are uh, if you are a professional in a job you are doing, mm-hmm. you should learn to understand and learn to speak. Mm-hmm. In thank you, thank you for teaching me my job. question in a bare manner. Okay, thank you for reminding Who me about my job. Okay, all I, I am. Tell you, mm-hmm. my dear. Mm-hmm. Uh, when you speak and I speak, I think we will not get each other. Mm-hmm. see, you should know from the first tense who is fooling who. Mm-hmm. You have the Gambian agent in Bahrain. Mm-hmm. You have uh, uh, you have a, an agent in your country in Gambia who doesn't want to show the papers to the boys. You have this agent who is here, the connector, the one you said maybe Lamin. There are many Gambians here, many mm-hmm. many agents here mm-hmm. who don't want who wants to overcharge. You tell him $1,000 for a certain job. You tell them the contract details. You send them offers. They go behind you. They triple the charges. So who will be trafficking who? Mm-hmm. First, talk to your people in your own language, not even in English, because some of them don't even understand 70 sentences in English. Talk to them in your language. Let them narrate the story uh, in, the, in the truth of it. Ask me questions from them, not from their side. If they tell you this, write down. Ask me from what they said. I, then I reply to you. Mm-hmm. Those guys are very, very, very, very bad people. Mm-hmm. Very, very, very bad people. Mm-hmm. They don't. They come here. They don't follow up anything. Well, the they Gambia, the Gambia, I will tell you right now, the Gambia government is trying to sign a new deal with Saudi Arabia and that is why we are having yeah. this conversation. They bringing about they want to bring about 1,000 Gambians there to work in different fields and do different type of jobs. And a lot of Gambians are scared yeah. and are fearing because a lot of people say that well, at the end of the day, um, uh, uh, when they come there, they are going to be maltreated, they are going to be lied to, they are going to be, I mean, the women are going to be raped. All of these are things that so are said. Dear, uh, uh uh, before I cut you, oh, I got uh, you short in that story. Mm-hmm. What, what, what's your name from the beginning? What's your name? I am Pa Usman Juf calling you from Gambian Talents TV. Okay, okay, Osman. Mm-hmm. You are Gambia if it has got a contract with Saudi Arabia. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. May I ask you a question? Do you have uh, an embassy there? Yes, we have an embassy in Saudi Arabia. I just talked so, to, right before I call you, I speak to the protocol officer no, at the embassy. question. Simple. Thank you. I want to add on that a supplement. Mm -hmm. Well, that's very good. If you have an embassy there in Saudi Arabia, mm -hmm. okay, mm -hmm. and you have made an agreement with Saudi, uh, with Saudi to, uh, to export experts to, your, to their country, mm-hmm. please make sure those consulars in, the, in, in that consulate – and that embassy follow up where they are working. They okay? follow up. Okay, As I do here to my Picero people. Good. Okay? Good. I have been working even as as your consul when I'm not a Gambian. Oh, okay. To follow up these people who are getting uh, in this country. That's a very good there advice. There are very many Gambians bringing people. I find them in the bus stop. I take them to other companies free of charge mm -hmm. without uh, taking money from them. Mm -hmm. To get jobs instead of getting them deported, ask Ramin if he's uh, there online, he will tell you. Mm-hmm. I take those people who used to call me. There is a certain brother has an issue. Certain brother has issue. Certain, my dear, let those consulars in those in those countries. This is Arab world. Mm-hmm. Don't think signing an agreement. It's a memorandum of understanding mm-hmm. between your country and mm-hmm. Saudi Arabia. Mm-hmm. Okay, but that memorandum of understanding doesn't go down if of works or of workers in the industry down there. Mm-hmm. It doesn't go beyond that. Mm-hmm. There are those guys with big stomachs sitting on the table, mm-hmm. taking tea and signing agreements. Mm-hmm. I am an African and mm-hmm. a Pan African. Mm-hmm. They don't follow our people down deep. Mm-hmm. Take a chance of, uh, take an example of maids. Mm-hmm. How many maids are trafficked to Saudi Arabia? How many are hugging themselves? Mm-hmm. Are we the one bringing them? Mm-hmm. And we having uh, a memorandum of understanding with Saudi Arabia. Mm-hmm. I am actually acting as a consul of Uganda here in Bahrain so far for like a month. Mashallah. They, they take people from my country. Mm-hmm. They, we have a memorandum of understanding. We have mm-hmm. agreements with them. You know how many bodies do we take home? No. Even after three months, we have like nine bodies of maids. Do you have many uh, men being thwarted in Saudi Arabia? Mm. Those are official and diplomatic ties between two countries. Mm. So mm-hmm. don't compare them with anything that isks in work places. Mm. Mm-hmm. Understand? I am a very educated man. I understand what you are trying to say. Mm-hmm. So uh, tell your people from Gambia, mm-hmm. the agents who mm-hmm. want to get jobs from Bahrain, mm-hmm. come here, get jobs, sign with us agreements export people who are capable, uh, capable of, uh, of, of working. Mm-hmm. Don't export people who know nothing and expect a huge amount of salaries. Uh-huh. You did not go to school to have any ethics or basic basic skills, and mm-hmm. yet you want a salary of more than one thousand five hundred. Mm-hmm. mm-hmm. Where do you expect it? Come as a laborer, work as a helper. The conditions are there. You have a bed, you have transportation, you have your salary, you have your medical bills paid for if you want to come, they want to bring that European ship into Arab country. There is no European ship here. Okay. Work as an African in Arab country mm-hmm. or stay home, dig, get your food, sell your plants and get crops and get money. You have given like a that. very good piece of advice, um, uh, sir. Yes. Um, I was telling you, I just spoke to the protocol officer at the Gambian embassy in the South in Saudi Arabia right before I called you. <coughs> and yeah. yes, these are the concerns that we are raising. But nonetheless, of course, the government is saying that they want to file traffickers. They want to um, um, end the trafficking. And people that own companies or agencies or people that are operating like yourself, working with the lamins and others, individuals, they think if the government is actually taking care of this or takes ownership of the agreement, it's going to be I better will, than I individuals. I will tell you one thing, my brother, mm -hmm. Osman. Mm -hmm. I will tell you one thing, my brother Osman. Uh-huh. Believe me or not, Mm-hmm. Tomorrow I might be officially an official anytime or any day, mm-hmm. but I can never win. Mm-hmm. I I have been intelligence uh, classes for more than three times, as I know. Uh-huh. I cannot even even if you give me a group of intelligence mm-hmm. intelligence officials, even if I would deploy a thousand people, I mm-hmm. can't win individual contest I have here maidens coming. We stopped maidens coming in this country. I have here maidens coming daily. They mm-hmm. connect through Facebook. They come. Mm-hmm. After all, they send you. You can never end this one. Okay. Uh, we just so try. even so are you telling try. me even in government even government will not be able to individual contracts will never end because these people apply online will you cross indeed Will you close expatriates.com? Will you uh, cross Nikugurif? Those job connectors? No. People will still connect themselves to their employers. Okay, so are you Even telling me? Okay, now with the government signing a deal, are you telling me they still? What would you advise the government? The bill, the bill helps the country to generate revenue. Don't be. I, I will use a very harsh word. Don't be fooled around that that bill is going to put regulations that will bring all people together. No, my dear. These people will get. Will you stop someone going to Togo? No. Will you stop someone going to Togo for a visit? No. Reply to me, Mr. Osman. No, I said no. I said no. Yeah, you can't. These people come like how? Ask us. We will tell you. We don't want these people. When they come here, they're exploiting our color. Okay. You understand? So are you telling me that the Arabs are exploiting Africans take, and maltreating no, Mr. them? How, mm -hmm. how much can I take sell someone of my color? Nothing. Then nothing can buy a person. So I tell you, those guys will still work. They will still operate a thousand times because they will do what? They will tell the guys to get their tickets to Togo or to any other African countries from there, they will connect to Dubai, to Qatar, to Oman, to Bahrain, Saudi Arabia. So don't that's just a joke. The government puts in in progress the terms to generate their revenue, but they are not not at all near helping us. They are not. Our government, we will cry and cry. They don't help us. We are the only people who govern ourselves, Pan Africans, to go and follow people here. <laughs> to go and follow up there. Mm-hmm. We just set up some organizations to help ourselves mm-hmm. only. But these people, if they want, let, let your government send a consular. I hear you have a very good president, Adam Abaro. Mm-hmm. Let Mr. President send a consular here. We mm-hmm. work with him. Let him curb all this. He cannot. He will not stop, indeed. He will not stop those uh, online connections. Thank you very much. We just curb a little bit. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Goodman. All right, Thank you. Mm -hmm. Lamin. Lamin. Hello. Yes, Lamin, how are you? friend, maa ngi fenn Ousmane. waaw dégg nga li Goodman wax. Mm, ok. Well, Goodman mu ne you have been a disappointment to him. Ah, yow yaa dee jël gaay di leen caaj xaalis bu bari yaa ko ameel moom xaalis ba pare yaa ngi ameel ah, booy yi dañoo ñëw foofu doo leen dee dimbale am na. I would like you to ask him thing I would like ask him questions in English. Okay, I am just, okay. What you are asking him. Don't okay. ask him in your language. Well, we were having this show in our language because you don't speak our language. That's why. But yes, let me be fair I, to I you. I would like you to talk English. Okay, Lamin. If you, I'm to be Lamin, included Lamin, in this uh, okay, uh, Lamin, you heard what Goodman said, right? You were on the line all through. You heard what Goodman said. Yeah, Osman. Sorry. Uh -huh. Tell him. Tell uh -huh. me one thing that I was lying. Okay. Yeah, ask one question. Ramangladega, I can hear you. Goodman wants you to talk in English okay. so that he can hear. You heard everything he said, Lamin. How can you defend what Goodman said? Yeah, for Usman, for me, I cannot say anything. Only, only unless you ask the boys, they will tell you. If I, if I told Kumlumla Nekadua like uh, what I'm saying, or either this, if they come here, I don't even uh uh, uh, uh, how to call them, help them. Uh, these people, they know you have their number so you can call and ask them. Well, I had already spoken to the boys. I have already spoken to them, Lamin. On your part, Goodman is saying yes. that one of the Gambian brothers even got sick there, and he asked you to facilitate for that guy. The company was willing to pay half of the guy's ticket for him to go back home, but you will not do that. And that even if the Gambian brothers out there uh, are hungry, you barely even do anything to support or help them. He also accused you of um, charging them a lot of money. Okay, when... ask him. Ask. So what I what I want to tell you that mm -hmm. me I what I want to me I'm, I'm I, what I want to tell you that is you ask if I told you talk to those people you ask them if for those boys they will say they will not have money I go there I give them money you have their number and you call like who them, like whom did you. you give money really whom so maybe when I was in my vacation, if you gave someone money when I was in my vacation, I mean, who checks on these people? Who takes them here and there? Who takes them to other companies? You call, when did you help anyone? You call. There? You call. I call who? Ibrahim, you call. You, you ask Ibrahim those people. Even even Ali Ali, he fight there. They won him very serious. They won him very serious. I go and pay my. I, I go and pay. I give him money. You ask them. Mm -hmm. Even these people, these when? people who last came, you ask those people also. You know even this ruler came also, you ask them. Mm -hmm. Because you, you what did you, you, you give them, a, a, a, Mr. Mohammed give them a fake offer letter and that one is not good. So, you know, you give the, what, happened, give to the, the, what happened to the, operator? What happened the operator we gave I them? don't know. Where I did you know, take I don't it? know. Because this rule. Which offer letter? The ones we, we submitted before we applied. Mm -hmm. Okay. Yeah, you ask them uh, uh, uh, this one. Omar give them eh, Omar give them the offer letter. He them the offer letter, but the offer the, the offer letter they came with, and the one the Muhammad give them here is a fake offer letter, and that one is not done. And you say I will. They, they um, Lamin, Lamin, Lamin. Yes. Yes. We bring people who here who are educated. Why would you sign a different offer letter when you have another one that brought you in Bahrain? How? and I was here. But uh, whoever told me we signed a different letter, and I was with them. How did they come sign? Graduation. Let me tell you, they are having their graduation documents. All those people they go to school. Understand? So the, the they have, and this one is quite different. What's the name of them? this boy who went back? Uh, hello. yes, you guys are here. Mm -hmm. Go ahead. Hey, Akeba, Eva? he's a very nice boy. I wish he could be here he will tell you what is there. Yeah. Mm -hmm. But yeah. Lamin, Lamin, Lamin, Lamin yeah. you said you knew the deal wasn't okay. Lamin, you said you knew the deal wasn't genuine. Mohammed and his people, um, and and Goodman and his people were not treating the guys right, and that's why you stopped working with them. But that's different from what Mohammed said. What what Goodman said. No, what I. No, no. What I mm-hmm. what I say Osman. is these people. Osman. What I say is because I, this they bring this, think, these boys here. They they mm. bring these boys here to work. You understand? But these people they work for two months, they do not get their salary, mm-hmm. and I, I, they don't have their salary. Mm-hmm. And they are, and what did they tell them? They said it's part of it's part of the rule of the uh, the company. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. How can someone come here and you do not pay him for two months? You know. So these people they go to Mohammed office and they claim, you know, because they are here, they don't have any money. Lamin, so how, how did you know Goodman? Lamin, how did you get to know Goodman? How did you get to know Goodman? How did you and Goodman know each other? Lamin, I will ask you one thing. Me and Goodman. Okay. Yes, you and Goodman. How yeah. did you know each other? In in your company. Listen, in your company, what? when you came, when you came through Abu and Jakarta, if when they deployed you to this company, know where you are working, if you did not get your salary for two months, as Bahrain law, who is supposed to be blamed uh, for not uh, for not, for your payments? Who is it? Is it Jakarta and Ebu who brought you there, or the company that you are working for? When you come here, you are not working for the agent. You are working for the company. The corrupts or the mm. achievements of the company cannot be put on the agent. You mm -hmm. should mm-hmm. understand and I want you to, to tell me when you are not lying or telling uh, lies to people, who was mm. you going to mm. put uh, in authorities mm-hmm. or to report? Was Jakarta or Ebu or this Arnur company you are working for? You are working for Arnur company as a, a helper somewhere there. If you, you did your help job, they did not pay your monthly salary of 110 or 100 dinars. That's 222 BD. If you don't get it in two months, whom were you going to report? Ebu, the agent, or uh, and Jakarta, the agency, or Nur, the company? Whom? Good man, what I'm trying to say. And not reply to me. Whom, you, whom will you okay. report? Okay, since you two have not spoken for a minute, I brought you guys back together. Um, anyway, I'm just doing my job. Uh, like I told you guys, Mr. Goodman, you've given some good tips that we will be analyzing I will, a little bit about you, uh, Gambia government. I know Ramin as uh, my black brother. Mm -hmm. I will greet him when I find him on the way, mm -hmm. but I cannot deal with him in this in, in, in this kind of way. Mm -hmm. He mm-hmm. was a very good boy. Mm-hmm. I don't know what destroyed him, what happened to him. If, if he's still good, alhamdulillah. If he's not, well, well, well, one of the boys, one of the boys told me that he paid ten thousand dollars to Lamin's wife in Gambia. Lamin denied it. He said he explained the story. Lamin, how did you say that happened? Ten thousand dollars. Dollars is ten thousand dollars is to Lamin's wife. That's Gambian money. Out of the money he was supposed to pay, part of it was paid to Lamin's wife in Gambia. <laughs> Oh God, those ones I don't know. Me, I know what I know in Bahrain. Mm. Mm-hmm. Anyway, thank you guys. Thank you to um, La bah, um, uh, um, what you call it, Goodman. What is what is your real name, Goodman, or you have another name? That's my real name everywhere. Goodman is name. your real name. Your first name is Good. Your last name is Man. This no, yeah, that one is one name, Goodman. Okay, Goodman. And what is your last name? Yeah, you cannot spell it in Yeah, just say, Uganda, yeah, just say it. Just say it. No, you cannot say it. Yeah, even if I cannot say it, just tell us your last name. It's it's a good man to Riamureva. You can spell it like that? No, I'm not saying to spell it, but just say if you say you are a straight person since the beginning of this interview, you've been saying you are That's a straight what person. I, said. Straight... I just I have just told you my last name. Okay, what good did you man say? Ture Amrera. You can spell it if you can. Good man Ture, good man Ture Amrera. You cannot spell it, I tell you. Ture Amrera. <laughs> okay, Ture Amrera. Anyway, uh, That's it, by the way. Uh, okay. Uh, thank you for calling okay. us. Uh, thank you very much. Uh, That's the, the, part of our story. Thank Let you. him tell you the truth. He's there. Mm-hmm. Thank let you. Thank, thank you. Let me let me let me talk with Lamin in our language. Good man. You thank you. Good man. Do you have any other thing you want to say? Guzman, um, you have any other thing you want to uh, say before I let you go? I need to talk to Lamin in our language before I let him go. Yeah, you you you, you asking like? Yes, yes. You, you, you said what? Do you have any other thing you want to say? I want to talk to Lamin in our language. Okay, the one thing I would like to say, okay, let uh, listen to me carefully uh, because I'm not going to repeat this and uh, maybe whoever is listening, whatever, I don't know. See, you want to have your people come here in Harmony or any other country, not even Lamin. Lamin is not is just one man here hmm And he knows Ramin came here through an agent. And there are many, many, many people here. Let these boys sign agreements in their country. Let these boys talk to the very people who are, are bringing them here. Let these boys confirm with us Mm-hmm. that I'm coming to work for certain certain salaries. Mm-hmm. Let these boys have our contact. Mm-hmm. We will not talk about the money because all agents have commission they want to apply from the actual price we tell them. Okay, that's not our issue. But let these boys ask every questions they need to know before they come here. They ask us, even another person, even another country, Mm-hmm. Okay, fact mm-hmm. that when they reach, mm-hmm. they don't have other issues like we found different things, we found different stories. Mm-hmm. Because sometimes agents in their countries change the offer letters, enticing them to pay more money than the actual money. The guy will find himself paying triple times the mm-hmm. actual money he should pay for a certain job. Mm-hmm. My last words will be tell your government to find consulars or people to be announced in your languages to be visiting these GCC countries. Not only for boys, there are even girls in these houses who don't even have a number to call their governments wherever there is any issue between her and their employers. Let the numbers be put on that airport. Whenever someone is leaving, go with it at any emergent time. He can call mm-hmm. and get some help. Mm-hmm. Those are my words, my brother Thank you. Osman. Thank you very much, Mr. Goodman. All right. Thank you. I appreciate Bye-bye. you. Uh-huh. Mm. Lamin. Hello. Wow. dégg nga Goodman wah Lamin. Yeah. Okay. Sa der setut si de. <laughs> nga boy waaw wax naa boy si waaye boy si liñ wax ñoom ñëpp dañ réccu ñëw foofu te ñoom ñëpp li man wax ak liñ wax moo moo gën a méngoo daat yow li nga wax de daakaay seet ñoom ñoo ma wax ba wax ma ne yow mm-hmm. yow yow ñoom fay nañ xaalis ci sa jabar and like so li gaay wax ak li man wax moo gën a méngoo daan yow li nga wax mm. yes and they are all very disappointed and some of them ñu ngi woon Gambia ñu ngi doon liggéey ñu ngi am seen business ñu ngi def very well ñu bàyyi loolu foofu ngir yaakaar bi ngeen leen jox ne suñ ñëwee baax Bahrain loolu lañ faa fekka hmm. biñ ñëwee ba foofu liñ wax ak li Goodman wax hmm. moo méngoo because Goodman mu ne ñoom dañ leen a jox jox leen contract jox leen hmm. everything yéen ngeen jox booy yi different contract non non non lu ma def loolu ok well ngeen defat loo ngeen defat loo lii Lamin are you guaranteeing me that duñ déggaat kenn kenn duñu koolaat pour wax ñu ne amin ah. Lamin ma ne lii ñun dem nañ ba pick story bi ah. and we are interested in it and we will continue to follow um, can you assure mm. ne yow duñ la déggaat si benn façon yi deal bu mel nii parce que yaa ngi live sa nataal ñu ngi ko def si internet bi mu ngi ci Facebook bi everywhere for your information people are seeing you sa family Gambia dinañ ko gis don't be surprised that you are exposed and you can even be in trouble, so they may Gambia, for trafficking people, for trafficking our fellow Gambians, because no. we are putting your image everywhere. No, man, lol, man, man, man, man, man, def lol, man, man, def lol. Well, you confirm that during so Halis, remember, Lingawa, Lingawa Hip is recorded. Remember, Lingawa Hip is recorded. It's uh, on YouTube, it's on Facebook, it's on uh, WhatsApp everywhere San Natal we are circulating know, everywhere suma pare dinala sense no, obi o sabo no, kanga deblu kanga setan ko yo sa a confirm gane ne fay nañ xaalis ten thousand dollars si sa jabar yo sa a confirm gane am mention nga turi boy good man ñëw na yak mom dem gen back and forth confirm nga lu bari fi on air can you stop li nga def can you stop trafficking our people so lo leon yeah lo laa woon now you talk to our people lo laa woon now your boy boy you have to talk to every one of them everyone fi ñu ma nyu ñu fi jota ñoo ña wax nga like I said, man, I talked to the ah. boys. Suma pare dinaa la sen subi nga déglu ko. I have been on air for almost three hours now, two hours fifty-three minutes. I have been talking to different people. So I have been talking to different people. Okay. Yen la muje waxal ni yow ak good man. Okay. Are you going to stop? Can you apologize to Gambians for uh, what you are doing, whether xam nga ko or xamuloo ko, intentionally or unintentionally? Can you apologize? Because li waa mhm. dégguma la waa uy rek man mhm. booyu ma fi gis nga booyu ma fi andi ñëpp ñu mhm. ma fi andi booyu ma li fi mbégaa ñëw fii sool if it nga yu you talk to them si la wax man lu ma wax ak gaa lu ma wax I understand because of lii mu xabu ne te su ma diggante yàlla lii mu xabu ne sax dem naa ma ma ne leen lii su li ma ne leen lii it has to ma ne ko lii fu ne ni man because man su ma moon ñii lii lañ doon def wóor na yàlla Mm-hmm. man du ma si doon involvement waaye fu mu ne nii man lii pare naa si because mm-hmm. na anything liggéey pare after all ñu wook ñu jël mm-hmm. ñu liggéey pare ñu xam nga rek ñu ñoo am seen célébré ñu tofu you know because man dafa man fekkee ne man am amee bad passé man ñi dis ay goan am dee ma cegi gaay masan dee ma dem ma dem seeti gaay no am si gaay si luñ nekka but so il faut man amee different passion man afin I will not even bother myself Mm But man, all the time I communicate with guy, mm -hmm. ma dem fofu no ham ci lu guy neka. Mm-hmm. You understand? So ma dem apologize, ma dem wax guy, ma len mm-hmm. well ma man li dal, man I'm very sorry, you know. Yes, ma apologize ci guy, guy ne no, we understand because we are all one family. Ñe ben alen, so it's okay, you know. Oh, okay. okay. Very, very so doo do doo delluwaat bi you are assuring ne yow doo delluwaat si façon yi lifin bi duñ la gisaat si anything like this anymore right moving on you will not be engaged no. in anything like man, this man, anymore. Man, even this man, this thing I have is stubborn. Man, even boys, all that guys, they will tell you. Man, man even those people, you may use all that and like what. Man, again, man, this so bad. Man, Guinness na se set, you know, because man, who mali, if you need, but at the end, you suffer, you so na you know. Like man, I don't want that. Man, I go test so bad. Yala, so much that. Man, I have stopped this thing. Mm -hmm. It's not not the money comes from Ligela. No, no, no. kon ma ne gars yi aw stop it xam mm-hmm. na su ma si yàlla xam na sa man di laa stop it well ngi laa wax rek ne la nguuri Gambia ñu ngi see a liggéey ok pare nga si jërëjëf kon thank you very much thank you very much ok ok jërëjëf ok ah, dégg ngeen ko kooku mooy Lamin Jaata moom mi nga xam ne moo nekkoon di agent fo ñi nga xam ne ñooy liggéey ci li Ah, dégg ngeen li nga xam ne moom la jot a wax ma leen a ñaax nag ngeen jàppale ñu ndax call bi ma kool ñoom Lamine ak ñoom um, Ibrahima Diba ak ñoom yëpp Saudi Arabia it's not a free kool Skype credit lay jënda and it's very expensive ah, dinaa paste suñ PayPal account bi yëpp dara jaralut ñu ko dara waralut ko ludut bugga information rek accurate information pour ngeen xam xàmmee ràññee gis li nga xam ne moo nekk di xew suñ dëkka ah, ndax su ngeen amee correct information it will help you to make the right decision amaana am na ku toog si yéen foofu nekk bitim réew di ñu seetaan sa broda wala sa sista wala sa mbokk wax ne dafa bugga pour mu mun a dem am ah, si boobu noonu but by happening ma ngi nonu jot share suñ PayPal account bi mun ngeen ñoo donate fofu mun ngeen ñoo yonel xaliss bi Gambia ñu ngi amé kola on the line ah, hello kola waaw naka nga def sant yàlla rek Pa Ousmane naka nga tudda ak foy koolee ah maa ngi Germany actually tour bi mom bàyyi lepp la ko rek ok ok nga tenka gaaw rek I have one more call to make um, su ko defee ma la nga yeah. bala ma summarize because of man first time Saudi foofu noonu foofu laa nekkoon balaa maa ñëw Germany. oh ok. yaa gis comme Lamine moom lu moo nekk di wax. Mhm. yëpp nekkul dëgg yaa gis ñoom dañ mhm. luñ dee wax luñ luñ la de gëmloo ak loo fa dee fekk nekkul dëgg. Mhm. yaa gis soo ñoom dañ la dee comme yow ñëwee job job job boo dee sign ak ñoom dem. yaa gis soo yow soo fa demee doo fa dee fekk job boobu noonu yëpp nekkul dëgg. yaa gis. soo comme ñoom lu ñu war a try. Mm-hmm. lu ñu war a tra ñu gars yi stop comme gamin ko fen mu stop pour que mu fa dem because dëkk boobu noonu nekkul dëkk boobu baax even soo xoolee exemple nit ku ñuul tuba naare ñoo bëgg nit ku ñuul mm-hmm. waaw naare suñu de wax na loolu ne ko Goodman wax na loolu de ne naar yi bëgguñ nit yu ñuul yi and lifinte moom mu ngee jàppale loolu mu ne moom dëkk bi mu jógee every day ñu ngee yóbbu nit yi ñu ngee yóbbu dead body seen jigéen yi ñu ngi leen a réep seen góor yi ñu ngi leen a rey si kër yi si mbindaan yi te ñoo xam ne government yi ñoo sign ñoo sign Mm-hmm. loolu moo si gën ndaw si comme nit ñi xam am na télé lu ñu dee wane si si news yi loolu moo si gën ndaw naari lu nekk def nit ku ñuul yi sax mm-hmm. am na yoo xam ne sax ba léegi nit ñi xamuñ ko sax lu ko mm-hmm. xew naari naari suñ foone si yow FBI da nga leen di sa mbiri xaalis weer bi su dee nii dañ la dee dóor dama sa tànk bi ñu suul la fekk deewuloo def nañ ko ñu bari yaa ngi gis man yàlla moo a dimbale man su ku ma doon liggéey kooku dafa dafa dafa dafa am yërmande yaa ngi gis soo man surtout sa sana eleven boobu noonu laa fa génna dem Gambia salaataraat yoon bi ñëwaat ñëw libya duga yaa mm-hmm. gis ñëw ñëw europe mm-hmm. waaye comme gars yi lu ñu wax ni yëpp nekku si dëgga gars yi lu ñu wax ni yëpp nekku si dëgga luy problème bi government bi government bi gambia maa leen di ñaan ngir yàlla mm-hmm. buñ sign deal bi nii bi ko soog gars yi suñ ko signé rek moo nekk ñu ngay jaay nit ñi moo nekk nit ñi ñu ngay dem pour dee yi duñ ko mën a enforce ok so man man leen rek laa mën a wax gambia ni right now képp képp kuy dem saudi na sa gars yi commencé di la di la jaal di la di la jaale loolu moom fa soo xam naa ko 100 percent <laughs> Fosho han 100% xam naa ko képp ku sa bagage ngay dem Saudi na sa gaay commencé na sa gaay commencé di ñaan yalla yalla yalla nga dugg aljana wala ya, ya whatever hmm, hmm, waaye man moom fosso xam ku fa dem Saudi mom do fa de Gambia ak ak ak lu ak dunda jërëjëf même eh. Gambia da ngay hmm. da ngay delloo ak confuse ñeneen oh. ñu bëri dañ dee yaaxan sa bët yi di totoo di dóor sa tànk ñu bëri ñu bëri moo ñu bëri suñ delloowaat sa dara dara Mm-hmm. yaa gis so luy problème bi rek so mm-hmm. nañ nañ try rek comme yow yaa ngi mm-hmm. wax sa paper account man moom dinaa ko check incha allah du ma wax nag waaye incha allah dinaa si bàyyi xel incha allah bu baax waaw dinañ bu baax ndax call si yëpp they are very expensive ah, toog fii nii am na yu bari yu ñoo def yoo xam ne wax dëgga neex yàlla dinañ ko bugg a def ah, su ngeen ñu jàppalee dina am solo bu baax relying on sponsors so dinañ si jàppal ñu tamit lu bëri sax waaw ngeen ngeen ngeen defin jërëjëf thank you very much waaw man Ah, waaw jërëjëf waaye kooku mu ngi koole foofu ba jamani mu ne dafa leb tur bi moom it nekkoon na Saudi Arabia ah, te dégg na li nga xam ne moom la wax foofu ñu ngi amanoo da koola hello koola hello koola hello hello koola hello koola Ah, dafa mel ni koola boobu am ah, luus nañ ko ñu continuer rek ci show bi comme niñ ko waxee ah, di def dara dafa mel ni mu ngee koolaat hello koola waaw naka nga def naka naka nga tudda ak fooy koolee naam naka nga tudda ak fooy koolee hello kola Ka dafa melni ni nañ kola bobu nonu. kon yéen ngey deglu di sétane lu Gambie du dem so joggé fi ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal len ci gannaaw microphone bi am nañ kola ñu jël kola bobu. hello kola hello Pa Wow. jaama rek naka nga def Wa fine dama bëggoon a Pa delloo tuti gannaaw rek di nga interview Mr Diba di protocol officer Wow. man dafa am bari yu wax disagree with him. Mm-hmm. and and in the end you can see where he was talking from. Mm-hmm. but dafa am if you want to work in a, in an embassy. Mm-hmm. you first have to get yourself you know, to international diplomacy. and international relations. and you be current with current affairs. do not speak on your tone of your religion or your personal stance in terms of how you see things. rather. Um, diplomacy is something the order of the day. Um, this kind of job requires you to have a degree in public relationship. Mm-hmm. Why normally one we can't control what government to do. Mm-hmm. That is very wrong of him. Mm-hmm. And the key, when the next two years, the Fatah election or the Fatah the politics, mm-hmm. man, I won't trust him. Wahood, ne, Wahood, for the record, Wahood Lolde, if you don't know Ibrahim no. Adiba, he has been a diehard UDP, ñom ñoo xexal UDP all the way America and everywhere and nobody knew ñu appointment am is a reward from UDP pour ñu def ko protocol officer so loolu la moo wax ne dafa resign from the embassy mu dem into active politics delluwaat waaw campagnal UDP xeexal UDP def li moo def pour UDP loolu la mu doon miin waaw waaw no No ne mine ah this kind of person the mm-hmm. tone of language mm-hmm. li mu waxee in terms of in terms of defending or defining what mm-hmm. government can do and how much we can influence no or yes man I don't trust him to be a viable politician Mm-hmm. man foofu foofu laay waxee right now whether mm-hmm. bëgg naa taxaw or not the different story mm-hmm. Why mom get defend ne government wants to do they will do it and bi ma force callee li ma wax mooy li right now the deal with the government will not imply on the companies itself those are domestic companies and domestic laws and, and the government cannot be there on a day-to-day basis to look at these people right now li nga interview nii the problem it seems to be Gambian si business in Yoko, ko and it's the heart of the Gambia Mm-hmm. The government, the, what they should have done more, mm-hmm. what are those loopholes right now, mm-hmm. mm-hmm. and put policies in place to make sure that these things is hard. Say this Laminté right now, Sustabe Game right now, he could be arrested, he could be wanted. He should, you be. know. So um, mm-hmm. look at this guy, a non-Gambian, mm-hmm. how honest he is. But uh, Mr. Dibawana is the uh, issue of parliament. Why government be mentioning anywhere that direction that this is going to parliament. Wow. Why Lamin, Mr. Dibabi man I like his his, his personal stance. Mm-hmm. his humanitarian heart I like him. Mm-hmm. implicate na government mi ngi seet mm-hmm. na lii na ega parliament or not. waaw waaye ex ma ne if Gambians. have so much one thousand talented Gambians to be exported. we need them more in the Gambia waaw. waa jërëjëf. <laughs> baa ma jël beneen lifin laa kase dafa am one more ah. call bu ma make pause then after ma ñëw ci analysis yi I will do another show in which I will actually open the lines pour ñu gën a lii ma jël caller bi nekkoon on hold then ma jël that one last call hello waaw naka nga def ak fooy koolee naam hello wa mangla de gana dégg naka nga tudd ak fooy koolee naam sa bi clair wood non de sala la naka about ama jox la one last chance tegal nga call out one last time please hopefully it will be better wow tegal nga call out one last time hopefully dina better so that I mean we this thing su ko defé ñu jublu ci yefi rek ma jëlaat la one more time hello Kola. wa wa naka nga def. waaw Musa. Nam? yaa kole. koolee. yaa ngi koolee fan. Germany okay. Musa naka nga def ok wa musa balal masu fekene yang madiga yow ya sa line bi mu ngi break i just want to make this last call uh, balal ma nga at am suma pare rek ma call this call to gambia den ma ñëwaat ci yow ah, yéen a ngi déglu Gambia du dem so joge fi ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal len ci gannaaw microphone bi ah, ñu ngi leen ay bege bu baaxa baax yéen ñuy deglu di ñu uh, duñ def daral ñu make this call to the Gambia and we will be back pour waxtaan ak yéen Gambia du dem so la am su ko defee ñu continuer rek pour waxtaan ak ñu ngi leen bu baaxa baax yeen ñi ñuy déglu di ñu sétane ñu ngi doon waxtaan ak wa Saudi Arabia noonu am all along ah, hello Fatou. Oh, naka nga def. pa la nga may def ni naka nga def ni nala la. alhamdulilah yalla bu baax sant yalla bu baax. am glad na yaangi top programme bi all along gis naa you are fired up and you are wild man xaruma nga jox man digal pour ma kol la soma joxe digal dina la kol soma joxon digal dina la kol yen ñi ñuy déglu kii mooy Fatou Jagne waaw joxuma la joxuma la digal te yaangi def yaangi def yaangi def lu graw graw garaaw <laughs> kooku la amna na am na ma war waxal waye programme bi neena na trop jaral nga mo na bari wa pour setan ko di di di di wax tamit pour ma na ne maa sa gannaaw support na la bu baax nekut ne lu luma lu ta bëggut ci rek dara la nekul dara waye dafa nek yo xamne yu bëree bëree xew si suuf mo ko joxon la dat agreement between me and you ne wax la luma la waxoon nonu waaye mhm. pare won na pour top ko comme no ko topé tay pour won la ne rek li lu am la pour won africa nekul gambie rek pour won der bu ñul doomi adama ne li lu am la pa ok pa man wax naa Fat Diagne ma commencé wat ak yow rek pour ñi deglu ñi sétane ño xamne xamuñ la ma delluwaat ak yow fadjan nga tudda fan Gambia nga dëkka waaw man maa ngi dikka Sallaaji. ok Kallaaji ok. Sallaaji ok Sallaaji nga dëkka ok. Mhm. Ah, waaw. ok. Um, uh, Fat waaw um, Sallaaji nga dëkka si Gambia and you now currently um, uh, yaa ngi Gambia uh, fan yi yëpp dañ gis yaa ngi def vidéo te yàgg ngaa def videos with affaire yi naar yi dëkki yi di ko condemn ne bu dem. lan mooy sa connexion ak dëkki araab yi nga wax ñu pour ñuy déglu. waaw dama tukki woon si dëkki arab yi. ok in 2015 dama fa demoon te I was traffic by ku ñëw wax aji Fatou Jooj ci kanam nekkat tudda docteur Ngom. waaw jox pour jox a rek du ma lifin yëpp because time bi léegi mayut ñu ko comme ni nga ko mm-hmm. waxee. Mm-hmm. danga ma beeta nag danga ma beeta moo tax ma mun a wax tamit te sa programme bi tamit du ma si mun a ñàkk a tam soo ma beetee sax apprécié tu ma because nu programme bi demee xam nga because am na lu taxoon ma ne la ne du ma mun a génnaat live mm. waaye kontaan naa trop sa jàppale ak sa mun-mun ak sa doole ni nga ko defee really apprécié it te baa ngee ñaan Gambia yëpp ñu support la mm-hmm. ñu support la support te xam ne li ngaa def baax na bala maa door wax bi mm-hmm. ñu support la try contribute ci programme bi bu baax a baax a baax because this is very important mm-hmm. lii suñ live we dealing with here dama na yëpp der bu ñuul yëpp xam ne lu ñoo wax ni is something true mhm. man communiqué ak ki nga xam ne mu ngi si biir Saudi Arabia embassy bi foofu noonu mhm. maa ngi amee di voice léegi suma téléphone bi bu mhm. lii xapu ne ak ah ko mu ne he knows nothing about this then how comes today ñu xam dara si loolu ñii am na lu nekk si suuf seen place la ñoo toogal lii buñ ko politiser it has it has nothing to do with politics kii su fekkee UDP la gënut maa nekk man Fajaan waaye Gambia first before politics ñun ñëpp dégg nañ tey wax buñ fi wax fii nii. booy bi gis nga guilty bu mu guilty. foori na bi wax ak yow tamit gis nga guilty mm-hmm. mun naa wane guilty na waaye lu mu fi wax yëpp. Mm-hmm. tri kota bi yëpp man believe naa ne mm-hmm. dëgg la. léegi ngeen yow da nga tukki woon Saudi Arabia da nga foofu dañ la fa yóbbu woon lan lañ la waxoon. bi nga dem Saudi. in 2015 dama demoon Saudi Arabia te I was trafficked noonu laa wax I was trafficked by someone called Adifatu George ak jëkkëram docteur Ngom. because police of Martin bu ma àggee fekkuma fa loolu den loolu lan la loolu is human trafficking is trafficking mm-hmm. ok so lan lañ la wax ne la soo demee foofu ban façon liggéey lañ la wax ne nga doon def foofu wax nañ ma ne damaa dem pour liggéey waaye damaa dem liggéey comme maybe ñu feebar comme am ah, a health worker damaa dem jàppale jàppale la ñu feebar wala ñoom sax seen boppa dinañ ma dimbale su ma demee ba àgga man ak comme study naa pharmacie ak health worker dinañ ma dimbale ma liggéey lu ma jànga

teg la si benn place ay hundreds of people yëpp ñu teg leen benn place ñu wàccee si fly bi doo toog da ngaa taxaw ñu nekk di la maltraité di la soxore foofu ngay xamee ne da nga ñëw si dëkk bi pour sofa from the airport lii is reality lu xapp ñëpp ngay every day si internet bi depuis Gambia bu mu jógee wala ñu sign agreement ñu ko ñëpp a koo wax si àdduna so torof nañ fa soxla nañ fa après ah, simplement may wax ak yow nii still mm. now xale yaa ngi without knowing we need to go out and sensitize our people. Mhm. léegi booy yi ma booy yi ma waxal bax ren ñoom dañ fay pour dem foofu yow da nga fayoon dañ la caajoon ndax caajuñ la woon. waaw dañ ñu caajoon dañ ma caajoon man dañ ma caajoon dañ ma caajoon nangami xaalis bëgguma mention tamit lu bëri because xam nga one night ba dañ ma caaj nangami xaalis dañ ma dañ laa fay loo xam ne almost ten to fifteen times to twenty times boobu noonu laa am fii mhm. loolu lañ ma wax ne loolu lañ dangaa dem naari di la dóor ñeneen ñi rey nañ leen foofu ñeneen ñi tampong lañ leen foofu noonu foofu di citizen is always right amuloo fa digga dangaa dem torox tànge nga faa jógee ba nga ñib si nga ñëw feebar soo feebaree soo ko mënu taxandul dangaa dee ñeneen ñi dañoo agsi ñeneen ñi duñ agsi ñaata bodis comme kii la wax ñaata bodis ñoo delu ñoo dellu Uganda I don't know xam mm-hmm. ñaata Gambians ñoo dee si am na am na dañ ko tampon ween a ween la defee ween boobu noonu lañ xamee ne sax kii jigéen la te kooku gambien la am na koo xam ne dafa ñëw rek dee mënul koo xam ndik liggéey bu métti bi tata awas ya ngee liggéey bu amul rest this is something true lii dafa nekk lu am paa so yow dañ la waxoon ne da ngaa dem as a professional dem liggéey si health field bi nga xam ne moom nga jànga muy sa passion léegi bi nga demee foofu ban façon ngi liggéey waaw yan façon ngi liggéey nga jot def waaw yan façon ngi liggéey nga jot def bi nga demee foofu jos pour jàngale. mindaanu laa doon def mindaan boo xam ne liggéey boo xam ne amut ref liggéey naa dem naa fifteen houses man faa liggéey ñaata yoon laa dem ci ci police dem report soo demee report police seen bopp ñoo dee koo sa boss pour mu jël la ñu puus la mu yóbbu la waat. ñu nga dem police nga dem police police yi ooyal la sa boos pour mu ñëw jël si la ki nga ñëw pour report. ki nga daw ñu kool la dafa am da am pour dem. yow bi wax ne dañ naan ne la damaa koo sabos pour mu indi sa passeport bi ndeke dañoo koo sabos pour sabos jël si la yow soo bañee dem am na nooy bañee bañee sabos bi daf seen mel ni daf ma sàccal yi daf ma def li straight si jël bi ngay dem boobu amul explanation man dama jaar si jéel bi paa man si jéel bi laa jaar kon man waruma toogaat di gis su ma noonu sax bugg a dem si dëkk yooyu noonu. loo dem ba dem loo dem ba def ji ba dem jéel. defuma dara laa defut paa óor na yàlla defuma dara munuma liggéey bi ñàkkamul liggéey bi nga ne munuloo ko nga insiste taxaw si pas ñu dugal la si ñu yóbbu la jail da ngaa dem police police boobu noonu mun ngaa nekk si detention center bi for how many months wala sa document suñ paree ñu fayal ko nga dem si jail bi si jail bi foofu noonu mun nga faa toog ay ati ati at nekk naa si jail bi ñu fa at ñu fa nekk ay twenty something years te they innocent different nationalities different nationalities. ñu téye leen tëj leen si jail bi Saudi foofu. fi nga liggéey yëpp lifin nga doon def liggéey mbindaan nga doon def foofu noonu ay góor nga doon liggéeyal ndax jigéen nga doon liggéeyal loolu sa nekkul liggéey mbindaan loolu liggéey slave loolu mbaam moo koo def mbaam sax liggéey boo xam ne mbaam sa antalut ko mbaam yi ñoo set teg ay saret ñuy teg ay bagage sa antaluñ ko loolu lañ dee def foofu noonu ok liggéey boo xam ne amut rest bale kon boobu noonu mbaam because mbaam bi guddi si jotee ba waaw waaye ñun loolu du am yéen ay pour nga lekk sa problème la yéen ay seen desiti lañ laa dañoo lekk ba pare yow seen desiti ngaa lekk soo toogee di lekk seen desiti sax boo am time dañ laa nekk di la oo defal lii defal nii kay def lii soo lekkutee seen desiti looy lekka tee ngaay mujjee def stress da stress moo dee amee di bi nga tebee sa tànk bi foofu noonu ba nga ñib si bu ko defee nga ñëw am heart problème ñëw rek dee wala ñeneen ñi doo ñoom ñoo rey la foofu noonu because am na looy insisté damaa ñibbi damaa ñibbi damaa ñibbi ñu créé la dara poison la nga dee ñaata ñaata nit lañ fa poison am na koo xam ne dañ ko poison balaa ñoo agsi eh, ah, nekkul Gambian I think Ethiopian la I don't know balaa ñoo agsi oo oh, Ghanaian ay balaa ñoo Ethiopia Airlines foofu la dee si biir eh, sorry si si plane bi la dee balaa ñoo a Ethiopia si biir plane bi la dee léegi dañ ko poison. Ah, gis nañ jigéen ah. boobu lakka vidéo jigéen boobu lakka foofu noonu nga xam ne dañ ko am ndaw la lu ma la nekk di la so ay ay fifteen fifteen kër yi nga liggéey yëpp am naka nga def ba liggéey àgg si fifteen kër yooyu da ngaa dem fenn mënuloo liggéey bi ndax lan ndax lan ndax ñoom ñoo la di yow da ngaa agsi duñ la may res sax da ngaa agsi ak sa bagage rek ñu jox la dara pour nga def mhm. boo xam ne amut toog amut res waaw foog naa gan su ñëwee wala su nekkul gan nit su ñëwee may ko ndox mu naan. buñ duree jàmm ah. naa respect respect moo taxit kii bu mu ko waxee di wax ay prophète sallallahu alayhi wa sallam di wax religion di bëgg a tuddee foofu islam it has nothing to do with islam yàlla ak yónnente bi sa waxu ko ma wax ko fii lu prophète sallallahu alayhi wa sallam indi hadith of the prophet sallallahu alayhi wa sallam mu ne sa mbindaan sax sa mbindaan. soo kontaan loo yee rek yàlla yàlla bi yàlla kontaan loo la loo ko mhm. defal si ci yàlla fay la ko because yàlla si boppam mooy kontaan si yow because kooku xam naan la den bu ko def jaam te bu ko def slave su fekkee moom jaam te mu ngi saudi arabia te xam na lu xew moom war naa xam bis xadis mhm. moom xadis bi war na ko xam indi xadis ko sallallahu alayhi wa sallam moo ko war yooyu yooyu te bi jógee na ne naari sax dañu bon yàlla dafa bind naari sax na ne naari dafa bon di ko di ko boo def am na ñu baax waaye naari ninety nine percent bi nañ leen ko mhm. Mhm. léegi yow yow waaw fifteen fifteen kër yi nga liggéey noonu laa bugg a xam rek fifteen kër yi nga liggéey noonu moom laa bugg a xam naka nga def ba liggéey si fifteen kër da nekk si kenn kooku du la like ñu faaya la ndax yow sa boppa yaa bàyyi waaw soo demee sax nga gis sax ku la smile sax nga mun a nga ne xaaral try sacrifice si mhm. waaye yow doo am smile xol bu metti yuuxu di la dóor di la man man sama bopp dafa ma musa ba sama bakken bi di génnee deret ma ne ko soo ko defatee di second time ma rey la mu mhm. bëgg koo try di second time ma dóor ko mu xum mu xum man yóbbu suma dóor kan sa boss di next five ko moom mu Fatou yow it yow yow it ku wax li wax lele yow it ku wax Fatou yow ku wax li wax lele sa fit bi daf la réem ba de nga dóor ko eh, paa man paa man bu ma nekkee si jéel bi waa la wax bu ma nekkee si jéel bi dañ ma doon yóbbu ñetti yoon lañ ma yóbbu si airport pour ñu war maa di pot si suñ ñu yóbboo rek ñu delloo waat ñu si jëli suñ ñu yóbboo ñu delloo waat ñu si jëli di last time laaj ko jànqa bi jànqa bi mu ngi tudd Aïcha mu ngi Gambie fu mu nekk nii Aïssatu Danséré buñ ma buggee delloo waat dama taxaw ma ne du ma si police yi dañ leen doon indi ñu pour ñu ñëw ñu ñëw handcuff ma sa police ay góori kase mënuñ maa téye paa am na yoo xam ne doomi aadama bi daf ma jaraloo dee af sax because lii man duma ko jël anymore. déedéet waaye lu tax ñu ne dañ laa diport nga bañ doo lu tax lu tax ñu bëgg laa diport nga bañ waroon nañ ñoo oo ñu laaj lu tax ñu bëgg lu tax ñu bëgg laa <laughs> diport nga bañ lu tax ñu bëgg laa diport nga bañ déedéet ñoom déedéet ñu ma nee diport bi de ñoom dañ ma ñoom dañ ma doon indi ñetti yoon di suñ ñu ne suñ document ñu indi ñu ba si airport bi pour ñu war a ñëw jël flight ñu ne ñu suñ document am na lu des ñu delloo ñu because ko yaaxan nañ ko daal ko def yaaxan nañ ko because amatuñ ko woon travelling document lañ war a ñëwee te travelling document bi Saudi Arabia lañ ko defaree te balañ ko fa doon defar foofu tam métti na ak ñun because ñooñu dañ ne nekkoon sax ñu jël affaire yi def jàpp ko useless su ma waxee gars yi nekk ku nekk Saudi Arabia ku wax bi moo jotagul. Gambia moo doon def loolu. Gambian ku nekk Saudi Arabia recently mu fa moo taxit paa bi waxee ma loolu du dëgg amut. mu ngi jël affaire yi politicise doon def da nga ma bëgg a ne daf doon tëddoo suñ nit loxo bi dañ koo banka wala ñu taalal ko gis nga you are trying to educate people ba na na déglu ma you are trying to educate people Fatou wax ji dañ koo kaddu wax wax dañ koo téegal kaddu dañ koo téegal mu téegu Fatou kaddu well su fekkee ne da ne da ngaa génn pour sensitize people pourcentage bi ñu ko def ñooñu ñooñu dinañ wax. ok ñu fa ñu ñu fekkee do do deal yooyu noonu ñooñu dinañ waxal seen bopp bu bés bi jotee. ok léegi yow have you ever ay ay yow have you ever been dégg nañ ay stories si rape have you ever been raped while you were there no disrespect to you. non dégg dégg rape moom réebuñ ma. suñ ma réeboon wala tiddu ma tamit dinaa ko wax ndig dóor nañ ma fa. Mhm. rape defuñ ma ko. you've not been raped. boobu jaraloon na ma dee waaye rape defuñ ma ko. ok wante bugal ab atam am nañu atam pour rape ma. léegi am na ku ma yóbbu ba kiram mu ne daf maa dimbale ma dem fekk fa yeneen africain mu ne daf maa dimbale nekk te dafa nekk di tëddoo ñooñu noonu everyday mu tëddoo keena ngi kuweeti la ba léegi contact am maa ngi amee ba léegi facebook am mm-hmm. waaw naar la so pare nañ pour tëddoo ma mm-hmm. moo ma dimbale tamit ci kaw ma fa te ku ma fa tëddoo tamit du ma ko du ma hésité pour wax ko because damaa dimbale suma doomi réew dimbale def def der bu ñuul dimbale africain mm-hmm. loolu moo tax a jóg paa dara taxut maa jóg. yaa naka nga def ba ñibbisi naka nga def ba ñibbisi. waaw turu si jël bi laa jaar wante bala doon jaar si jël bi tam Salvation Army ñoo a jàppale woon Salvation Army di Salvation Army aw ma na xam nga leen. waaw Amérique fii lañ nekk de. ñoom ñu ngi am waaw ñu so yow Kuwait nga nekkoon. waaw ñu ngi am lifin Kuwait foofu. do we have an embassy there. ñun amuñ fa embassy gis nga gis nga lifin bi UAE yëpp ay kan seet Saudi Arabia lañ dee ñoo ñoo embassé bi foofu ñoo ne toppatoo ñun ñëpp moom bu mu ñëw mu wax ne rek moom Saudi Arabia rek la xam ñoom ñooy toppatoo foofu noonu yëpp arabic country yooyu noonu gulf country foofu noonu yëpp ñoom ñoo ko nekk di toppatoo moom lu mu fi wax ñu fii dara leerul fii because du ma ne ñoom Saudi Arabia rek lañoo lañu lañ taxawal te ñoom lañ taxaw pour UAE yëpp ñoom pour ñooñu la bépp citizen bu nekk si si golf si golf bi foofu noonu waa arab arab countries si yëpp si golf bi foofu middle east bi foofu Saudi Arabia ñoo ah, ñoo nekk ak Kuwait ma ah. ma leen pour ñu jàppale ma sax dafa dafa nekkoon tough time aw fu ma tëdd sax mhm. ma nekk naa si mbéeda bi suma suma vidéo yu bëri mu ngi ko amee di ko di ko def nanka nanka ba bés bi mu jotee pour ma génnee ko évidence ñu fa su fekkoon ne évidence fa sax mene waaw léegi da ñoom dem they are pushing these people to attack me. waaw dinaa dinaa ñëw dinaa ñëw si loolu waa yow ma uh, laaj la first gis naa di campaign you are doing dem nga National Youth Council nga def video from foofu amin ñu bari rafetlu ko ñun share nañ ko toog nga nga defaat videos you have been very disturbed by this and ñu ngi la see attack. did you actually engage the authorities besides just Facebook rek binda ak coow ak ak def videos rek Facebook did you actually try especially Amat ba nga xam ne mooy ministre bi did you seek audience nga toog waxtaan ak authorities yi nga xamal leen lii wan leen some of those evidences. am nañu moom it ñoo xam ne ñoom wax nañ ma ne. Mhm. ñoom àndal nañ ak ñun. Mhm. because ñoom balaa mhm. dara di génn war naa agsi si ñoom. ma tudd tur war naa agsi si ñoom te ñoom di nga ko accept jaral na leen ñu bàyyi seen liggéey bi. well I recommend waaw I recommend to you nga seek audience with Amat Bah. you are online you are saying things about him yaa I recommend you request for an audience with him moom mooy ndey mbila gi anybody else may not have well again again again again if you are again su fekkee ne yaa waa déglu ma wax la this is just a tip for you if you are trying to mm. fight any cause dafa am yoon booy aw li nga def am na solo creating awareness on social media am na solo but foog nga mm-hmm. engage authorities and it means directly going to the authorities So toogee ni man may tok ñu fekkasi ma wala setan nañ suma video Gambia nga nekka nekkuma fofu de way xamna ni ñu bari Gambia liñ lay wax ku nekk fofu ñaarel including ñi nga dem most likely sen place yi lañ fa nekkal dinañ la asso dara te liñ la wax ah, duñ ci tek any further action yo so demale sa bopp ba ci nday bi la gi nga wax ko then you will be sure a dina àgg si ñoom keneen ku dara I can guarantee you most likely 80 to 90 percent of ñi nga waxal duñ sa information mu organize yourself have your team put together a group write documents and show evidence nga request a official visit ngeen dem toog nga waxtaan ak ñoom nga xamal leen lii joytul leen ko nga file a petition joytul leen ko ne danga nga bëgg a ñu revoke contract bi wala suñ ko revoke nañ def nangam ak nangam if not li ngaa def it will have very little meaning because dañoo jàpp ne you are just one of those citizens dañoo jàpp ne waaw jërëjëf jërëjëf ma laaj la leneen because comme ni ma ko waxee time bi time bi nañ fee nekk ma laaj la leneen ne la ndax am nga am ah, gis nañ traite yi nga nek di face ñan ñola nek di threat ni yaa post ay whatsapp defin am na ñu am nek Gambia am na nek fi Europe gi am na nek fi si bi ño xam nak ñom la ñu ne ñu ne lu xew lan nga def wrong ni lu la gay di ni waaw lu len neex rek pour ñu wax lu neex rek because man every day every time every hmm nam ngene naka waaye yéen ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV ah, kii di Fatou jaañ mooy suñ guest right now moom lañ nekk di waxal ah, Fatou Jagne hello. hello. waaw dafa mel ni danga doon break up faatu ci gannaaw. hello faatu aha There mane ñaño la nekk di traite nonu di la tekku what are they in what capacity lañ la nekk di tekku nonu are they I mean party supporters are they government supporters are they um, no, just individuals diga diga diga diga xawma xawma xawma xawma fuñ boka diga diga diga xawma fuñ boka way lu ma si xam mo nekk am nañu nekk Gambia -hmm. am nañu nekk ci Turki am nañu nekk ci UAE bi -hmm. ngi ya, gis ya, mm-hmm. waaw ñooñu noonu nag lu ma suspect tamit si ñooñu ñi ma di ma call because man eh, di ma di ma di ma traité. Mm-hmm. Ah, ñu nekkal si si UAE bi te nga xam ne ñu ngi sonna di torox di seen seen vidéo yi every time di call ragalatuñ ci dara ñi sonna pour ñu bëgg ñu leen jàppale te mun naa laa wax tey jii nii am na kenn ku jógee kuy jànq bu ñëw. Mm-hmm. because of lii buñ ko taxawalee kooku loolu dimbale na ko benn mun a egg si. du ma wax lu bari tamit si kooku kooku mun naa waxal boppam su bis bi jotee mm. waaye lu ma nekk di wax moo nekk léegi ñi fa nekk ñi ma nekk di traité moo nekk ñi fa nekk di def naka sudut noonu mm-hmm. ñu foog ne man damaa tudda seen tur ndig man tudduma seen turam mm-hmm. man dama nekk di wax pour ñu jàppale leen ñoom seen boppa jàppale ñu mm-hmm. because ñoom ñu maa traité noonu nekk foofu noonu amuñ këy dañ daw di def naka sudut noonu tamit pour mun a liggéey rek ba pare dimbale seen seen seen famille yi ak seen waajur yi waaw ñooñu nag ñoo xaw ma lan la ñoo ma nekk di traité fu mu mm-hmm. mm-hmm. ok so yow lan nga def si yëfi traite yooyu noonu lan nga def si yëfi traite ni ñu laa traité. defu ko si dara dama dama toog di ko binda Facebook di ko binda Facebook rek. ñaa lan nga am pour tontu ñuy wax ne Fat jaañ bu leen faale am cefe boobu kooku dafa ut buzz rek. buzz laa ut rek bu leen ko faale serious ut kooku buzz laa ut lan nga am pour tontu ñooñu ñu yaakaar ne yow ñu yaakaar ne yow ñu yaakaar ne yow buzz man ma bëgg a ñu xam ko di ko xeex su fekkoon ne buzz wax ko léegi rek o oh, amat ba def disagreement rek ah, ma ma jóg wax foog naa si laa nekk di ut buzz waaye di bu ma nekkee Kuwait maa koo wax depuis bu ma nekkee Kuwait 2016 maa ngi koo wax kon xam nga ne utuma boos hmm. waaye tamit ñoom luñ def rek baax na waaye man hmm. du ma du ma nekkee di tontuwantee ñoom oo di hmm. saagante ak ñoom du ma ko def léegi yow yow yow yow bi nga bi nga ñëwee Gambia ba tey looy liggéey si loo nekk bi nga dellu see ba tey 2016 man man bu ma ñëwee bala maa ñëw si jéel bi laa disaay tey ne su ma ñëwee dinaa make sure fight against lii ba toog naa one year bala ma oh astafurla astafurla almost some months bu bari ay nine to eight months bala maa door liggéey bi waaye man ma ñëwaat di door continuer dooraat sama pharmacie but I was guilty. ne hmm. maa ngi boole pharmacie bi dafare li si boole lii te pharmacie bi liggéey bi xaw naa métti and it needs concentration because maa ngi liggéey ak patients ñoo xam ne dañ feebar. Hmm. yaa ngi gis te dee nit may service ba pare nit ko hundred percent. Hmm. yaa ngi gis waaye boo ma xam ne mënut a dem mooy tax ma bàyyi liggéey pharmacie bi ma ne xaaral ma concentré ci lii pa óor na yàlla su ma doomi réew doom nit ku ñuul der bu ñuul doomi aadama ba ma génn lu nekk bi foo liggéey te def ko te yàlla tax moo taxoon ma koo def def naa ko nag bi foo lii yëpp di happen den lii su happenee tey ma génn foofu ñoom seen bopp ñu ma war a support la ma dimbale ma si lu def dara daan di ma fay di ma xeex di ma saaga di ma war naka sudut noonu waaye bàyyi naa laaj waaye tamit nga ne bàyyi nga liggéey bi pour jublu si lii are you getting paid pour advocacy bi ngaa def. kenn kenn fayut ma oh ok kenn mhm. yow kenn la ndax danga am da nga am ay members do you have members sa movement bi naka la tudda ak ndax am nga ay members ñu ci bokka amna na almost members network of gas against human trafficking te ñoom three quarter of them ñëpp ñëpp ñëpp lañ trafficoon ñëpp bañ bañ bañ ok network of girls against human trafficking network of girls against human trafficking da ngeen am facebook page network of girls against human trafficking da ngeen am facebook page wa am nañ facebook page am nañ twitter yeah oh ok lan lan ban message nga am pour wax government bi waxala am dal xamna ne yaa ngi mer waaye dalal nga wax ak government bi ban message nga am pour wax government bi. ah di leen wax rek man dama koo njëkkee si suñ ji si suma président koo xam ne musuma génnee wax bu ñaaw génnee ko suma gémmiñ bi. Mhm. moom suma président te suma président la moo musa nekk ba yàlla tegi ko fi. maa ngi koo ñaan lillahi wa rasul nañu oo mu ñëw teg ak ñun ñu teg ñu ñu wax ko lu fa nekk te di wax tamit amaat ba tamit di ko wax ne nañu déglu nañu oo mu ñëw wala mu ñëw wala ñun ñu ñëw ñu ñëw toog wax ak moom wax ko mu wax ñu ñun loo xam ne dafa dugg suñ noppa bi wax ñu luñ mun a dégga because moom du fa def xaar ñi di leen xool every day ñuy liggéey seen liggéey bi loolu mënut a nekka ñii suñ demee si seen demet la ñuy xam ak ñoom lu ñoo retiis waaye nañ xool Gambian first nañ ñu xool balaa anything balaa xaalis balaa dara ñoom ñoo ñu war a gannaaw yàlla ñoom ñoo ñu war a protect ñun thousand Gambian si war a dem noonu ah ñun soxla nañ leen fii foofu ay boppa lañ am boppa yi rek lañ nekk di yóbbu mhm. léegi suñ yóbbu ñu bàyyi fi ñun dere ngi suba maas soxlu ñun <laughs> ñooñu lañ soxla man kenn soxlut ma ñooñu lañ soxla because yow soo yóbboo ñooñu yëpp nga bàyyi fi maasi faat jaan ñi ndere ngi ñun lu ñoo def fii mhm. ok ah anel bi nekka si ñu xamu naa dara youth council ñu ngi empower xale yi si lu bari mhm. xoolal yeer ñooñu soxluñ ko jàng ak ko jàngul soxluñ ko soxla kayit ak ko soxluñ kayit nañ ñëw rek ñu jàngal lu bari léegi ñun ñu ñoo yóbbu luñ leen a doyee because dañ soxla fi youth them because youth they complain too much that's why ñu war a get rid of us this is something very serious foog naa àdduna yëpp ñu ci war a jàppaleñ waa waxuma leen dara lu ñaaw waaye maa ngi ñaan bind nañ ay côté ci kool oncle Ousseynou Dabo bind nañ ko côté ci kool dañ ko bëgg a gis ñu fees ko toog waxtaan ak moom man kenn tuut maa nekk UDP su fekkee UDP la parti la waaye Gambian first should be confessed. They will confess before anything. ku ma bëgg a support si koom nga support ma si ku ma bëgg a bàyyi nag tamit nga bàyyi ma si su fekkee di waa waaw mooy loolu daal politique man politicise ma anything. Mm-hmm. jërëjëf ban message nga am pour Gambian si la seetaan di ordinary Gambians. na sa mbokki xale yi jigéen rek di leen ko ne jaajëf kontaan naa trop si ñoom ñëpp nag. Mm-hmm. si ñoom ñëpp ñi nekk di xool ñuy comment ñuy kool ñuy ñu maa nekk di ma dalal di ma. xelal di ma jox lu bari ñëpp laa wax ñi ko xam ak ñi ko xamul ñëpp maa ngi leen a wax ne nag ñu téye dem dëgër fu ñu jàpp rek foofu la because gis naa ne Gambia yàlla may nañu dara suñ jàppee téye rek yàlla daf si dee taxaw kon luñ ko jàppee nañ ci jàpp te bañ a gi nañ ko téye bam dëgër loolu rek laa leen a ñaan te di leen jaajëfal di ko yàlla yokk a jaama peace thank you jërëjëf Fatou waaye dama la amal just a quick tip xam naa ne you are passionate about what you are doing waaye mhm. dama laa ñaan nga gën see dal gis naa yenn post yi nga def ay we have been following you very keenly and have been sharing your stuff um, and gis nga ne ñu ngi ci kawam uh, ni nga waxee wax nga benn Amat ba na yóbbu doomam sooy wax ak authorities yi be diplomatic you are trying to start something te da nga bëgg a create impact because of impact bi nga bëgg a create moo tax maa laa jox these tips foog nga diplomatic pare pour eh, authorities yi suñ xamee ne you are not civil duñ pare pour toog ak yow te da nga nit pour ñu dégg yow li nga wax yow li nga wax dañ ko war a dégg ñun we are behind you duñ la déglu soo nekkee di wax dem leen yóbbu seen doom yi dem leen def lii li waxee xol dalal nga wax ak njekk ak teraanga you put your points across to them to hear you to listen to you engage them civilly, in civilized way xamal bindal nga am everything on paper show them evidences you have videos bul toog de xaar naan waaw nañ ñëw ci ñun wala lii engage them requestal ne na gaay yi su ngeen demee ngeen bugg a mit gaay ñu bañ ne duñ mit ak ngeen dellu si waat si ñun si media bi engage os su ngeen a gaay sax yëgal leen ñu ñun ñu ci délégation bi ñi document lolo pour wane li ngeen def suñ office bangi ngi foofu at the Red Cross building our doors are open to you guys Why pour ñu jël la seriously foog nga pare pour nekk a civilized person li nga def nga def ko in moo more mature su ko defee ñu mun laa déglu xam naa ne you are passionate there is great sense li nga def ko dunda mhm. yàgg na li waaw yàgg naa yàgg naa laa kay seet yàgg naa gis sa videos depuis bi nga nekkee fële ak bi ngaa ñëw ak yëpp man dootuma di la toppa tey but very just good, be more civil just be more civil Linga def dooruloo ko tey waaw dooruloo ko def nag dooruloo ko man xam ci dara if people don't know you if they've not been following you ñun we follow things that are happening I've been following you for a minute xam ne you've been doing this depuis time Yaya Jammeh bu government bi ñëwee es before guy yi di xalaat lii you have been on it but I just want to encourage you Thank you. Thank you. seede boobu noonu. tant que seede boobu mhm. defuloo ko pour lu ma bugg a bugg a defuloo ko pour dara di waxtaanuñ ko. Mhm. ever since suñ ko waxtaan. Mhm. yaa ngi ko fee soog a wax thank you I really appreciate that. te advice boo ma jox tamit kontaan naa si trop waaye pour nga xam ne rek. nekkul ne civilise su ma de dafa fekk ne naxaar ak li ma dal. ma ñëw gis government nga xam ne ñun ñoom lañ yaakaar pour ñu protect ñu. buñ ekkatee organisation bi ñoom lañ si yaakaar. ñu ñëw war a def this agreement. Ah, yow xalaat. lu nekk ah, learning process la rek ah, Fat Diagne ñu ngi koo bëggee bu baax a baax a baax crédit bi nag foofu la am te show bi it fa laa am dollars crédit lañ jënd nii biñ dooree show bi ba tey pour call ñoom Fat Diagne pour call ñu nekk Saudi Arabia ak everybody 70 dollars it's not easy to maintain we definitely need your support the PayPal link baa ngi foofu mun ngeen ñu ko yónneel Gambia we will be able to do a lot more of this to sensitize our I've been on air for almost four solid hours and it's important pour ngeen jàppa si ah, kon Fat Diagne ñu ngi koy bégee ñuy bégee am képp koo xam ne yéen a ñoo déglu yéen a ñoo seetaan ah, hopefully tomorrow o gannaaw ëllëg dinaa def special show boo xam ne dinañ ibbi line si pour yéen ñi bëgg a contribute tey moom wax dëgg neex yàlla sonn naa four solid hours is a long time waaye Fat Diagne dégg na liñ ko wax am ah, um, um, logis like learning process that she's just starting this she will grow into it she will learn better ways of communicating uh, limodef moo lu am solo la engage new our doors are open for you and for everybody else koo is actually a victim of uh, these things so ñu ngi bëggee Fat Jagne ak képp koo xam uh, ngi Gambian Talents TV Gambian Talents Promotion uh, through the radio and every mean ñu ngi leen ay bëggee di leen ñaax pour ngeen jàppale ñu yoon it's unfortunate that we could not read a lot of your comments today gis naa seen comments yi bu baax a baax a want um, uh, read your comments earlier today gis naa ne nag ngi engage each other yéen ngi communicate with each other Ah, ñu ngi leen ay amna am na broda ki nga xam ne ñu contact sax ci affaire yi Bahrain bi ah, jottu ñoo mëna wax ak mom ci bopam muy mom mohammed ah, nekk foofu noonu wax diga neex yalla as we speak boys yi nii tumranke fofu ci Bahrain mohammed Njaay momu mom mo leen nekk di jappalé mom mo leen jox kiram mom mo leen na feed a lot of them he works as an assistant security manager si hotel boobu am jàppale gars yi with employment and a lot of things ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax we are not able to talk to him moom moo ñu jox am contacts yi we were going to talk to him in case the boys did not want to talk ah, boys yi nag barki démb ba tey maa ngi back and ak ñoom um, they did not want to talk because of stigma bi gi nga li Fatou Jagne dunda nii li boys si di dunda is booy boys li ñoo ragal nii ak ñu bari loolu moo tax Gambie ñu bari duñ dee paree wax ak ci wali culture of silence bi stigmatisation bi moo tax te ñu bari duñ dee nangoo wax dégg ngeen booy yi luñ wax dañ bugg a ku leen solfat seen problème bugg ñoo nekk foofu di dundali ñoo dunda di next minute seen friends yi naan leen o oh, maa ngi leen gis ci télé bi maa ngi la gis Facebook maa ngi la gis YouTube ah yow ndeke da nga nekk di sonna foofu lii ak lii loolu is the reason why they don't want to talk loolu is the reason why they don't want to talk kon nañ leen bàyyi di stigmatise nit yi nañ leen bàyyi di jooj nit yi Billy Diouf mu ne Mohammed is a good man baadu moom mooy Mr Goodman Goodman a nga fa de Goodman Uganda la jóge moom Mr Goodman men na mi ñu doon waxal si gannaaw moom Uganda la jógee mu ne moom mooy consulate bi foofu he even offer uh, consulate services or consular services uh, to the Gambian over there waaye ñu ngi bëggee Mohamed ak ñi nga xam ne ñoo nekk di jàppale Gambian si this sensitization needs to happen this uh, is at the stage duñ ko bàyyi noonu we will continue to sensitize people ñu mel ni Fat Jagne organize yourself you and your colleagues dem leen def media sensitization maa ngi laa contact depuis beginning of the week yaa ngi maa doon jox excuse parewuloo woon a ñëw ci show bi dama la just call noonu rek unexpectedly moo tax announce ma tur sa tur si gannaaw ah, waaye yow ak ñeneen ñi si nekk yëpp organise leen seen boppa dem leen si media house yi si dëkk bi yëpp si rajo yi si télé yi si newspapers yi ngeen waxtaan ak askan wi organise leen ay workshops ak ay seminars ngeen educate the public civil society while government bi ñu ngee plan li ñoo plan li kii di wax ni Ibrahima Diba di wax noonu ne government bi benn si li mu wax noonu Pa Ousmane Thiam wax ko d'accord naag Pa Ousmane foofu Ibrahima mu ne waaw government bi dañoo wax nit ñi dañoo wax government bi wax apparently I contacted the embassy on an official capacity Saudi embassy bi they don't want to give a statement Ibrahima was ready to come and give a statement as an I respected for him um, bi of course will which is okay if they don't want to Why? dañ leen taxi si palaas joko pour ñuy joko askan wi ñun we will continue to do our part Embassy si tamit am am am ordinary citizens yi wala ñi nga xamne dañ am civil society organizations comme ñom fat Jagne ak ñeneen ñi engage leen community bi through the media lepp lu ngeena na wax na nekkalu factual am na ñu bari ñu genn di wax di def ay videos dañoo jaay suñ nit ñi dañoo jaay suñ nit apparently jaayuñ kenn. government bi foguma they will be going to sell anybody but one thing is certain the role of government is not to get into deals that would be um, risky so risky for their citizens lambatu government warta lambatu ordinary citizens ordinary traffickers ñu mel ni ñoom Lamin ak Goodman ñooñu mun nañoo def ay programme di lambatu ñooñu mun nañoo def ay lifin di lambatu waaye not government government du dundee lambatu government du tanta sens government du jël yenn façon ngi risque for their citizens government si lu leer la war a dugga and they should be able to enforce these things li ñoo wax ni assurance bi ñu amaat ba jox li Ibrahima di ba wax yes we have to give them the benefit of the doubt too duñ ne any bad deal bu am rek duñ get into it waaye they have a responsibility comme li leen good man suggestal nen responsibility bi mooy lan mooy to make sure ñu follow up on the things that they said they are going ñu follow up on the things yi ñu wax ne moom lañoo def at the end of the day suñ waxee ne dañoo dem di toppagaay ku nekk bugg nañoo xam foo dëkka ku nekk bugg ñoo xam li ngaa liggéey fi ngaa liggéey ku nekk bugg ñoo xam liñ laa fay nañ ko follow up they don't have the capacity though to a great extent because for example Kemeseng Jammeh mi nga xam ne moo nekk tooki maa ngi koo contact tay yëpp seen naa ko a few messages there is this young man in Turkey about a month ago wax naa fi affaire am share naa story am because of stigma syndrome bi kooku bëggoon ñu wax turam I communicate with him on WhatsApp ba tey jii is over one month kooku amut xaalis bi pour mun a jënd ticket am pour dellu Gambia all he wants is a fair air ticket pour dellu Gambia this young man is there I mean struggling he wanted to go back to Gambia contact na embassy bi Uncle KMSN 5 Jamme, he gave me km number. Call na, mom call na embassy bi si lim wax and the embassy told him ne ñom munuñ ko accommodate. Sénégalais moko ame. Boy Sénégalais wala brother Senegalese brother moko ame moko fat Gisne ne Gambian la mbokam la mu ko fat ko. By end of last month biñ nekk ni biñ ni September lako koko koku joxone pour mu kiram. Mom this young man in Turkey. Contact my embassy. They cannot even accommodate him to give him shelter somewhere he can stay. They could not facilitate anything pour mu war a a delluwaat back to Gambia. Nothing. Munuñ koo defal dara. Nothing. Zero help. du bés bu ñoo mun a am bena booga wala bena french fries wala bena baggy chips wala I mean maalo wala dara luñ ko jox sénégalais yi dañoo xëy dem liggéey bàyyi ko ci kër gi once in the morning la mo lekka du lekkaat ba ngoon Turkey la this is in Turkey I have tried to reach the embassy I have tried to reach I mean Uncle Kemi saying buy now messages they wouldn't return our call according to the young man wax dañ ko ne ñoom amuñ capacity to help so Gambian embassies yëpp ba ci America fii dañoo struggle with a lot of things they are struggling, is the bottom line. They don't have the budget, they don't have the human capacity, they don't have the human resource, they don't have the material resource, they don't have what it needs. Put you your thousand Gambians fofu did not follow up on the well-being of these young people or these Gambians pour seet ndax li leen fa yóbbu ñu ngi koo seet ndax ñu ngi leen monitor ñu ngee seet ñu ngee toppatoo gars ñu ngee make sure ne liñ wax ne loolu lañ leen a defal yëpp ñu ngi def the bottom line is they don't have it lolu duñ ko wax di ree duñ ko wax di joy. we know it the government doesn't have money You guys struggle with a lot of things te ñom seen bopa they say they are not shy or ashamed to say it yep project bi mu fa European Union jox nañ leen xaaliss amna few things lolu motax nit ñi di wax comme yenn argument yi ñom Pa Ousmane Cham ak ñeneen yi di wax ne nañ gene am xaaliss yoy ñu jox leen what happened to that money what happened to those monies if they have been giving money by European Union pour ñu develop dëkk bi pour ñu provide employment opportunities for the young people why send them away ñu bari si ñun ñu tukki yaakaar moo tax ñu tukki suñ amoon di hope ne dinañ ko meek suñ dëkk dinañ toog foofu liggéey duñ doon génn dëkk bi so su dee opportunities am na ngeen create ko si biir dëkka bi wax dëgg neex yàlla moo gën ñu dem di ko def si biti ñun ñëpp xam nañ ne bitim réew gi su ma jeexalee this show I am going I'm going to work toogoon suñ daka liggéey moo ñu doon gënal is the bottom line whatever the case is young people should be catered for Gambians should be listened to dinañ def more analysis on this incha allah pour gëna a waxtaan ak yéen am um, mel ni Momar mu ngi call noonu rek ma jox ko five minutes hello Momar naka nga def waaw ah, waaw aha maa ngi la doon gërëm ci gannaaw nii rek dama nekk di wrap up bi sax because dama fi yàgga on air waaye yaa ngi on air anyway ma jox la benn five minutes rek um, su ko defee nga wax ah, ñu ngi rafetlu li nga def um, wax naa ak Mohamed naka Lamin wax naa ak moom mi nga xam ne moo fa indi booy wax naa ak Goodman wax naa ak booy ñoom um, kii nii naka Ibrahim ak Baboucar ak Amin uh, yëpp. yow mi nga xam ne yàlla na jàppale di leen provider lii te yàgga nga foofu tuuti you are doing a wonderful job we appreciate what you are doing for the boys there um, yaa follow show bi ndax follow wuloo ko ah anyway dama doon nelaw booy ñoo ma ko léegi nii ñoo ma doon jox information after bu ma demee la see uh, waaw so léegi laa ñëw liggéey lan nga bëgg a yokk si li nga xam ne moom lañ doon waxtaan rek waxtaan naag booyi apparently Lamin moom uh, based on li ñoom Goodman wax ak li boy wax yep Lamine Maki ku ni ko hmm. sosé di waxé ah, way yow naka nga gisé Bahrain fofu nono ak lan nga am pour advice Gambien si nga xamné ñu ngi déglu wala ñu ngi sétane di man de luma ci si yo a rek moy Bahrain is a very good country. Mm -hmm. but it has advantage and disadvantages. Mm -hmm. Man fi I have 10 years here. Mm -hmm. We came in a group of 45 people. Mm -hmm. but ñun ku ñu esi fii he mm-hmm. was the ambassador mm-hmm. si lu leer la ñu esi mm-hmm. bu ñëwee fii ñun amuñ benn problème si company yum ñu esi si loxo yu óor la ñu teg compagnie bu ñu esi buñ fa liggéeyee one year ñun ñu fa nekkoon yëpp almost change nañ suñ job yi most of the boys are having good jobs am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey si French embassy bi ñeneen ñi ñu ngi liggéey si different different hotels. Mm-hmm. but agents yi commencé nii ñun bu ñuy ñëw fii dëkk bi amutoon Gambien. Mm-hmm. we are the first people yu fi ñëw. Mm-hmm. first Gambians and Senegalese. yu fi ñëw dëkk bi bëriwutoon black people. but léegi agents yi dañ commencé di esi boy yi di leen fenal. dañuy jël si ñoom xaalis. buñ leen essayé fii. si compagnie yu bon lañ leen di teg. Mm-hmm. yoo xam ne léegi-léeg nga liggéey ñetti weer duñ la fay. Mm-hmm. sa dëkkuwaay bi baaxu mm-hmm. yaa ngi dégg. so am na fi bo yoo xam ne comme booy yu ngi doon waxal noonu am na si ñoo xam ne three months liggéey euh, liggéeyuñ. amuñ salari. seen visa yi ñu ngi cancel. booy ësi nit fii wax ko lu si nekk. -hmm. fan because of halis bi ngay jël ci ñom mm-hmm. mm-hmm. definitely I'm not si ñoo xam amuñ ben problème de waaye mm-hmm. the majority of the people ñu ngay sona loolu la laa this good man ma ngi doon waxa mom ma ngi ko doon call ne ko pour mu stop lu moy def su fekkee ne ta si nit ñi tek len ci lu leer na bay lu mi def because aussi mm-hmm. Gambien yi sànni leen fii mm-hmm. teg leen si yeneen compagnie yoo xam ne dañuy sonna mm-hmm. baaxu waaye xaw ma ndax seetaan nga foofu waaye man wax naa Goodman ak am um, Lamin for a long time Goodman ak ñoo xamal ne Gambian si ñu nekk ci diggante bi ñu mel ni Lamin ak ñi nekk Gambia ñoo dee fenal booy ñooy jël xaalis seen loxo suñ ñoom suñ waxee ñooñu fifty thousand ñoom ñu jël seventy five hmm? moom si boppam mooy mooy bopp bi mooy bopp bi Mm-hmm. because si moom la ñuy jaar waaw waaye moom mu ne moom su ne gars yi for exemple charge leen fifty thousand ñoom Lamin dañoo dem taxi Lamin ki mu waxal Gambia kooki taxi keneen ku waxal kooki taxi so before you know it fifty thousand boobu dina nekk hundred thousand or hundred and fifty thousand mm-hmm. mm-hmm. ñoom Lamin yëpp man maa leen njëkk si dëkk bi fii nii man su ma neexoon si naa fii lu ëpp hundred Gambians waaye du jëriñ dara because may jël si yow hundred thousand jël si keneen hundred thousand jël si mhm. keneen hundred thousand ten people I have one million mhm. fii amul benn compagnie bu lay ësi boo xam ne yow da nga ko war a fay man bu may jógee Gambie di ñëw ku ñu mhm. ësi fii fayu ñaar dërëm compagnie moo lay jox visa moo lay jox everything moo lay jox accommodation moo lay jox oto booy jógee sa kër dem liggéey yi ok gis nga man fu ma dëkka booy boo leen laajee nañ la ko wax man fu ma dëkka néeg bu ma dëkka ñeewuma ku nekk Amérique. Mhm. au macha allah yaa ngi dégg. Mhm. moto moo may jëlee suma bunti néeg. Mhm. te suma place liggéeykaay. su ma wàccee moto mooy jëlee ma suma place liggéeykaay yóbbu ma fu ma suma néeg bu ma dëkka. yaa ngi dégg. eight hours laay liggéey every week I have one day off. ok but booy yi nga xam ne dañ leen di ëssi di leen jaay ni yi booy. thirteen fourteen hours la ñuy liggéey. waaw. acca boog si benn less than fifteen thousand Gambian dollars. waaw. Issaat lan moo ko fi jar. loolu de Issaat ne ko loolu Issaat. so yow looy advice amin um, gars yi soo hmm. amee pour. suggest man because ñun ñëpp xam nañ ne Gambia dafa dëgër. Mm-hmm. the middle is not easy. Mm-hmm. it's not. Mm-hmm. soo bala mm-hmm. ngaa jógee Gambia di travel to the Middle East yow mm-hmm. na la leer si lu ngay dem because mm-hmm. fii company bu jox liggéey bu nekk he have his terms and condition danañ la yónnee offer letter but mostly agency ñooy change offer letter yi waaw loolu la Goodman danañ la wax lu si nekk loolu la Goodman wax dana amut fii benn company bu baax bu bon a si am boo xam ne dana la jël liggéey te du la yónnee offer letter nga read agree sign on the working condition and salaries. Mm-hmm. But ñoom good man, those idiots ñooy mm-hmm. nekk di nekk si diggante bi di diggante compagnie ak nit ñi di mm-hmm. wax amul mm-hmm. because Pa man, man su ma hundred thousand pour Gambia ñëw fii di fayeeku salary of fifteen fifteen thousand kañ I, kañ laay euh, replace suma hundred thousand Absolutely. In two years, you cannot. Yeah, that's right. Nico, that's right. You cannot. Mm-hmm. Mm-hmm. waxal nit ñi dëgg. Mm-hmm. te lu ñuy jël si boy yi dafa bëri. lu ñuy jël si boy yi dafa bëri. visa yi free la nekk seen government yi dañ ko dee joxe free. because fi company bu la war a jël liggéey daf laa jox visa free. free uh-huh. daf laa jox visa free. for two years. bu la company bi soxla waatee dana la dana renew sa visa another two years. yaa ngi dégg. Mhm. visa boobu yow waruloo se fay ñaar dërëm. compagnie bi moo ko waruloo see fay ñaar dërëm. Mhm. ñoom ticket bu ngay jógee Gambie sax am na compagnie yoo xam ne ñoom ñoo lay yónnee sa ticket. ñoom ko so lan moo tax agent yi du war a jël xaalis bu em noonu ci kaw booy yi ba pare duñ leen duñ leen liggéey bu baax. waaw soo dem na ñëw na suñ broda Gambien si ñooy ñooy ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy jaay. suñ broda Gambien si ñoo mm-hmm. bon gis nga mm-hmm. so sometimes dañoo wax naar yi nii but mm-hmm. I'm telling you Bahrain is a very nice country. me Bahrain is just like home I'm going to Gambia every year. ñu ma xam yëpp de non. every year I'm going to the Gambia. macha allah suma compagnie moo may jëndal ticket yóbbu ma airport ma dem su ma ñëwee bala maay ñëw oto bu mu ma xaar airport. jëlee ma airport yóbbu ma kër. macha allah. Hmm, well wow, there are some success stories like yours. aha so suñ brother, si ñooy suñ broda yi ñoo bon. Mhm. ñoo bon. Mhm. ñooy jël booy yi di leen jaay. Mhm. jërëjëf. Euh, Mohamed am na fi booy yoo xam ne seen compagnie yi. naar itam ñoom tam seen intérêt la ñuy xool. because yow boo ñëwee ne la man danaa la. jox ma visa visa bu nga may jox danaa la si jox three hundred or four hundred mhm. uh, dinar that's around thirty thousand mhm. of course daf koy def mhm. waaw anyway oh so comme li nga wax ñoom dañoo ñëw wax booy ne naar yi ne ñu jox leen visa su ko defee ñoom ñu jëndalul noonu ok ñoom ñu jënda ko naar bi meeg si xaalis ok den am naar yu business si loolu waaye jërëjëf appreciate naa ko dama yàgg ci air bi rek moo tax waaye appreciate naa ko because uh, eh, bi on Facebook appreciate naa ko soo ko mm-hmm. munee wàccee waaye wàccee mm-hmm. ko please appreciate naa um, am li nga li nga li nga call noonu again comme li ma wax rek is rather unfortunate lii laa doon wax right mhm. before sa call bi di dugg si mooy culture of silence bi ah, bi ma leen callee ñoom ñëpp dama leen explainal pour ñu understand um, ah, li nga xam ne moom lañoo def culture of silence bi nëpp nëppal gi ak noppee bagage yi ak liy xew mooy tax ba dëkk bi du dem kanam pour génna am ah, advocate wax dafa am solo su ko defee amin ñeneen ñi mun see jàngee te foog naa ne loolu moo tax ngeen contact ñu pour ñu waxtaan. Ah, pour ñu ah. def li ñoo def so loolu moo taxoon a jóg am ñun loolu moo ñu tax a jóg te képp ku ñoo contact rek loolu lañ nekk di def so ñu ngi jéggalu bu baax nag wax dëgg neex la gannaaw demee na noonu te bi ma ko koolee it dama ko laajoon waaye ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax si. loolu li maa def rek mooy advocate for Gambians. ñaan Gambians yi pour ñu wàññi di because moom booy bi li moo ragal loolu laa doon wax right before nga call ne li moo ragal mooy pour ñu génnee ko ñu ne dafa dem Gambia di fail wala ah dafa tukki ba pare mu fail nekkewut fa dara mu ngi sonna and like people will stigmatize them so community bi laay ñaax pour ñu avoid stigmatization bi pour ñu bàyyi stigmatization bi for me I have no problem what mhm. uh, Sai uh, mhm. wàcceel ma netaalam bi please unfortunately lu xaas ba dugg oh ci show yi moom pour génnee ko ak yooyu waaye dinaa la kool su ma paree ma rapport rek su ma paree dinaa la kool am ñu waxtaan ci suuf maa ngi rafetlu sa kool bi bu baax a baax mhm. booy bi moom maa ngi rafetlu sa kool bi bu baax a baax famille bi ñu ngi leen di mhm. ngi mhm. jërëjëf thank you very much aha comme ni ma ko waxee rek si gannaaw yàlla xam na ne four hours maa ngi toog fi ma nekk nii sonn naa <laughs> I am very tired waaye ñu ngi leen a bëggee yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo déglu ah, problème bi li ma wax ni dinaa si gën a xuus even if it is need if there is a need to do specific show on it special show dinañ ko def muy this culture of silence ak stigmatisation bi loolu laa doon wax balaa kii di kool nañ bàyyi di jooj nit because ñii de ñëw pour jàngale nga share sa story pour jàngal nit yi ñu xamee si ñu nekk di la jooj families yi friends yi ku nekk génna loolu mooy issue bi loolu mooy problème bi mooy tax ku am dara sax bugg a jàngal mun a jàngal doo génna doo génna doo génna am na lu waaye am loo xam ne mun na see njëriñ askan bi waaye du nangoo génna pour waxtaan ak askan bi waaye because of ni ko askan bi di joojee because of ni ko askan bi di gisee kon ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax a baax di leen ñaan di leen ñaax ngeen jàppale Gambian Talents ah, ndax gis ngeen li ñooy def dañ koy teg ci kaw yoon ci lum gën a am li fi ne we are getting more professional and growing into what we do incha allah ah, ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen santa si seen déglu bu rafet ak seen toppa bu rafet chia leen vidéo bi xam ngeen ne xam-xam dëgg moo fi génna information bu bari moo fi génna li ñëpp wax dina am ku si jàngee yow su la jaralee nga toog four hours pour déglu ko share it on your wall du la wàññi dara dinañu yokkate dina yokka keneen ku see déglu keneen ku see jàngee kon ñu leen a ñaax bu baax a baax a baax ngeen toppa Gambian Talents TV Uh, Facebook Gambian Talents Promotion Instagram Gambian Talents Promotion Twitter ak Snapchat Gambian Talents Promotion wala YouTube ngeen subscribe to suñ channel bi Gambian Talents um, ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax uh, képp ku fi contribute ñi doon call jëluma seen call si ñu ngi leen ay baalu bu baax dinañ def special show boo xam ne dinañ accept seen call si pour waxtaan ak yen tamit dégg seen thoughts on it today we would have loved to not even ni mu fa demee uh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon tamit am um, di déglu di ñu seetaan. ñu ngi leen ay bëggee di leen ñaax ngeen share show bi du leen wàññi waaye dinañu yokka kon jërë ngeen jëf thank you very much until we come your way next time yen a ngi doon déglu lu tax Gambia du dem soo jógee ci Gambia balaa maa tee ñu naan teg ka bii du Palama you nante kabidu dem Wai nakala moy deme feka enente wundama Kuneka buka wana samaram melni jin Hamna su deson si yen nikon du noki oxygen Pa Usman yokan ma mic bi nax ma muna to them Lutax Gambia du dem ni lengi sister Iva Sa Eh ñu dem Pa Usman No Pa Usman Lutax Gambia du dem show Every Sunday la on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Usman Tuf Iva Sa Oh 6pm la GMT just just in case you ain't know. Knew them, knew them, knew them. Luther Gambia do them show Every Sunday night on Gambian Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad Oh 6pm la GMT just in case you ain't know Knew them, knew them, knew them Team Team ¡Gracias! <laughs> gambian talent tv wato wati jannam alkanal bulo bondije ala bul kumba ka kan tacce ali ajibe music comedy fen ferendi ko entertainment na kambalan do e passa malane talent talent mm? wow one time you know man in a and, gambia talent um, promotion tv and all that you get me so len mu ngey gis lu xew ci bi ak lu